biral ne ka fon borom Touba ci kaw serigne ci ñu gis ak kaw serigne ci ñu xam te no fi jébbalu xëy jiital borom Touba jibal ko jakkay sa ko jak taxaw fa batri rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli laysa liya al yawma hajatun uammiluha si waxtifaaika xafwal xalbi wal badani wakun amaami wakun xalfi wakun wasati wa fi yamini simali yaaraja yakuni mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokki téléspectateur Touba TV ginnaaw buñ leen nuyoo ziyaare leen ñoo ngi ñaanal cheikh mouhamadul muntaxa ibnu cheikhul xadim ibnu cheikh mouhamadul bachir ibnu cheikh ahmadou bamba xaadimu rasul suñu borom yàggal ko fi lool te mu wér di ko euh, ñaanal ci taxawaay yi yi mu euh, naal yàlla may ko mu yàggale ko ak coobareem ànd ko mbokki taalibe yëpp di ziyaar bu baax a baax mboolem fu njabootu sëñ Touba mën a nekk ci réew mi ak euh, bitim réew di nuyu seexi sëñ Touba yi waaye nag di am mbégte bu baax di nuyu kilifa yi diine yi penc lislaam yi nga xam ne ñoo ne ci réew mi fenn fu ci nekk noo nga fay euh, dugal sunu tànk wala sunu làmmiñ di ziyaare kilifa ga fa nekkal lislaam di ñaan yàlla wéral leen may leen nu yeggale eh, li nu bëgg a liggéeyale alayhi salaatu wasalaam di nuyu jëwriñ alaaji mbàkk yu fay di ko ndokkeel di ko ziyaarewaat bu baax Euh, di ziaré seigne Cheikh Balla Samb euh, di nuyu bax seigne Jibril Ndaw ak seigne Mbàkke Mbodj dellusiwaat ak yeen ci seigne émission bi di kenn du sëriñ bi muy am alarba ju nek fi ci télévision Touba TV ni ngeen ko baxo di euh, taxerlo ñu baax ko ànd ak sunu mak sunu xarit sunu jeuwriñ di waram xam-xam bu mak ci réew mi muy sëriñ Abdoulahi Diop bisiri ñukay am bekté ci alarba ju jor rek ñew and ak mom li nga xamné ni liggéey bi lepp rek ñu ko def ngir dabu ci ngeureumal sëriñ bi ak lu neex sëriñ bi ak lu taalibe yi gën di nàmpatalu jëm ci liggéeyal sëriñ khadim rasoul euh ni ma koy faral di waxe sa su nek rek alal ba ko ñek dañuy yakamti lool ngir euh, ak mom ngir waxtaan yu am solo yi nga xamné ni mi ngi koy def waye ngir nammantuko gi ñuy def ci sëriñ bi moy ni ma koy faral di waxe rek sa su nek ke ni sunu joggé fi rek fuñu mëna dañ fay tok rek di waxtane sëriñ bi kon bu doon sa su nek ñing ci télé bi du weesu lu ñuy waxtane muy sëriñ bi euh nuy ñaan yàlla bu baax baax muy gëna doli suñu yaakar ak suñu kolité ci cheikhuna Ahmadul khadim di dellu di waxat inna lillahi wa inna ilayhi rajiun di siaré bu baax mboolem mbokk talibé yi rawati na sëriñ Sidi ibnu Cheikh abdul Ahad muy sëriñ saliw mbacké ibnu Cheikh abdul Ahad ñu gën ko xam ci sëriñ saliw njurul muy koo xam ne e, Serigne saaliwoo ko defal lépp ginnaaw bi ñu noppee gis Serigne saaliw ci ay gët mu àndandoo ak Serigne Cheikh Serigne Saliou liggéey bi gis ngeen xel kom yu mujj yi lépp moo sëriñ bi noo ko ànd waaye nag lim wax ci kàddoom yi nga xam ne ni mi ngi wër rek mooy e, moom am na ngërëmul Serigne saaliw muy koo xam ne nii wax dëgg yàlla Touba TV daana dem ci moom di ko nemmeeku waaye heure bu ñu mësaan a ñëw rek cofeel googu. daf nu koy won ci xar kanamam ñu di ko njaale ak euh, njabootam gépp euh, maag sëñ Afia Cobaan ànd nañ fa ay yoon yoon yoon ñu di ko ziyaare yaakaar naa ne euh, borom mbaxana mi ma jàkkaarlool sax su ma jubalee ànd nañ fa ndax fu ne dugg nañ fa muy sëñ ñaay fay ñu di ko ziyaare bu baax a baax ndi wax ne noonu rek la àddina moom mi mu tëddee noonu li sëñ Moussa Ka waxoon nag dafay mel ni dañoo nekk ci jamono jooju mooy nañ tuub te balonte àq te bayu gaay te bàyyi gaay yu bax yi ñu yaq lolu lu am solo la wété ak nit rek fasiyene nek ci mom rek lo xam ci mom lu ñaaw wax lo xamul sosal ko lolu lu mata a xel la euh, benen bi ci top rek moy yalla mom mi ngi def intervention mom mom amna fayda ju toll ni mi ngi def intervention euh, ci suba ma ngi koy wax genn kilifa ma ngi ko nan ni mu dekké mom bu ko bayiwul légui nit ñu jup force dañ bax dañ jub ndax moom moom eh, ginnaaw mooy borom xudratu ak iraada moom bu soob yàlla lu mu dogal nit ñi dañ ci ànd ak moom te jàpp naa ne nit ñi fi ne ñu ngi góorgóorlu ku nekk naan nañ dellu ci yàlla te kenn waxula ko ku ne yaay delloo sa bopp day dellu si rek ci la sëñ mënu saa waxoon la waaja rek ne ko dama laa yërëm ci yan bu dis bi nga àndal mënu ko dimbalee ma sa bopp yow rek jàppalee sa bopp mooy fexeel yow ba jàkk boo jagee rek dinaa noppalu ci ñeneen ñi waaye xam ñu kii tubaarkàlla day metti lo waaye yalla mom mom mi ngi def intervention mom kem nim ko mané mom bu soba yalla bala bayyi nak nit ñi daan jup force dañ bax force dañ def ki liñ bëgg force ndax mom, daf na fe wacce ba paré dal di wax né nak téguma leen lu ngeen mënul waye nak bu bëggé def intervenir mom dootu ci xol ma sàmba ak ma demba kon nak def moy gayu yu bax yi nga xamné dañ da leen a fe, ci kaw suuf ñom lay jëlé fi su ko défé ñi ci des nag mu door a jëflanteeg ñoom la muy jëflanteeg ñoom ah loolu nag lu mat a bàyyi xel la nit ñaa ngi dem rek ku ne na nga bàyyi xel sa bopp ne mën naa doon yow tay tay tay tay tay tay mën naa doon yow it tay ci gi moo tax yii alal yeeg yépp amut solo li am solo rek mooy fexe ba euh, wéet ak sa jëf waaye fexe ba jëf jooju boo ko jóoreele sëriñ bi mu bokk ci jëf yi mu gërëm beneen bi ci topp rek nga xam ne lu mat a bàyyi xel la mooy sëñ Ablaye dañuy faral di wax ne damay dégg xeetu nit ñi di wax naan lépp lu yàlla def rek bu àndee dogalub yàlla lay doon ma ne leen yàlla lay dogal dogu ci lu yàlla dogal dogu ci nag loolu kenn mënu ci dara mooy loo xam ne ni décret la eh, sëñ Cheikh seen raay yooyu yaakaar naa di nga xam li may wax mooy loo xam ne ni loi la fi ne loi mën naa àtte nit tëj ko waaye bu président bindee décret ne gracier gracier la naa ko rek dañ koy bàyyi kon décret gën a garaaw loi léegi na yàlla mën naa dogal mbir rek daal di bàyyi yëf yi am ñaay fay toog fële yor ay bigam di xaatim lu nit ñëw boo ko fayee mu def ko buñ bëggee nit dof ñu def ko buñ bëggee nit ñàkk ñu def ko buñ bëggee sëy bu tas ñu def ko buñ bëggee nit sànku ñu def ko waaye nag lu yàlla dogal dogu ci moom su sëriñ tu tëjoo wala nit di ca wax sax yàlla dala fay jëlee <laughs> lool mooy lu mu dogal dogu ci loolu nag lu ma a bàyyi xel la te jàpp naa ne ab am na am na ab sew-sew lool euh, su ko defee ñu góor góor lu ci lu baax jamono jii day jamonoy baax lu waay mën a am na nga sax ci baax jamonoy baax ci la ñu nekk rekk waaye nañ sàkku ak baax baax nag li ñu jëfal yàlla amulu ko benn importance dañ koy tàmbalee ci suñu diggante nit du man fii man fale nit day am benn jikko am benn anam am benn xar kanam te kat gaa yu baax yii di dem war nañ cee bàyyi xel bu baax a baax te góor góorgóorlu defuñ yàlla lu leen fi yàlla jëlee ñun defaruñ yàlla lu ñu fi bàyyee kon nañ lu baax ci baax nañ góor góorgóorlu ci jaamu yàlla nañ góor góor lu ci def lu baax nañ góorgóorlu ci wax aw yiw fal yàqul xayran aw li di gërëm bu baax sañ faadal euh, Couture mi nga xam ne nii euh, moom la ñuy faral di àndal saa su nekk sëñ Ablaye mm-hmm. euh, muy Serigne Cheikh Niass nekk fële ca Las Pas Las Palmas ni ñu koy waxee ca golf mm-hmm. di koo xam taalibe sëñ Fallou la gis nga numéro baa ngi noonu nekk ku baax saan waxtu wu ñu bëgg a def émission rek day ñëw am ndimo ba mu jekk ne ma ñëwal bii ngay defee tey émission yalla xamne naru mo wona soli sa way bima ko joxe dama ko ne lepp luñu defé ngir yéene rek loola ngay mottali ko te ko ne xamne ni jambar la lool ci ñaw barki dem rek mang koy sédel ci kanam sëñ Habib mu Cheikh Abdoul Fadal ak sunu yaay ju bax joju nga xamne moy wajuram bu ak wa place ba yépp sëñ Cheikh ñoo lay ñaanal yalla defal la tawfiq ñom ñi nga xamne nak dañuy jappalé ak manak ko melni ni ablay ñun bokki talibé yit nañ leen di jappalé ci liggéey bi dem di fa ak di leen di leen di leen di leen di leen jappalé lu am solo la ndax ak bax rek tax ñu duñu eh, defal ak sëriñ bi sëñ Cheikh Niass Fadal Couture ñu ngi koy ziare bu baax di ko gërëm ci eh, taxawaay yi yu am solo yi eh, sëñ sëñ sëñ Ablaye eh, ma bàyyi la nga nuyoo ak téléspectateurs yi ginnaaw boo nuyoo ba noppi nag ñu dalal sunu xarit moom i tamit di sunu jëwriñ di ko xam ne moom it kenn la ci liggéey bi ndax yàgg nañu lool am ay relation terewul nag mu nekk koo xam ne ni xasida yóbbu na ko fu ne mm. yóbbu na fu ne xasida saal bu ne toog na fa bâche bu ne yëkkati fa jàng fa xas day sëñ Tuubaa yi ànd naa kilifa gu ne it muy sëriñ Xaadim Guèye ñu di ko ziyaare bu baax a baax a baax di am ci moom mbégte ci teewaayam ci jataay bi ndax niki démb rek laa ko ko wax mu daal di ne ma mu jox ma ci kàddoom ni mu koy faral di waxee nee na nag dama koy noggatu waaye bu ko maa ngi koy ziyaare bu baax a baax sëriñ Xaadim kon sëñ laay ma bàyyi la rek nga daal di nuyu téléspectateurs yi eh, ak namm la lool nag su ko defee nag ñu daal di dugg nag ci eh, li ñuy bëgg a waxtaane tey hmm. aouzu billahi min asheytaani rajim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 وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن شيخي ووسيلتي إلى ربي مولانا شيخ الخديم الذي قال في حقه أحد الأكابر المريدين على هو السيد إبراهيم جوب المشعري حين يقول يا ليتني نلت من كعب فصاحته أو كنت في نظم شعر مثل حسانا إذا نسجت برودا لا مثال لها لشيخ من يتبع الإحسان إحسانا وغاية القول عندي أن أقول له يا شيخ أحمد فقت الجيل تبيانا يا يوسف الحسن ومختار الكمال ولقمان العلوم وعيسى كل موتانا مبكي جولي دي مبكي طالبي مبكي يوتيد ني توب ييب سي الاربا بو جوت سي سين تيليفزيون توبا تي في دي تيلي بي بولي جولي ييب دي ليغير شيخ الخديم nu ngi leen di nuyuwaat fi ñu leen baaxoo nuyoo ci seen jataay bii tudd kenn du sëriñ bi nu am mbégte lool di ko ànd àllarba bu jot ak sunu rakk sunu soppe sëriñ Hamidou Diop di sant mbokk yi nga xam ni yépp ñu ngi ñuy topp di ci jiital nag sunu kilifa sunu yaakaar ki tooge jataayu cheikhul xadim te mate ko sëkk mm-hmm. muy cheikh Mouhamadul Mountakha Bachir yàlla na fi yàgg te yàlla na nu yàgg a jox ndigal te nu dëppoo ak ndigal di ñaanal njabootu seexul xaddim gépp dale ko ci jëwrinam rakkam sëriñ siidi mbàkke abdul ahad mhm. di ko ziyaara sunu kilifa gu tedd gi fi bàyyi ko mhm. di rakk ci sëriñ siidi abdul ahad di sëriñ saalihu mbàkke abdul ahad gën koo mhm. miin ci sëñ saalihu njurul nu ngi koy matsawu jullit yépp di leen ko ziyaara di ñaan maamam seexul xaddim yàlla na ko teeru teral ko baayam ba nga xam ni yar na ko juróom fukki at ba gërëm ko di sëriñ saaliwu mm-hmm. di turandoom yàlla na ko teeru teral ko nu ngi koy siyaare mm-hmm. jullit yëpp ak taalibe yëpp mm-hmm. nu ngi nuyu sunu wasiila sunu bunt ci kër sëñ Touba sëriñ Hamzatu mu sëriñ bu di ko ñaanal ngërëmu maamam di ziyaara bu baax boroom kër gi di jëwrinu xalifa bi alaaji ahmadu mbàkk yu fay yàlla yàlla dolli koo sàmm te dolli ko defal tawféex di nuyu kër gi yëpp nuyu sëriñ Seex Balla Coro Samb mhm. nuyu sëñ Jibril Ndaw sëriñ Bàkke Mbóoj nuyu mbokk yépp mhm. am mbégte lool nag mhm. ci jataayu tey bi dalal kenn ci nun di sunu xarit di sunu soppe di sunu doomu ndey di nit ku baax di nit koo xam ni taalibe yépp a koy bëggee ngir njàngam mu wér te rafet te sell tey dugg ci xolu képp kuy murit muy sëriñ Xaadimu Rasuul Géey mu baax mii ñu séqal tey jataay bi di nit ku baax di nit set di sëtu seex ma bu Géey waaye nag di jànkatu xasiida boo xam ni kenn dootu ko présenté àdduna bépp xam nañ ko mhm. muy nit ku baax koo xam ni ku disponible mhm. di kenn ci nun nu ngi koy dalal bu baax di bég lool ci wuy séem ci jataay bi mhm. fas yéene koo ànd ak moom di la sant sëñ Xaamidun di la santal tamit bu baax sunu xarit ba la ñu àndal di sëriñ Seex seen raaya di nuyu mbokk yépp di sant ñépp di bég lool ci jataay bi di la delloo kàddu gi di ndokkeel tamit jullit yépp nag ci ndoorteel at mii ñu dugg muy atum jullit mm-hmm. ñu ngi ci ndoo ñu ngi ci ndokkeel jullit yépp mm-hmm. euh, xam ngeen dugg nañ ci 1442 mm-hmm. di at mu bees euh, kon nu ngi ndokkeel jullit yépp ndax jullit muharram ci la ndoorteel atam kon ñu ngi nuyu jullit yépp di leen ndokkeel yàlla na yàlla jeexal jàngoro ji nga xam ne jaaxal na àdduna bi yépp yàlla na yàlla delloonu ci yitte yi ñi nga xam ne jot na noo wàcc liggéey yàlla na yàlla yërëm leen ñi ciy jullit ñi nga xam ne ñu ngi desandi te tawat yàlla na nu wér ñi ne ci ay jafe-jafe yàlla nañ ci génn yàlla na yàlla faj aajo yépp guddal fan yi wéral cër yi def jàmm ci sunu réew def ko ci sunu njiiti réew def ko ci sunu askan sant ñëpp di gërëm ñëpp di am mbégte lool di la delloo kàddu gi sëriñ Hamidou Diop jërëjëf euh, sëñ Abdoulaye Diop euh, Bichri ci kàddu yu am solo yooyu euh, nga xam ne moom nga tàmbalee jataay bi ñu ngi ci am mbégte bu baax a baax di la delloo nuyu ak ziyaare Eh, di dalal sunu gan ni ma ko waxee rek léegi eh, baarakallah muy sëriñ Xaadim Guèye xasaayit eh, sëñ Xaadim noo ngi lay nuyu bàyyi la nga nuyoo ak téléspectateurs yi ginnaaw boo nuyoo ba noppi rek ñu door a dugg ci wàllum njàng mi ak laaj yi tey moom xam naa ne damay def émission ak sama Bichri sama émission moom ak boom bopp def ak yow sama émission bopp boo xam ne dama koy beral sama bopp ndax bari naa lool ay question yu ñu ma sànni laataa ma yegg si. ndax ñëpp a ngi lay teewlu fi mu ne eh, baarakallah ginnaaw bu mu amee mbégte nag bu baax ni ma ko waxee léegi laataa ngay ñëw eh, ci ne xasida yóbbu nga ko fu ne muy saal muy dëkk muy baas bu ne roonu nga fa yëkkati li nga xam ne mooy xasida Serigne Touba yi eh, liggéey ci liggéey boo xam ne ndax damay wax ne liggéey li ci am solo mooy bàyyi ci sa empreinte fexe ba am ñoo xam yaa leen xemmeem loo tey ñu mën a jël micro di jàng xasaayit loolu sa liggéey réussir nga ko ci wàll wi Eh, yenn saa yi sax ma dégg ñoom sëñ Pape Cheikh bii mii nga xam ne eh, Bambey gam dëkk ca wet googa duñ sax jàng asiru ma ma ma dégg moo woyantu yooyu yëpp fi ne ci sab liggéey lay tàbbi eh, ñu am mbégte baax ndax démb rek laa ko wax jataay bi ba ma ko waxee rek mu daal di ciy d'accord te ku ne xam ne ne jotam mayu ko ko ak it jug jug noonu rek bëgg a jug mayu ko ko waaye xam li ñu bokk ak li ñu seeq ak kër gi di këram moo waral mu nangu lool sëñ Xaadim ñu ngi lay nuyu mhm. leen di nuyu bu baax mhm. aleykum salaam wa rahmatullah eh, ñu ngi leen di nuyu bu baax ñu ngi leen di siyaare di leen jaajëfal te di leen ndokkeel ci at mu bees mii nga xam ne moom la ñu dugg mm-hmm. di leen ci ñaanal yàlla te di ci baalu àq mm-hmm. di ñaan ñu fekk ko waat waxtu wi déwén te yàlla bu kenn manqué mm-hmm. amiin ñaanal Cheikh Muntaqa borom ko fi lool te wéral ko ba yéen mu am ci liggéeyal Serigne Touba yalla nako defé nim ko bëggé té yalla nañ ko and ak mom amin. amin amin amin ñu ngi siyaare ko nuyu borom kër gi ji Mbàkke Fay. Mhm. di nuyu tam personnel bi nga xamni ñu ñoo nekk fii yëpp jaare ko ci yow mi nga xamni yaay suñu buntu fi ci barab bi. di la siyaare yow tam bu baax baax. di la ñaanal yalla wër ak guddu fan. di lu itam jotaay bi bu baax di nuyu sama xarit bi nga xamni kenn la ci man. Mhm. di sama soppé di sama wóllëre. Mhm. muy seigne Abdoulahi Diop Bisri. nu am xaritoo gu yàgg. ndeysaan ak cofeel ku yàgg koo xam ne ba ñu gisantee rek la yàlla dogal loolu suñu diggante. muy ko rafet jikko di ku baax lool. te mën a waxtaanee sëriñ bi lool. man koo jox dimension yoo xam ni euh, nii waa ne foo koy dégg ci yeneen i jataay. ñu ngi koy siyaar di ko ndokkeel di ko ñaanal yàlla yàlla bàyyi ko fi te sàmm ko. te euh, wéral kàddoom bu baax a baax. rawatina ci liggéey bii muy liggéeyal sëriñ Tuubaa am na mbégte bu baax maa ngi nuyu wëllëre yi ak soppe yi ak xarit yeeg ñëpp képp koo xam ne rek yaa ngi jàkkaarloog télé bi maa ngi lay saar bu baax a baax a baax. jërëjëf euh, sëñ Xaadim ci euh, nuyoo yu am solo yooyu xam naa euh, danaa ñëw léegi incha allah ci liggéey bi ñu ngi ziare sëñ Xaadim seen tubaarkàlla muy koo xam ne ñu ngi ci sawet di liggéey liggéey bu am solo ñu di ko ziare muy suñu wëllëre sëñ Cheikh Adama Guèye mooy mooy mooy deuxième kii nu ñu koy waxee te manager. Euh, maay première ménagère Cheikh Adama mooy deuxième ménagère bi di ko ziare bu baax a baax euh, di ziare sëñ bi ma cuun mi nga xam ne moo jiite euh, kuréelu kenn du sëriñ bi tubaarkàlla di ci liggéey liggéey ba am solo yaakaar naa seen Pastef muy mboolem ñu bokk ci groupe WhatsApp bi nga xam ne moo tudd kenn du sëriñ bi ñëpp maa ngi leen di cent ñëpp 256 membres moo ci am su ma bëggee tudd ñëpp jàpp naa ne danaa jël lu mat presque une heure de temps mm-hmm. maa ngi leen di ziare ñëpp tubaarkàlla di leen jox seen wàccuwaay di nuyu sëñ Cheikh Sène Raaya mi nu jàkkaarool ca liggéey bi eh, sëñ Pape Cheikh ba mu gisee beñe yi ba léegi amatul jàmm eh, tubaarkàlla waaye ni may def mooy waaris yi balaa ma ñëw ci loolu bërki démb sëñ Ablaye dama demoon kër sëñ Saliou mm-hmm. eh, démb dama demoon kër sëñ Saliou ca sëkk ba nga xam ne moom la sëriñ seex moom sëriñ Saliou jox mm-hmm. sëñ Saliou Thioune mm-hmm. moom Cheikh Béthio bi ma duggsee gis liggéey ba mu rafet lool ma di ko ci félicité moom sëñ Saliou Thioune moom hmm. sëriñ Béthio hmm. yàlla xam na ni fekkuma ko fa sax waaye jëf ju rafet la alxuraan waxoon ne hal jasaa'ul ihsaan ilal ihsaan sëriñ Saliou jóge fi kër googu nga xam dafa am cosaan hmm. cosaan lu rëy la am ndax ku ne xam na ni kër sëñ Touba la woon waaye ginnaaw bi mu bokk ak Cheikh Abdoul Ahad Cheikh Abdoul Ahad mujj ko bàyyee sëñ Saliou ñaan yi nga xam moom la sëriñ bi doon def ci musuwaar yi ñu doon ko jëlee ci keesu Matlaboul Fawzayni sa boobu ñuy nettali ci njaay àll gi nekkoon foofu ci biir kër sëñ Saaliw xay googu am histoire mu dem ba kër ga tollu ci ndox ma xëy na ak tolluwaay jamono sëñ Seex moom sëñ Saaliw sant ko ko sëriñ jëlee naa ci kilifa gu mag gu fa nekk mu ne ma ba ma dëkkee ci kër gi ak léegi lee mu war juróom fukki maa ngi door gis kuñ liggéeyloo kër gi yëpp teg ko ci sa loxo ma ne ko nag loolu ak njàmbaar la te it mu wane ca tawféex ndax boo ñëwee ba gis tëkk kër ga na mel ndax juróomi téeméeri camion lay war a def te camion bu ci nekk njaareem lañ koy tibbee dañ koy tibbee Touba loola di taxawaay bu am solo ñu di ko ci félicité bu nit defee lu baax la alxuraan waxoon xaddis wax ko rek ci la ñuy def jëf ju rafet jëf ju rafet da koy fay waaye wax ju rafet dafa am solo kon yàlla ko yàlla taxaw sàmm ko moom njabootu Cheikh Béthio Thioune gépp sëñ Saliou Thioune ñu ngi lay félicité su ko defee ñu àndandoo ak waaris si tey xasida gi ñu war a waxtaanee xasida gu daw yaram la xasida goo xam ne dama koy déglu guddi ci sëñ Xaadim Géey mi mu jékki-jékki am fu mu yóbbu bi ma xëyee laawoo sëñ Ablaay wax ko ko mu ne ma nañ ko waxtaani mm-hmm. muy alaa inna nii usni ala xayri munhimi mm-hmm. muy xasida goo xam ne xasida gu xasida ak ñaan la waaye xasida la goo xam ne soo ko jàngatee ba ci biir ci ngay xam dëgg dëgg sëriñ bi taxawaay bi mu amoon ala xayri munhimi wala astaki lil xalqi min faqdi anhumi ala يوسني على خير منهم ولا أستكي للخلق من فقد أنهم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وله رضي الله تعالى عنه آتني ميته اللهم إن أهداي وأهداك الخون في البهر كما ألقوا خليلك في النار وخطبتها بيا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم فصارت النار جنة له عليه وعلى جميع أنبيائه والمرسلين الصلاة والسلام يا ربي يا ربي يا ربي يا الله يا يا خيوم بحق سهر رمضان التي أنزل في القرآن هدى للناس وبينة من الهدى والفرخان لك الخطاب ساكل أعصى البهر وأهلها وجميع أهدائه وأهدائك وبشر المسلمين والمسلمات بلقائه ورؤيته وسمي رجوعه إلى دار سلامه وتب عاجلا بلا مساخة ولا تسبب مني آمين يا رب العالمين بجايه صلى الله تعالى عليه وسلم وجه واجعل ميمية فوق ما كتبت وفوق ما سننت كما هو هدت كما في ما قلت قبلها واجعلها سعدا وجنة وجنة في دارين ألا إنني وسني أم خير منيمي ولا سكين للخلق من فخد علومي خير منيمي ولا أستكي للخلق من فقد أنومي فمن سمني في قربتي ساعة تسلل إلى خير مخن وآت فهو خدمي لو أشكيل في وفقري وخطبتي وأرجو رجوعي آجلا خير منهمي سكوت نواتي فاسكا وكان لي بما فاخ سنيفه وأكرام مكرمين ناجاني من خراهم كفرهم به فأنا مماني تاردا كل مجرم لا شكر مني راجيا من مطلبي بلا كلفة مني وخطا لمكرمي لئن خرني من خروسا آشدا فما خرني من خادني بتكرمي ومن يلخني للجهد في البهر ساخلا فقد جاءني في البهر جود مكرم ومن فعل كوني لمولاي عبدا وكوني خديما لي صفي المخدم وإني الله في البر والبحر عابد قديم لمنج من داع تودمي فإني الله في البهر والبهر عابد قديم لمنج من دعاء التندم ومن ساداني فالمواهب حقبنا من الواسي المخن الأديس المخدم ومن يلخني في البهر روما لقربتي بلي من الله العير في كل عين لرب التجاهي في هلوري وخيبتي وبالمصطفى أشكر نهم سلمين علي صلوات الله ثم سلامه بعال الله وصحب ما كل مسلمين may wax borom Touba ngeen dal xam ne borom Touba mooy borom Touba jug leen dal di xam ne borom Touba mooy borom Touba jug taxaw déglu lii may wax borom Touba ngeen daal di xam ne borom Touba mooy borom Touba da bañ taxaw fa gànnaam dëkk si kartana barke borom Touba dëkk si kartana barke borom Touba dëkk si kartana barke borom Touba ñooyay ku gis xutbu jamono bu am fi yow ka liiw ca borom Touba bu xëy di gis ko te lii borom Touba. lii bu dee jib ba déggoog déggi xol yi sa xoogum ngeen biral ne tànneefoon borom Tuuba ci kaw sëriñ si ñu gis ak kaw sëriñ si ñu xam te noo fi jébbalu xëy jiital borom Tuuba jébbal ko jàkka ya sa ko jàkk taxaw fa ganaam jërëjëf waarees yi ñu euh, gërëm leen bu baax a baax ci ubbi gi ngeen ñu ubbil euh, xaside gi dafay mel ni Euh, présenté ngeen ñu li ñu bëgg a waxtaanee euh, ci xasida gu am solo goo nga xam ne nii muy alaa ina nii usni xasida gi nag dafay faral di ànd ak alaa ina nii arju jërëjëf sëriñ Mbacke Mbodj waaye jërëjëf sëñ euh, daam ci réalisation bu am solo bi ñu ngi ziyaare baax soxna su gaawan Diop ak sunu soxna su baax si mu àndal ñu ñëw fi indi fi ay teraanga yu am solo muy yi nga xam ne day wettali ab jànkat ak ab waxtaankat eh, di yottali njaay ab njaayeen itam muy eh, xeet yi nga xam ne nii moo fi bàyyi ñaay fay muy xeeti bañeek xeeti café yu am solo yoo xam ne tubaarkaal lañ koy rek ngir sëñ Tuubaa rek tax ak eh, jataay bi ndax jataayu murit nii rek lay mën a demee baarakallah ñu ngi ziyaare sëñ Cheikh Balla Samb bu baax a baax a baax ci taxawaay bi gis nañ ko léegi ci régie bi xam naa ne gisuma alaaj Mbàkke waaye nee na sama jànkat tey tubaarkaal la moo ñëw xasida gi sëñ Ablaay Euh, sëriñ baa ngi ko taalif ci weeru koor euh, bi mu ko taalifee ca kori ga ca la taalif ala inna ni arju def ko muurum koor kon gii ci biir géej gi la ko euh, taalife beneen bi ci topp muy xasida goo xam ne nii dafa bari lool ay at dafa yàgg ndax ci juróomi ati gabon yi maayomba yi ca ko taalif beneen bi ci topp muy xasida goo xam ne nii xasida ñaan la waaye di xasida goo xam ne nii ñi yàlla mës a te kenn ku ci nekk bi nga ko soxlaa mu def intervention am na ci ñoo xam sëriñ bi siite na leen ci biir xasida gi yaakaar naa boo ñëwee ci tarjumaan ji rek dana feeñ ci wàllu gu baree baree bari euh, balaa boobu nag dañuy tàmbali euh, jataay bi euh, ak sëriñ Xaadim géey sëñ Xaadim dama lay bàyyi nga ubbil ñu ak xasida go xamna ni euh mom ngay ubbee xayna na yëngu ci bala ñu ñëw ci xestete lay xadim di ubbi waaw nga may ma rek ma sante euh, soxna mbenn job soxna mbenn job waaw bëgg señ fallu ndaysan euh, sama jigen la mhm. ñoo bokk benn mam mhm. ci kokki sëñ maxtaar numbe job mhm. setam bu baax bobu di soxna mbenn job yéré bu rafet bi ma sol mo wut tiseem moko ñaw momako téralé téranga nak ju toll nonu may door émission war naa ko jagleel nuyoo bu jotale. dëgg la ñaanal ko sunu borom guddal fanam. amiin wéral ay cëram. yàggal lool taxawaayam ci barke sëñ Fàllu mi mu gëm. nit ku baax la. sama mbokk la. Mm-hmm. waaye ku bëgg lu baax la. Mm-hmm. di ko jëf ci yoon wi. ndeysaan mu ngi fii ci Liberté 6. Mm-hmm. ci ginnaaw camp bi. maa ngi koy ziar baax soxna Mbène. sopp sëriñ Fàllu sa taxawaay rafet na. maa ngi lay sant di la gërëm. yàlla na la sëriñ bi fay. lu rafet lii ma sol moo ma ko solal. yàlla na ko sëriñ bi fay. waaye Jóob la sant nag. waaw ah, mu ngoog sama day sama doom santud ay ñaay fay ay Pape Cheikh yooyu xam nga da ngay waaru sëñ xaari ma bàyyi la nga ubbil ñu jataay bi ak xasida yaay tànn rek bu la ci soob su ko defee ñu door ñëw nag ci li nga xam mooy xasida gi nu fas yéene waxtaane أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليما أحببت رب العالمين مع الأمين والأمين وانقاد ذكره الأمين كالكلي وجسدي أحببت رب العالمين مع الأمين والأمين وانقاد ذكر الأمين لكلكلي وجسدي ناجيت ذا العرض العظيم بالحب مع در النسيم ولي كان بعزيم وسانني عنه السديم مع بتوحيد العاد قلبي يا رب الملتحات ولم يكلني لأحد في سفري وبلدي إلي قاد في سفر قلي وعدي بسفر مستخنيا عن النفار بجنده في خلدي لم ينعني مبارس وفيد ربي بارس إبليس لا يبارس جند العزيز العديد لم ينحني من اترات أو من لقلبي مرات وليقود في الخرات ربي ما لم يجحدي الله كان لي بما يبقي سلالا سبما خدا ولي خوتا بما خاد وخير رقدي هدية الله المعين ساخت لخير اللحين واليوم بالله يحين من ساءه في خدي مد لي الله البصار بجاي سيد البصار ولي يمنه النصار لم أنحما ما لم يفدي علمني الله الحليم مما يساء من حلوم وسبقت لي بكلوم منصرفا بسفدي ناجيت ربي الكريم بكتب ليست تريم أنوارها ولي يروم أحمد خير سفدي الله رب العالمين الدين صلى على الحادي الأمين في الملأ المكملين عن روحنا والجسد barke sëñ Touba jërëjëf sëñ Khadim xam naa ne bu ma sañoon boo ci mënoon a yokk yaara bi bil Moustapha comme dañoo nekk ci jamono kii ñu ubbeeku rek su ko defee ñu door a ñëw ci sëñ Ibrahima mu mun ñoo présenté tarjumaan bi بسم الله الرحمن الرحيم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فهاكم واسع أبيات صفاء من كل داء وحسنا عظيم من مكائد جميل أحداء عرب بالمصطفى المختار من مدري سفيه أمته في البدو والحدر يا ربي بالمصطفى المختار من مدري سفيه أمته في البدو والعدر عليه سل بتسليم بلا عدد في الآل وسعب وعصمنا من الدرر هد أمة المصطفى عما يجر لهم سوى الحبادات واحسمهم من السرر واصرف لخيرهم سيطان في أبد ولتكفيهم كل من يسوء من البسر ولتذري داحا مرد الجميع به واصرف لهم موجبات الأمن والبسر واجعل قلوب سوي الإسلام في أمن ولتكفيهم كل ما يفدي إلى الخرر وسل دعبا بتسليم عليه بمن لحنت مولت جد بسفر والدرر آمين يا رب العالمين ñu sant ko bu baax a baax a baax ci xasida yi nga xam moom la ubbee eh, muy bunt bu njëkk ci mafatihul jinaan mu inna allaha maana ñëwaat na itam ci eh, xasida gi nga xam ne ni eh, tubaarkàlla ko de xam na ni jamono ji ñu toll ak contexte bi sëñ Ablaay danañ koy faral di jàng lu baree bari ngir yàlla saafara jàngoro yi waye itam musal nu ci bu baakha baakha baakha baax kon yalla nañu ko sun borom defal ñi ngi ziaré sëñ Maram Kayre mi nga xam mo jité astronomie nga xam ño nek ci réew yépp wax na ma ma maa ngi ak jotaay bi ñu koy ziaré mook soxnaam moom bi ñuy def yi natal bi ak aladji Mbàkke yu ndeysaan moo ñëwoon jàppale ci liggéey bi borom xam-xam bu mag ñu ngi koy ziaré baakha baax sëñ ci tarjuman ji mm-hmm. waye dafa melni bi borom di tambalé ci tarjuman ji mm-hmm. bi mu waxee haasihi mim ya daf ne allahuma inna aada yi wa aada yika waaw xam nga kon mën nañu dellusiwaat ci mhm. waxoon nañ ko fi bu yàggul ci ne sëriñ bi amul noonu noon bi sëriñ bi am mooy noon bi nga xam ne nii mooy noonub lislaam waaw kooku moom sëriñ bi déclaré na la guerre mhm. kon noonub yàlla mhm. mooy noon bi nga xam ne ni moom la li yàlla samp moom la opposé noonu noonub sëriñ bi mooy noon bi nga xam ne li yàlla samp moom la opposé nga ñëwal ñu présenté ñu tarjumaan ji bala ñu dugg ci xas xasida gi waa kay jërëjëf euh, sëriñ Xaamidun waaye mm-hmm. jërëjëf sëriñ Xaadim ubbi bi neex na lool mm-hmm. te wér te rafet mm-hmm. yal na yàlla sàmm amin euh, xasida gi wax nga ko sëriñ bi ci jeexitalu koor ci kor yi ci la ko sëriñ bi taalif taalife ko ci géej gi booba mu ngi ci liggéey bi nga xam ni moom la moom la liggéeyal yanant bi alayhi salaatu wasalaam muy tukkib géej gi nga xam ni juróom-ñaari at yu teg juróom-ñaari weer def na ko ci ak tuuti euh, muy liggéey boo xam ni tey moo tax sunu lépp jag mhm. jamonoy tumuranke boo bii nga xam ni sëriñ baa ngi ci mhm. euh, ci la woo boroomam mhm. xasida gi xasida ak ñaan la xasida gi xasida ak cant la ndax sukru feeñ na ci biir xasida gi xasida ak tàgg la ndax mu ngi ciy bàkk yàlla xam nga ni mu ko doore ala inna uth nii ankay mm-hmm. xanaa dinaa bàkk dinaa tagg mm-hmm. dinaa màggal yàlla sama borom mm-hmm. su ko defee kon ci tarjumaan jooju nga laaj sëriñ bi delloo si ni moom amul ku mu jàppee noonu ku dul ki nga xam ni noonu na li yàlla tëral te yàlla euh, wax na ci alquran ni jàppee leen seytaane noonu waaye ki nga xam ni tey jëful jëfi seytaane amoo droit jàppee ko noonu kon sëriñ bi ñamu wax ni ñooy sa noon yi yow yàlla ñooy samay noon mu door ni bismillahi rahmani rahim maa ngi tàmbalee samay kàddu man cheikhul xadim maa ngi tàmbalee bind xasida gii di allah inna nii usni man cheikhul xadim maa ngi tàmbalee ci turu yàlla sama borom bismillah mu daal di joxe sifaat yi nga xam ni bokk na ci turu yàlla yu ñu xam muy arrahman ak arrahim jàngalekat yi dañuy wax ni rahman bu ñu ko waxee ñépp a ngi ci biir ñi weddi yàlla sax ñiy taxaw di tuur ndox ak ña weddi yanantu be ña ko gëm ak ña ñuul ak ña xees ak ña weddi ne sax yàlla am na ñëpp xaj nañ ci ñëpp xaj nañ ci rahman jooju mhm. te ñëpp la jox xéewalam googu la ko dig mhm. moo tax boroom xéewal yu dijj yi lañ koy wax léeg-léeg mhm. wala boroom xéewal yu yaay yi mooy turu arrahman mu ni arrahim boroom xéewal yu sew yi lu tax ñu ni boroom xéewal yu sew yi ndax mooy ña nekkoon ca la mu gërëm mhm. ëllëg ñoom la dikk yërmande jooju kon yool ko yërmandey àllaaxira la mooy arrahim mhm. mu teg ni sallallahu taala ala sayyidina muhammadin mhm. jaam bu mu doon booy ubbi mbir boo jëlee lépp jox yàlla doore ko ci war ngaa xool ndawal yàlla li mu gën a bëgg de yaramtu bi nga julli ci moom moo tax mu ni wa sallallahu yàlla na yàlla dolli tedda ngeen yàlla mi aji kawe ci lépp yàlla na ko dolli ci kan mu ni ala sayyidina ci sunu sang bi mhm. nu mu tudd mu ni muhammadin ki tudd muhammad mhm. ndax moom rek nga ñaanal mbakke bal mu ni déedéet mhm. wa alihi ak waa këram wa sahbihi ak ay àndandoom nga xam ne saaba yëpp dugg nañ ci wa sallama taslima te yàlla na yàlla sërmal ak sërmal wala yàlla na yàlla musal ak musal ci yanante bi alayhi salaatu wasalaam muni Allahumma yaw yalla mo melni fi ni bi da fay khata xaata banteeg mhm. mu ngi jakkalu yalla ko allahumma yaw yalla sama borom mhm. inna aada mhm. niki samay non man serigne tuuba wa aadaika wa aadaaka ta nek say non. wa ni tax aadaaka eh, inna ji moko waral yang grammaire yang may deg wa inna ak anna dañuy nasab lo ba kon muni. inna aada yi ni ki samay noon wa aada aka ak say noon alxaw nii ñoo ma sànni sànni nañ ma mhm. kon ndeke ñi sànni sëñ tuubaa ci géej gi ngir tumarankel ko ñooy nooni yàlla yi waaye ñooy nooni sëriñ tuubaa yi mhm. ñooy nooni yenante bi alayhi salaatu wasalaam ñooy nooni bépp jullit bu bëgg lu baax ndax ñoom rek la war a jàppe noonu mhm. ndax li tax ñuy solal sëriñ tuubaa lépp mooy li mu wéetal yàlla nangoo tagg yanant bi di ko roy ak di défendre alquranu karim moo tax mu ni kon ñoom ñooñu alxaw nii ñoom a sànni fil baxri ci biir géej gi mhm. kon fàttali nañ ñu ngi ko sànni ci biir géej gi mhm. kama alxaw xalilaka ni ki ñu sànne woon sa xarit ba yanant yàlla ibrahima daal di dugg mhm. ñoom sa noon yii di samay noon sànni nañ ma ci géej gi man cheikhul xadim comme ni ñu sànnee woon sa xarit ba yàlla moo ni wa taxazallahu ibrahima xalila yàlla jàpp na ibrahima muy xaritam kon sëriñ bi lii mu wax waxi yàlla ni ñu sànnee woon sa xarit bi nga xam moom nga jàpp xarit mu ibrahima fan lañ ko sànni woon mu ni finnaari ci biir sawara sa ñu jàngee saaru njox sóotu lan biyaa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 laxat alimta maa awula yanti maa awula yantixuun mhm. waaye yàlla dem ba ca mhm. ba ñu sànni ko ci sawara fa xul naa yaa naaru koo ni bardan mhm. wa ala ibrahim foofa laa soxla yàlla sunu boroom ci saar woowu di suutul anbiya yàlla dani wala xat aataynaa ibrahima rusdahu min qabl nu ni yàlla ñoo jubale yanant yàlla ibrahima jox ko njub gu gaaw wa kun naa bihi aalimin ñoo ko xamal tam njub ndax léeg-léeg nit jub te du xam jub fu ñu koy wute ci mhm. waaye noonu yàlla ñoo ko jubal wan ko yoonu njub xamal ko njub mhm. waaw mu ni fàttalikul isqaala li abihi mhm. wa qawmihi maa hazihi tamaasilu lati antum laha aakifoon fàttalikul bi mu waxee ak baayam ak gaa yi baayam mooy ñan ñam bokkal réew waa papa lii ngeen di jaamu lu mu doon waa papa lii ngeen di jaamu lu mu doon ñu ne ko Ibrahima bu ñu sonal waaw bu ñu sonal lii la ñu fekkoon sunu bàyyi ak sunu maam yi ñu koy jàng mhm. di ko jaamu di ko gëm nga bëgg ñoo génn ci lii lii lañuy ñuy jaamu mhm. mu ni leen yéen da ngeen a tardé mhm. li ngeen di jaamu nekkut yàlla ndax loo xam ne su ngeen ko woowee du leen dégg mënta faj seen aajo nu ngeen koy jaamoo lii mënta nekk yàlla ñu ne ko ndax dangay ngay kaf yow Ibrahima wala sa dëgg nga nekk mu ni ci sama dëgg laa nekk yàlla mënta am ñaar te lii ngeen di jaamu dinaa ko saboote am na benn galerie boo xam ni parce que baayu Ibrahima mooy Azara. Mhm. moo leen daan yettal seen xërëm yooyu. Mhm. am na benn galerie bu ñu daan installé mooy mhm. tableau d'art yi. fa la ñuy def seen statuette. jàppee ko ay yàlla. Ibrahima alayhi salaam bàyyi ba ñu am feet. mu fexe ba wut feem ne damaa feebar sama biiray met inni saqibun ba ñu bàyyi ko fa mu jël sémmiñ yi jël sémmiñ bi toj yàlla yu ndaw yëpp. ba mu des yàlla ji gën a rëy mu wékk ko sémmiñ bi. daal di koy wékk sémmiñ bi mu ko wékkee sémmiñ bi ñu ñëw fekk yàlla yépp toj bu mag bi gàddu sémmiñ ñu ni ki def nii sunu yàlla yi saboote nañu ñu ni déggoon nañu benn goos bu leen di saboote bu tudd Ibrahima est-ce que du moom foofa nag alquran nee na Nemroos ibn Kanxaan ni wool leen ma Ibrahima bu dee moo ko def ñu piniru ko ñu teg ko daal ñu woolu Ibrahima mu ñëw ñu laaj ko ne ko anta fa anta haza bi haalihatina ya Ibrahima ndax yaa def nii suñu yàlla yu Ibrahima defuma ko bu ngeen fekkee yàlla yu ndaw yépp daal di daanu bu mag bi yor sémmiñ est-ce que du bu mag dee ko def xalaat leen ba xam bu mag bi defu ko bala ngeen maa accusé mm-hmm. laaj leen ko ba xam du moom xam na ni ay statiyet mën ta wax ak ñoom mm-hmm. laaj leen ko mm-hmm. foofa nag alxuraan ni ah farajoo ilaa anfusihim ñu del si waat ci seen xel nag daal ni ah kii ñi bëgg a yaay waaye fa xaaloo innakum antum zalimun waaye nag terewul rek ñoom xam na nañu ñoo tooñ waaye mun leen yéen xam ngeen di tooñ Mm-hmm. waaye nag ñu daal accuse Ibrahima da nga ñoo tooñ parce que li nga ñuy jéem a dugal xam nga ne sunu bàyyi mosuñu koo gëm mm-hmm. su ma nukki soo alaaru oosihim ñu delluwaat seen dëgër bopp goog laxat alimta yow Ibrahima bu nu tooñ yow xam nga ni maa haulaay yanti xoon xam nga ni ñii mënuñoo wax waay mënuñoo wax parce que ñii mm-hmm. dégguñu li ñuy wax ak ñoom qaala afa ta'buduuna min duunillaahi Ibrahima ndax da ngeen di jaamu ci keneen ku yàlla koo loo xam ni maa laa yanfa'ukum shay'an wala yatrukum ndax da ngeen di jaamu lu leen mënta jariñ ci dara mënu leen a lor kon uffin lakum wali ma taabuduna min dunillah afala taqiluun yàlla na yàlla yàlla dugal leen sawara yàlla yàlla alag leen yéen ñiy jaamu lu leen mëntal jariñ mënu leen a lor hmm. yéen xam ngeen ne da ngeen sànq foofa nag xaaloo arixuuqu wansuru alihatum in kuntum faa'ili hmm. foofa alxuraan ni wax leen leen ñu indi sunuy matt yi ñu am yépp comme kii danoo xas saboté sunu yàlla nañ ko jëfal sunu doole ba wan ni mën nañ koo punir mooy na kàmb gi ni gasal Ibrahima alayhi salaam ngir lakk ko foofa nag yàlla intervenir ni xul naa yaa naaru kooni bardan wa ala Ibrahim nun yàlla ñoo wax ni yow sawara si doon te yaa ngi takk bu lakk Ibrahima dalal nga sedd guy ci kaw mel ni glace waaye bu ko lakk moo tax alxuraan ni wa araadu bihi kaydan fa jaalnaahumul axsariin namoon nañ ci Ibrahima pexe waaye yàlla def te leen ay perdant dañoo mucc perte. Hmm. gis nga nag loola Ibrahima defoon ak ñoom eh, nga xam ni dafa défendre yàlla ngir wéetal ko. Hmm. ñu sànni ko ci safara. sunu borom fayal ko safara si. Hmm. te Serigne Touba wax na ko ca Masiyaat ci beneen anam. nee na bii xadat naaru Ibrahima baaridatan ma asalaami hësa xar ko àddaati. loola la Serigne Touba fàttaliwaat. ci biir tarjumaan ji. moo tax ci biir tarjumaan ji boo demee sëriñ bi yow yàlla sa noon yi tey samay noon day sànni nañ ma ci biir géej gi comme ni ñu sànne sa xarit bi Ibrahima ci biir sawara soosu nga fayal ko waaye biñ ko fa sànnee waxaatab tëxaa yow yàlla yaa wax ak sawara sax yaa communiqué ak moom noo communiqué ak moom biya narukuni bardan wa salaman ala hmm. ibrahim Ya communiqué hmm. sawara si niko ya yow sawara si nekkal sawara si jàmm te seet duguy ci kaw ibrahim hmm. bang nga ko waxee yow yalla mi nga xam dara tewu fa saarati naaru ca la sawara sa jannatan lahu melni ni ci ibrahim alayhi salatu wasalaam muni nak wa ala jamil ambiyaay wal mursalin kon mu ngi ñaanal ibrahim momu ak mboolem ndawel yalla yi ñi mu ak ñiko solo salaatu ak salaam. daal nag yaa rabbi kon yow yàlla sañ naa laa comme bi ñu sànnee Ibrahima ci sawara daal yaa ko defaan ba sawara lakk ko yaa ko seral mu nekk jàmm ci moom. kon sa ñaalaa man sa jaam laa maa ngi lay woo tey ci géej. ni ko yaa rabbi yow yàlla sama borom. dëll ni ko yaa rabbi yow yàlla sama borom. dellu ni ko yaa rabbi yow yàlla sama borom. ni ko yaa xayyu yow yàlla mi nga xam yow rek yaa aji dund te doo faatu. Mhm. ku dul yàlla dina dund waaye dina fi jóge. Mhm. yow da ngay yaa xayu yaa xayuumu yow yàlla mi nga xam lu dëgër yaa ko taxawal ba mu dëgër mhm. ci sa kàttan rek la dara di dëgëre mhm. ni ko bi xaqi sëhri ramadan allazi mhm. maa ngi lay ñaan ci darajay weeru koor wi nga xam ni la unzila fihi alquran ci la ñu wàccee téere bi gën di alquranul karim xudan linnaasi ngir mu nekk njub ñeel nit ñépp wa bayyinaati min alxuda wal furqaan mu nekk tam luy fësal di leeral mhm. lépp luy bàyyikoo ci njub mhm. ak ci tàqale dëgg ak neen mhm. téere boobu wa bi xaq zalika al ak ci dara darajay wàqante bii may wàqante yow man sëriñ Bamba maa lay ñaan sunu borom ni tekk di ko déglu ci géej gi mu ni ko sàqiir lii na nga ma tàggatal saqir lii na nga ma tàggatal hëzal bahar gile géej yaa tàggataloon Ibrahima sawara sa dara tëwewu tëwewoo loo bëgg a def mu sotti tàggatal ma géej gii wa ëxla ak ñi dëkk géej gépp ñu déggal ma mhm. parce sëñ bi muy ñaan mhm. yemul si géej gi mais géej daa am ñu ko dëkk ay habitants mhm. kon ñi dëkk géej gépp tàggatal ma leen ñuy dox ci sama ndigal wa jamii aada yi te nga tàggatal ma tam sama mboolay noonu gis nga ñaan gi ba ko sëñ Tuubaa ñaane ci la kuy noonu sëñ Tuubaa dugg fi ne képp ko bañ mbiru sëñ Tuubaa rek xamal ni mënoo ci dara tàggatañ la ca géej la la tàggate wa a aada yi ku ne xam ne ne géej daa am borom daa am borom mhm. ak mboolem samay noon mhm. wa aada yi ka ak mboolem say mhm. noon yow yàlla wa bashiril muslimin nga sëy seexul xaddim ko gore ko ne war nga dëgg la saa suy ñaan balaa ñaan a ma daanu mu ñambaas ci képp ko bëgg yàlla nga wa bashiril muslimin na nga bégal mboolem ñi aju ci islam wal muslimaat ak mboolem ñi aju ci islam tey jigéen kon waxul góor ñi bàyyi jigéen bi liqaa yi wa ru'yati wa sam'i ci sama dajé gi may dajeeg yow hmm. ci sama gisanté gi may gisanteeg yow hmm. ci sama dégg gi may dégganteeg yow hmm. ci sama dellu si da nga ma tagatal jàppandala ma sama dellu fan ila daari salam. waxon na la sa buy way tuub ak daaru salam ñaari daaru salam lay njëkk bind ndax neena na baatinu salam moy mooy ci khalimam batinu tuba daaru salam dëkk bu doy war ila daari salam sama dellu ci daaru salam wa tuuba ak tuuba aajilan ci lu gaaw bilaa masaqatin ci lu ànd ak coono wala tasabubin min nii te lu ànd ak ma koy sabablu sax defaral ma ko amiin nangul ñaan yaa rabbal alamin yow mi moom adduna yéeg mindeef yépp bi jaahihi ci darajee sama waa ji yanant bi mu ni sallallahu taala alayhi wa sallam yàlla na yàlla dolli tedd ci moom te musal ko waaj alta na def heusi il miim ya sama xasida gii nga xam ni miim lay jeex ci arab ñi jàng xam-xamu arut mhm. buñ nee xasida sàngam nuuni yi la mhm. mooy xasida guy jeexe nuun mhm. buñ nee raa ya mooy buy jeexe raa laam ya mooy buy jeexe laam waaw waaye buñ nee miim ya mooy way yu daanoo miim ci la woy wi daanoo moo tax mu ne kon wajal na nga def heusi il miimi ya sama miimi ya bii nga xam way miim lay daanu faw xam katabtu mu nekk ci kaw mboolem loo xam ni bindoon naa ko wa fawqa ma zannantu ak mboolem lu ma njortoon di ko yaakaar kama huwa ka comme ni mu nekkee sa aada rek yàgg nga maa defal loolu comme ni mu nekkee sa aada mm-hmm. maa i ànd ak man mm-hmm. fii maa xultu ci lépp lool maa ngi koy wax xabla mm-hmm. xaa ca la jiitu waj al xaata na waj al nga def xasida gi zaadan lii muy ab yóbbal ñeel ma waj junnatan تموي باك دي ديفانس بماي ديفاندر وجناتان تموي اجانا في دارين في ادنا اك الاخره كون غيس nga ترجمان دي نيمو ريشي لي لا سيرين بي نيان افان موي دوجو سي واي قصيده كيغا خام ميمي لا ما تاخاو فوفو سيرين حامد نيو داما ام نياري كيسيون بالا نيو نيو سي سيرين خادم مو دي ييكتي القصيده كي واو بن بي موي دا فا واخني الخوني في البحر واو كما الخو خليلك خليلك في النار واو kon ñaari mission la kee mission la yoroon. waaw waaye liñ ko doon defal. waaw euh, liñ ko doon def. Mhm. liñ ko santoon. bi ko noonu jàppee. waaw ndax yàlla mooy def noon yi. Mhm. may leen doole. waaw di seetaan sa niveau sa capacité. waaw bi nga war a amee tawxiid fan lay toll. waaw ndax gis nga bi nga xamee na takk nañ Ibrahima ba jëmee ko ci sawara si. waaw malaayika mi da koo laaj ne ko lan sa borom nee na lan ngay wax. waaw mu ne ko awma lu may wax. waaw parce que ming mi ngi may gis. xam gi mu xam ne maa ngi condition bi doy na. waaw amul benn problème ñii ñii mooy kii nii ay nit lañ rek. amul problème. aw ci benn problème. waaw ah kon kii kat. Mhm. tawxiidam yàgg na fii. Mhm. daal di yónnee. waaw xoolal foofu sa femme sew sew boo xam dama bëgg nga leeral ma ndax bi ñu def intervention. waaw deful intervention ci nit ñi. déedéet li yàlla wax sawara wi mu sedd. su ko waxoon nit ñi ñu sedd. waaw waaye la waxal directement. directement waaw. waaw dëgg la waaw xam nga te yàlla mënoon naa doon benn bomb boo xam ñoom dañuy xam jibril donc buñ ko gisoon ñoom ñëppay xam waaye sawar wi la def intervention waaw ne ko nag àndal bardan bu doon sedd képp mu ëpp wasalaaman jàmm boo xam day équilibré nga xam ne du tàng ci moom du sedd ci moom mu ñëw toog ca loolu tax it a ko ko may waaye kama alxaw xam nga moom alxaw nii fil baxri la wax waxoon na ko fële sa yare nii ak axraj tumu nii kon génne woon ko de yoon wu ci nekk saani lay doon waaye wax ci biir moom la daloon Ibrahima da koo dalaat. waaw kee dañ koo sànni ci sawara moom ñu sànni ko ci ndox. waaye daf ni ci biir xasida gi de eh, xàbbu ñaareel bi def ni. wala astaki lil xalqi. waaw parce que yàlla la koy ji di ko wax. mbindéef ñaar yooyu laa bëgg nga leeralal ma. xam nga sëriñ bi fi mu wuuteeg ñëpp mooy sëriñ bi mës ta nangu intervention mbindéef. waaw ba ci fii ñuy wax nii man ak yow. Mhm. xanaa xamoo yonent yàlla Ibrahima feeñu na ko fii. Mhm. fii nii. Mhm. wax na ko nee na yonent yàlla Ibrahima alayhi salaam feeñu na ko waaye dane ko bala bañ la sànnee ca sawaras euh, nemros ga yàlla ma la fa xettali woon yàlla moom mosu fee jóge te du fi jóge yàlla moom doy na ma walis may wut ndimbalu kenn kooka laa soxla man kooka laa soxla moo tax wala astaki lil xalq min faqdi an'umi waaw mës du ma jàmbat man Sëriñ Tuubaa benn mbindeef lil xalq te xam xaalix xam nga lu ko waral dafa xam xaalix moo tax du jàmbat xalq dafa am lu ñuy wax xaalix xaalix mooy ki sàkk lépp koku duma ko xam di dem ci xalx moy limu sak xana xamo luñu sak lu ne am limit limite waaye ka sak mo amul limite motax serigne bi ni jombante nak dem di sak nimbal ko xam dañ ko sak te mu wóor ma ni kiko sak sak ma mu ngi fi makoy koy gis nga bobu tawhid ni mu sama problème mindeef wala ashtaki lil qalb min sax di an omi ben problème buma buma am wala xewal guma ñak Mhm. jomb naa man Cheikhul Khadim di ko jàmbat mhm. mindeef ni man mhm. te mu wóor ma ne yàlla moo sàkk mindeef yi kon niveau boobu sëñ Tuubaa dafa yor tawxiid jooj mooy tawxiidu Ibrahima xam nga li nga wax ni da ko wax ci rom naa nga firi bayit wi waaw in kuntu za wajalin waaw in kuntu za watarin aw kuntu za wajalin waaw naajaytuhu wa huwa yuxnii nii wa yaxmii nii su fekkee man sëñ Tuubaa nekk na mhm. di boroom aajo bu ma bëgg mu faju mhm. wala ma nekk di boroom njàqare lu mu bëgg ñu dindil ma ko mhm. yàlla sama boroom laay woo mu déeyaaleeg man ba pare aar ma kon wala astaki lil xalqi day ñëwaat foofu day ñëw sëñ Tuubaa mësta àgg na sax ci waxuma moom moom niveau dafa dépassé ñëpp waaye ñun ñi ko yaakaar nee na képp ko jàpp ni mindee fa yor sa njariñ wala mindee fa yor sa lor. Mhm. xalaat gi nga ko xalaat rek dina la jural coona ak jafe-jafe sa dund gi. Mhm. Mhm. da ma ci xasida qul huwa allahu ahad. sëñ Tuubaa nee man danna. gayra allahi yugni aw yadur. fa zaaka fii daarayni zoo kardin wa dur. nee na képp ku njort ni. toog ba mu yàgg ngay xalaat sa xel naan man Hamidou Diop wala man Ablaye Diop Bichri. est-ce que kii su ma ko kii du garaaw parce moo yor sama dépense. wala diw mo yor sama nànkam diw bu ma beree est-ce que du graw ba du ma dëkku sax ma faatu mhm. xalaat bi mu koy xalaat rek neena ci choona ngay dekk sa dund gépp yàqu mhm. kon nga xamni ni moom waxul moom niveau mhm. waye kep ko jox nop rek beggul ngay wéeru ci mindeef mu lay gadul dara te lepp wéer ko ci yalla sunu borom kon ñi di du bëgg a ak tawhid tawhid nanu dem te baña yem ci sama wax bañ a yem ci sa wax comme jang nan te am nanu xam-xam waaw nanu jël xasaa yi touba yaangi Tuubaa bu buñ ci defee tuuti temps te ki ñaan nekkul ci ñoom ñoo nar a am ndimbal dinañ xam ne suñ Tuubaa amul amul morom ñàkk moroomam feeñ na ci tawxiidam mhm. fa mu teg yàlla place ba dafa kawe ba jéggi day mhm. nga xam na muy joxe suñu borom mhm. euh, màggaayam amul ku ñu mës a gis mu koy joxe noonu suñu borom màggaayam dëgg la nga xam ne du ko nuróoleeg dara place bi muy teg yàlla du fa teg mbindeef du ci xalaat mbindeef yàlla rek la fay teg dëgg la waaw du jàmbat problème mbindeef am dëgg la xam nga yow ci sa biir waxtaan da lay ba am na ci yoo xam ne euh, moo tax ma ma mën kon noonu ndax tarjumaan yi buñ ko tuddee loomu ko day mel ni ku nekkoon ci jafe-jafe di jàmbat te moom dafa firil boppam ci wala astaki waxoon na ko faral sax nii katabtu wa inni shaakirun waaye lastu zastika loolu moom loolu moom leer na moo tax ma bëggoon nga leeral loolu dem xam nga li ngay dëggale loolu mooy sëñ Touba dalay leer ne maanaam li mbindeef di am ndem Ibrahima a ñëw bëgg a def intervention xalilullah mu gàntal ko soxla yàlla sëñ Touba kenn du sëriñam ku dul yonent bi waaw xam nga suñu waxee parfois ñu ni ñuy wax waxi daanu waaw fekk niveau bi moo ko andi waaw xam nga seigne Moussa Ka radiyallahu anhu euh, bo demé ci njur njaay mhm. xolal yi mu mhm. xam nga ñu dañuy wacce parfois seigne Touba mhm. dañ ñaan murid dañu ëppal mais ñun dañ koy wacce parce que wacce seigne Touba moy di xalat sax ci kenen ndax yenantu yi lako Moussa Ka no xal yenantu yi ngand yi la wax dani ko sa mbootum xalimaa raw su Moussa waxul tollok dabbu su Moussa mo raw la wax te sëñ Moussa ka xam ngeen ni ku ne xam na ne alim la aarif la mhm. dañu ko sa mbóotum xalimaa raw dabbuusu Moussa mhm. te way deeye nga dek dekkal way deeye nga dekkal mhm. te woon na Isaa waxul Isaa mën na ko tëna ko ñii ay yanant lañ yoo xam ci ulul azmi lañ bokk juróomi prophète yi ëpp doole surtout lahzab indi leen Moussa ka ni ko sa mbóotum xalimaa raw dabbuusu Moussa te nga dekkal te woon na Isaa waaw daal ni boroom taar bi le semmal na saaru mbërgaan Yuusufa dugg na dal ni tabaraka ma jangal ko saaru furxaan mhm. dal ni bu tawreetu ñëwaatoon mu fardi musa musaa bu injiilu ñëwaatoon mu donn isaa mhm. se géeju hikamit rawna na luqman luqumaan mhm. sa waxtanu hadith it sewal na nu'man qasayid yi nga talif mu ne su koo móol nga feñal mu ne su kon koku fim ko tegg grawna dem ba mu yàgg mu ni euh, la Ibrahima defon tali gaay Nemrose nga def gaay dan daan wax comment ki même chose ah yow la ñuy waxal Ibrahima rek la Serigne Touba defaat yow la Ibrahima defoon gaa yi Nemrose muy Nemrose ibnu Kanaan mhm. sunu waa jii moom la defak ñu doon wax comment ki même chose muy nasaraan bi. Mhm. lii moo tax nu mel ni nu mel ci Serigne Touba. Mhm. Ah, kon wàññi Serigne Touba mooy di ko dendale ak koo xam ne waaw àggul sax ci niveau yanant yi xam nga xam nga dangay ngay jékki-jékki dem ci jataay yenn jataay yi nga xam ne opposants yi gaa yi dañ fay ne da ngay tok deg deg deg ñu naan waaw xam nga señ bi jaar na ci di yoyu da ko doon defal ngir rafetal rek ñu fi fekk waye mom kenn du serignam ku dul yonent bi la la waaw dama ne yonent bi nga xam ci ginnaaw kenn yonent bi gën ñepp waaw yalla lu mu ko waxoon tabiq milata ibrahim hmm ha toppal diina ibrahima mhm. pourtant yonent bee tax nu sàkk ibrahima te Ibrahima maay maamam. Mhm. te yàlla digal na ko nga topp ci kii roy ci. waaw mhm. ah, te ku ne mhm. xam na ne yenentu yàlla Muhammad a gën Ibrahima. da wallaay wallaay waaw yooyu yooyu mënta ñàkk. waaw nit bu jógee faaw mu am ay yoon yu mu jaar. waaw sëñ Cheikh na ngay daanu rek. waaw baana li kulli man lahu maqulu. an na wasilati huwa rasulu. jeex na tàkk jërëjëf sëñ Xaadim. Eh, yaakaar naa sëñ Ablaye ubbil nañu tarjumaan ji dama lay bàyyi nga ubbul nu xasida gi su ko defee ñu door a ñëw nag ci Eh, li nga xaw maa xamul nag bu sëñ Ablaye ñëwaatee xasida gi xaw ma da ngeen koy da ngeen koy def njàngum ki xaw ma nu muy demee daal waaye li ma bëgg mooy nga ubbil ñu xasida gi ba noppi balaa ñuy ñëw ci eh, li nga xam ne ni mooy dëgg dëgg dëgg toj bay di bismillahi rahmani rahimi alaa innani usni ala xayri ولا أستكي للقلق من فقد عن حمي ألا إنني أسني على خير منحمي ولا أستكي للخلق من فقد عنومي فمن سنني في خربتي ساعة تسلل إلى خير مخن وسين فهو وخد عمي لو أستكيد فيه وفقري وخربتي وأرجو رجوحي حاجلا خير من عمي له أستكيد فيه وفقري وخربتي وأرجو رجوحي حاجلا خير منحمي شكوت له عاتسي فأسكى وكان لي بما فاخسني فا وأكرم مكرمين نحى جانبي من رهم كفرهم به فانهم حماني تاردا كل مجرمين له سكر مني راجيا منه مطلبي بلا كلفة مني وقد سال محرمي لئن خرني من خر رهوزا حاسدا فما خرني من خر لني بالتكرم فمن يلخني للجاه في البار ساخلا فقد جاءني في البار جود المكرم ومن ساءه كوني لمولاي حابدا وكوني خديما لي سفي المخدم فإني له في البر والبحر عابد خديم لمنج من دواهي تندمي ومن سدحني فال مواهب أخبلات من الواسه المخن الحفيز المخدم ومن يلخني في البار روما لخربتي فلي من إلهي رود في كل عالمي لرب التجائي في هدوري وخيبتي وبالمصطفى أسكو له نحم سلمي عليه صلاة الله ثم سلامه بآل وسعب ما مع كل مسلمين عليه صلاة الله ثم سلامه بآل له والسا بما كل مسلم إلهي على خير البرايا محمد أدم سرمدا أسكى صلاة وسلمي مع الآل والأصحاب بتر وردني سريحا إلى توبة فوتني وعلمي دفا ملي في سيدي خادم تامبلي دوينا كمان واي دانيو تي تامبلي قصيده واو Euh, yaa ngi jàng nga ñëw nga ci tarjumaan ji. waaw mën nañoo ñëw ci. Mm-hmm. directement ci ala inna ni usni. Mm-hmm. ala xayri munhimi. waaw dafa mel ni alaa ji rek da ngay taxaw. waa da ngay taxaw moom. waaw waaw xam nga alaa ji istiftaax la ko def. wax mm-hmm. ubbee. da ko ubbee aw wooy. waaw ndax alaa dafa bari ay rôle yu muy waaye fii. da koy complété di ko ubbee aw woy mu ngi mel ni kuy wax rek xeeti woyin la wu rafet nag mhm. ci xeetu itnaab woyin wu rafet woo xam ni ah ankay mhm. lu koy tere wala ankay mhm. waaw xam ni xeetu dolli ko saw wooy la léeg bëgg laa wax nga dima sëñ Ablaay mbaa di nga dem ci kii bi man la waaw dinaa dem loolu doyoon na xam nga ah, ah, ah lu may teree dem ah. <laughs> foofu loolu kay du question ni ko gars yi di waxee su ko defee alaa ankay waaw waaw nii man cheikhul xaddim us nii dinaa woy dinaa tagg bu baax dinaa bàkk ala xayri mun'imi ci nga xam ni mooy ngën ji kuy xéewale jaamam mhm. waaw man bu may bàkk dama bàkk kenn ku yàlla sama mhm. kooka lay bàkk ndax kooka du la may tey ëllëg mu xarab ci lim la mhm. yàlla rek mën na laa may tey ëllëg mu xarab la ci lim la may ku yàlla dalay may tey ëllëg du am lum la may dégg nga wax. Mhm. ku ku dul yàlla dalay may tey ëllëg mu xarab la. Mhm. ku dut yàlla dalay may tey mhm. su ëllëgee du am lu mu la may. ku yàlla dalay may tey ëllëg day wuute pour may la. waaw yàlla rek moom yooyu. yàlla am li muy maye. te du jeex. ku dut yàlla da ngay yàlla mën di may jaamam. te da koy may te saa su xëyee mu yeesal may gi te du ko toppe ak matadeem. fi mu ne ki ma yor rek muy ab surga. su ma ko doon may ba mu yàgg mu trahir ma trahiraat ma man naa topp xoolu doomu aadama ni kii daal c'est mhm. yàlla ñun saa suñu xëyee tooñ ko mu xëy yeesal yërmandeem mhm. moo ne manoon na ni ñu ngi may tooñ de mhm. waaye weer wii ma ma leen tiimale mu leen di leeral guddi dinaa ko arrêté pourtant saa bu ñu xëyee tooñ yàlla waaye weer waa ngi ñu tiim dinu leeral ndox mii manoon na ni naa koy jox jullit yi képp di leen tawal yéefar yi ma weddi ma xañ leen ko waaye ñépp lay jox ravitaay leen ndox léeg-léeg sax nga dem Amérique. Mhm. ci suuf yoo xam ne fa la mooy yàlla di ëppee ñu wedde yàlla. Mhm. taw ba fa lay gën a doxe mhm. kon yàlla rek ay yàlla. waaw sant santal rek ay sant moo jar a yaayoo sant. moo tax seexul xaddim nii dinaa ko tagg dinaa ko bàkk lool ndax moom mooy ngën gi ku mën a xéewale jaamam. te du tële. sëñ Xaamidun liy différencier yàlla ak jaam. seexul xaddim wax na ko feneen nee na. yàlla soo ko yàggee ñaan mu mere la yàlla soo ko yàgguta ñaan mu mere la nga sew sewa ngo fi mu ne ku dul yàlla boo ko yàggee ñaan mu mere boo ko dëkkee di ko ñaan mu commencé laa mere moom boo ko ñaanul mu mere la moom yàlla soo dëkkewul di ko ñaan mere na la ndax du jeexal kon bokkut ak kenn kon moom rek a mën a xéewal xéewal koo xam ni mhm. euh, lompañ du ci bokk jeexal du ci bokk mhm. tële du ci bokk mhm. fayantoo sax du ci bokk moo tax mu ni kon man sëñ Bamba ankay dina ko tag mom yalla sama borom ndax mo yayo tag ndax moy ngeen di kuy xewale jaamam waye nak bima lolo bima lolo ma man nañ ni yalla kep mën di xewale te du xarab du du du top matati do euh, jaamam kon nak ca la rousse man sëñ Touba di ñaan kenn ab aajo wala may dem ci kenn diko ko jàmbat problème ba tax mu tek ci benen xabbo ni hmm. wala astaki te duma jambat mukk man sëñ Touba lil xalqi ñeel mindeef ba yalla amal mhm. man daal du ma jàmbat te ki may jambat mu wuur man yalla ko sak koy mhm. jambat sans problème mhm. duma ko jambat min faqdi di am omi ci ñak gu ma ay xewal duma ko jambat ja suma ma ñàkkee xéewal xam ne yalla ma koy xaj suma ma xewal xamna ne yalla ma koy jox kon nak bu xewal ñewé duma sant ku tut yalla bu xewal euh, xagne tam duma ma sant bala ngaa yeggale fofu sa dama bëggoon ah. señ mbacké nga ah. won ñu barak bi nek mayon ba waaw environnement bi sëñ bi nekkoon nga xam ne contexte bi muy wax ni min faq di an humi boobu ci tumuraanke ak métti gu foofu def na fa juróomi te li da doon da doon tawte ba amul fu mu dugg fi mu doon fi mu doon jàppee di tànqe ndox mi ak fi mu dëkkoon nga xam ne moom dafa lépp déeg bi ci dex gi waaw kay boo demee fa lay dem ba ci mm-hmm. lay demee di wut ndox di jàpp mm-hmm. metti na di defar ay mbaaram ak bi ci ay dégg nga yéere boppam ak lépp mm-hmm. amul kenn ku ko jàpp. mu def ko pendant cinq am na ci bis sax mu dugg ci génn kër di ñaan fu mu seeloo. Mm-hmm. Euh, pour ba taw bi sewet. Mm-hmm. ndaw si dëkk ci kër gi dafa bëmax sëñ. maanaam yéere sëñ yëpp la bëmax sànni ko ci benn. dafa jël téere yeeg yëpp daal koy sànni. sëriñ bi toog lu mat ay ñetti weer ginnaaw bi. gisatul ndaw si. mu laaj ko ko ñu ne ko faatu na. mu laaj mbirum ndaw si ñu ne ko sunu borom jéggal la. loolu xaw koo def jaaxle mu ne waaw nu ñu ko jéggale mhm. ñu xamal ko ni yàlla mu ngi ko jéggale sa bagage yii sa yére yi nga yor ak sa téere yi mhm. nanguwul benn jaam loxoom tuusi ko mu laal ko ëllëg yàlla di ko la loolu sore na lool ak mhm. boo demee Uhud ca Makka nga dem tey jii xool bërëbu bërëb bële nga xam ni fala la Hamza tëdd demal ca Hamza seen ma dina nga xool ko ma dina nga nga xool Hamza eh, bi nga xamee ni tey dem na ba faatu hindu mi nekkoon jabaru abu sufiyaan jël xëtëru Hamza seex ko di ko matt di ko buusu yenant bi alayhi salaatu wasalaam naan ko weddi naa la bu fekkoon yàllaa la yoon yónni duñu def nii sa bàyyi tax te mënoo koo faj di ko buusu deret ji jàll ci bële yenant bi muuñ ni rubba zanbin at xala saahibahu aljanna bari na bàkkaar bu tàbbal borom aljanna ndax kii kat da doon tooñ bàkkaar la mhm. waaye deretu saaba bu sohit ci islaam mhm. mhm. du dugg ci biiru kenn koo koy dem sawar deretu saaba bii di xam sa dugg ci biiram dina ko far sauvé ëllëg dina mujj du tuub dugg ci islaam dem àjjana waaw ma ne deretu bàyyi taxu rasulullah moo sauvé kii ndaw see nag nga xool ñaari fee yi mhm. ndaw sële moom mhm. du jullit mhm. mujjiwul tuub waaye leen rek la def di téere sëriñ Tuubaa ak ay bagaasam la jël di ko buux ci ay loxoom yàlla nangu ma mu dem sawara ngir laal gi ma laal lu sëñ Tuubaa moom waaw moo tax sëñ Tuubaa kenn mënu ko misaal dëgg la muy min faq di an waaw foofa metti na mooy li nga wax booba dëkk waaye doy na waar maa yomba mu wéet fa cinq ans la fa def cinq ans nekkat li gën a garaaw sëñ xaari dun jëmm yoo xam ne bokkuñu làkk langage tey boo demee côté Mayomba. Mhm. ay ñu ñuy wax teke yi ñoo fa dëkke teke ay teke la fay fekk dégg nga ay ay ba wili mhm. xeet yoo xamante ni bokkuñu sax langage mhm. waaw làkk bi ñuy làkk bokkut ak làkk bi sëriñ bi daan làkk sii mu nekk ci seen biir garde identité culturelle am nekk ci seen biir soxlaalu leen seen dërëm nekk ci seen biir ñu koy teg nattu yi gën a metti muy ànd ak njàppoom di ànd julli ci bopp waxtu mhm. nekk ci situation bu difficile mhm. benn xéewal gisu ko mhm. Cheikh Ibra Fall nekkul ci wetam maam Cerno nekkul ci wetam sëñ Mandumbe nekkul ci wetam rakk néew ci doom néew ci taalibe néewul ci wetam mu wéet ak yàlla cundum ci àll boobu mhm. def ko diiru sept ans mhm. kooku beneen affaire dëgg la waaw kooku beneen affaire mhm. moo tax booba xéewal amu fa kon mu ne min faq di anhum yi mu ko kon ñàkk gi ma ñàkk fii ay xéewali adduna yi ñu tudd du ma ko jàmbat mukk mindeef te mu wóor ma ne yàlla mi sàkk mindeef yaa ngi jàkkaarloo ma mi ngi nii bismillah fa man zanna nii aywa mu ni kon duma ko jàmbat mhm. benn mbindeef mhm. ñu ne ko lu tax mhm. mu ni ndax yàlla mooy wërsëgal jaamam te yàlla du jeexal dara daal di nag fa man na nii fii xurbati za tazallulin ila xayri mornin waasiin fa huwa qad ami sëñ Tuubaa nee na fa man dann nii képp ku ma njort man sañ Tuubaa képp ko njort ci man mii ni kat fii xurbati ci tumuraanke bii ma nekk muy wéetaay gii mhm. samay rakk newuñu fi mhm. samay taalibe newuñu fi sama wet mhm. wéetaay bii ma wéet man dong amul kenn ku ma ciy jàppale fii ku yàlla sama borom képp ko jàpp ni wéetaay beeg tumuranke bii dina tax za tazallulin may boroomu toroxlu ilaa xayri muxnin jëm ci keneen ku yàlla mii woomalal jaamam waasiin mi nga xam ni mooy aji yaatu ci lépp fëhwa kooku daal di njort loolu mu ni dëgg-dëgg xad ami dafa gumba suñ tuubaa nee na aveugle dëgg ku gumba gisul dara nee na silmaxa piir boo koy lakke mooy ku njort ci man suñ tuubaa ni tumuranke gii ma nekk ci samay noon dana tax may toroxlul keneen ku tuti yàlla képp ku njort loolu nee dangaa gumba gisoo gumba nag ñun dañ koo miin a wax rek ki nga xam gët yi gisul waaye ki gumba dëgg mooy ki xol bi dul yëg li xew kon nee na gumba piir mooy koo xam ni fii ma nekk ci sama tumuranke ci àll bi nekk ci tumuraanke bu metti tax na mhm. mu jàpp ni mhm. dinaa torox keneen ku tudd yàlla sama borom ku jàpp ni keneen lay wuti ci moom dimbal rek nee na kooku dafa gumba waaw mu ni lahu astaki dofi wa mhm. faqri wa gurbati wa arjo ruju'i ajilan xayra munami cheikhul xadim nee na astaki lahu comme xam naa ne yàllaa yor lépp astu kii maa ngi jàmbat ko bi kulbati saa tasallulin إلى خير مخن وازن فهو قد أمي لو أتكيل فيه وفقري وقربتي وأرجو رجويها إلى الخير منحني سكوت أيتي بسم الله بسم الله لا نdeysaan sëñ Abdou Khadre Seye ndeysaan yàlla ba yàlla doole leer astaki lahu dox fii waaw wa faqri wa ghurbati wa arju rujuhi ajilan xayra mun jëkk lol muni ni magi jambat jimi ci yalla sama borom mm-hmm. ndax su jambat, biar mm-hmm. problème duma ko wax jamm yalla sama borom fofu lay wuté lumay euh, sama problème fala koy lijeenté mm-hmm. borom dossier yu mak yalla mom lay wax muni ni luma koy jambat muni do fi sama sama lompañ lompañ do fi sama sama lompañ wa faqri ak sama ñàkk ba ajo. waaw mm-hmm. gis nga sëriñ bi mm-hmm. wallaay kenn du moom dëgg la saa buy wax yàlla borom dangay gis dimension ba muy wax ak yàlla mm-hmm. da ngay gis dootul nangoo man yàlla lay jox man-man gépp dootul nangoo am yàlla lay jox am am gépp ndax xam ne ne yàlla yooyu am am kon tawxiid bi mu am la kenn amul mu ni lahu ashtaki maa ngi jàmbat jox sama borom doo fii sama lompañ wa faqri ak sama ñàkk ba koy aajowoo wa xurbati ak sama tumuranke mhm. waaye bi ma ko nag jàmbate wa mhm. arjoo maa ngi yaakaar mhm. rujoo yi sama déllu dellu aajilan ci lu gaaw ca Sénégal te su may dellu xayra mun a ami ma nekk ngën gi ku nu jox xéewal defe naa bi mu ñëwee tey ñu ngi màggal màggal gaa ngi nii <laughs> kon defe naa la mu waxoon maa ngi yaakaar dellu Sénégal ëndaali xéewal goo xam ni feet lay doon feet boo xam dootul arrêté feet gaa ngi nii te wax na ko ca euh, déedéet ca xasida ga rum naa sukkooral lësi bil kaafi wa nuun nee na lii kun bikun sarmadan waj al masir za jaw fal faraalil waraa mislal maarin kon def na ko kon ñibbisi na indi xéewal koo xam ne kenn xamul fu ko yem ñëpp a ngi ciy dund ñëpp ngi jekke ci mbiram mi te mi ko togg loolu lépp mu nga tëdd aljana bàyyi ñu xéewal yépp ñu ne ci kon moo tax mu ni ma ñëw ñibbisi waat senegal ci lu gaaw te nekk ngeen jikunu xéewale mu ni chakawtu gis nga ñaari wax ashtaki fii chakawut kon fii jàmbat na ba pare fële maa ngi koy jàmbat fee koo def fi'lun mudaari fii mu def ko fi'lun maadi lu romb ba pare def na ko chakawtu lahu an moom yàlla kat dama koo jàmbatoon samak euh, samak lot an ci fa aska nga arab ni mu sewe chakawtu fa aska fa aska ji mooy firi mu dindi njàmbat mu jeexal ko tag kon chakawtu jàmbatoon naa lëxoo ñeel yàlla ak ji samak dégg nga lompañ samak lot defuma ko première fois defoon naa ko ci yàlla sama borom bi ma ko defee lu xew fa aska dafa jeexal jàmbat ko yépp wakaana lii te mu nekk ñeel ma bi maa ci loo xam ni faaqa zanni féete na kaw li ma doon njort sax ci moom fëxwa ndax moom yàllaa ko man moom kat akramu moo gën a tedd ñëpp mukrimi mooy ki nga xam ni ku ko neex mu teral la kon man li tax ma koy jàmbat dama ko jàmbatoon sama ñàkk mu dimbalil ma boppam mhm. ndimbal loo xam ne te daa nga jàng mënta jeex mhm. kon nag jox ma loo xam ne féete ne ko sama njot lii moo tax ma koy jàmbat daal di wax ni naxaa jaani bii man garrahum kufrahum bihi mhm. fa anhum xamaani taaridan kulla mujrimi nee na naxaa jublu na bii ci sama wal man ña nga xam ni xarrahum daf leen a wor kufruhum seen weddi ga bihi ci yàlla seen borom ña nga xam ne ay tubaab la ñoo xam ni weddi gi nu weddi yàlla moo leen wor ñooña daal jublu woon na ci sama wet jubluwoon nañ ma ñoom waaye fa xamaani anhum yàlla daal di may aar wëlif ñoom ñuy man ci man dara mu aar ma dégg nga moom yàlla sama boroom taari dan kulla mujrimi te muy aji dàqul ma rejetel ma dàqal ma mm-hmm. képp kuy tooñkat Mm-hmm. mujrim moom baaxul mm-hmm. kuy mujrim rek dàqul nañ ma ko waaw mm-hmm. ah, mu ngoog mu ni léegi lawoo sukru ñeel na ko ak cant sukru bu ñu ko waxee ak xamdu seen différence sukru cantu jëf la waaw ah, tey jii la ngay xëy damay def sukru damay def cant commencé defi berndeek def ay action kooku mooy sukru xamdu nag cantu xol la da nga koy fa salaam ñu ko wax kon booy julli ni alhamdulilah ñaari xeeti cant yu bokkul la bii day ànd ak action bii ànd ak waxi kese sëñ Tuubaa na ngi lawhoo sukru maa ngi koy jox sama cant cant goo xam day ànd ak di ko jëfe min ni tukkee ci man raaji yan ngir ma di aji yaakaar min hu tukkee ci moom yàlla mat la bi mat la bii xam naa yéen téere yi mat la ba te waaye mat la bii la mat la bii sama càkkutéef maa ngi yaakaarale sama càkkutéef ci moom mhm. bilaa kul fatin min nii ci benn condition bu may waaw xam nga léeg-léeg mu jox la nangam ni la mais il faut ñu teg la nangam. Mhm. bilaa kul fatin min ni waqat zaala ba mujj na ma dindil. maxara mhm. mi lépp lu ma naqari mhm. lépp lu nekkoon njàqari ci man rek dindil na ma. mu ni la la la in xarra nii. man xarra u dannu xaasidan. fa maa xarra nii man xaada nii bi takkarrumi. mu ni la in xarra nii donte daf ma wor. maa wor. man xarrahu ña nga xam ni wor na ka nga xam ne wor na ko. azan na njort tubaab bi njort képp lañu am ci man ay dut lañu am ci man ak yaakaar ña nga xam ne nag kon njorta leen njort gu ñaaw moo leen jëme ci man ba ñu ñëw di ma wor ngir kiñaan xanaa xamuñu ni ñoom buñ ma woree tam fa maa xarra nii du ma wor mukk man xaada nii bi takkaru mi yàlla mi nga xam moom may womat ci ay teraanga moom du ma wor mindeef kay moom may mën a wor ci kaw ay njort yu mu am ci man mm-hmm. mu ni fa man yulqi nii mm-hmm. tubaab yooyu nga dañ maa sànni mm-hmm. fan lañ ma sànni mu ni fil baxri ci géej gi ci biir géej lu tax ñu sànni ma fa mu ni lil jax bi ngir bañ dëgg rek lii may tagg yenant bi moo leen metti bëgguñu mm-hmm. dëgg gii may wane mm-hmm. pour bëgg nit ñi jaamu yàlla bëgguñu alxuraan ji may défendre bëggunu ma koy défendre kon dàq gi ñu ma dàq ba sànni ma ci biir géej gi sànni ma ci biir mhm. nee na daal dara waralu ko lu dul bañ dëgg mhm. kon mu ni faman yulqi nii ña nga mhm. xam dañ maa sànni fil bahri ca biir géej ga lil jëx di ngir seen bañ lu baax za xillan ñuy boroomuk bañ ci li may def wala di boroomuk xeex maag iñaaneem xanaa xamuñ ni fuñ ma mën a sànni tam faqat jaa nii dikkal na ma fil bahri ca biir géej ga joodul mu karri mi euh, tabuk yàlla mi aji teral ko neex teraangaam fekk na ma ci géej gi teraanga yenante bi fekk na ma ci géej gi mhm. teraanga yàlla sama borom fekk na ma ci géej gi mhm. kon ñoom ñi ma sànni ci géej gi ngir iñaan mhm. ak ngir xeex ma ak ngir bañ islaam xamuñu ni teraanga yi fu ma mën a nekk man sëñ Tuubaa ma fay fekk defe naa loolu sax moom jarul ñu egg ci sëñ Tuubaa nun ñii di waxtaane sëñ beeka jàng xasaa yi dem boo nu sànni woon autrice tamit nga gis kuñ fa nuyu nii sëñ bi sopp naa la lool <laughs> jox la teraanga defe naa ñëpp a koy dund léeg-léeg nga wàcc réew moo xam ne jàppoon nga ne kenn du la xam te waxtaane sëñ Tuubaa ngay def wala jàng xasaa yi def nit ni la jàbb loxo may la loo yaakaarul woon ni la sëñ bi kat damaa bëgg ci yow dama laa yàgg a topp woon ko foofa kon fu ñu la mën a yóbbu nga ja fekk la kon astama ki ki liggéey lool mhm. moo tax sëñ Tuubaa ni kon ñi ma sànni woon ci géej gi mhm. jàpp ni dañ may tumuraankel ak di ma xeex mhm. xamuñu ni fañ ma sànni la muy sori sori tabuk sama boroom tabuk yanantu bi fa la ma doon fekk di matal tere mhm. mu ni waman saahu ko xamni kulit, daf ko metti am na ño xam li neexulit waman saahu ko xam daf ko metti kaw ni nek gi ma nek man serigne touba mhm. abidan bi aji jaamu li mawlaa yàlla sama borom mhm. kep ko xam li ma nek jaamu bi yàlla daf la metti mi may jaamu daf la metti wa kawni ak tam daf la metti sama nek gi ma nek khadiman di kat li safiya il muqaddami mhm. ci nga xam ni ëllëg mooy ràmm ñépp mhm. moom la yàlla jiital mhm. nee na koo xam ni kooku daf ko metti moo xam ndax fa inni man sëñ Tuubaa aabidun aji jaamu laa fu ma toll maa ngi jaamu du ma ci juge lëxoo ñeel yàlla fil barri ci jéeri ji wal baxri ak ci géej gi waaye xad yi mun foo mën di nekk tamit liggéeykat lay doon li mun jin ñeel kan yanant bi alayhi salaatu wasalaam mhm. kooku nga xam ne tey ku mus ku mucc moo la musal mhm. min dawaa itana mhm. ànd ak nag di mooy musal jaam bu koy liggéeyal ci kaw ñiy woote ak réccu nga xam la ñuy woote lépp réccu lay jur muy muy muy muy muy nasara euh, euh, fan yi lahoo fil bahri waaw fil barri wal bahri aabidun waaw xadimun li mun jin min dawaa ay tanaddum dama bëgg nga taxaw foofu sëñ Mbacké Mbodj kaay génneel ma Pape seex euh, studio bi Euh, su fekkee mënut a téye téléphone ak ku mën a doon rek moom bay boobu nga ñëw génnal ma ku mën a doon rek moom sëñ Tuubaa bu ñu koy waxtaanee kenn dootul exister kenn dootul taxaw euh, sëñ hmm. def ay déclaration yu wuute. Hmm. balaa mooy wax ni. Hmm. fil barri wal bahri aabidun waaw kon fu mu fi mën a nekk ci wéetaay ak wéetaliku. moom li mu doon mi ngi koy assumer. waaw xam nga fële ca nañ dellu ca. Euh, فاذكروا الله في ايام معدودات معدودات دافني كل لربيا آه. في سر وفي علن آه. ولست اسال آه. آه. بكل كل له جل آه. في سر وفي علن واه آه. خمغا لغي لغ لغ نيت ديكلاري لو خامني داكاي وان سي بيتو نيت خمغا في سر وفي علن لو متا باي خال دغلا لغ لغ نيت واني لو خامني داكاي ديكلاري سي بيتو نيت ني فك دو رياليتي bu wéetee moom dong ci boppam. xam na ni lii ah nit ñee taxoon rek ma def waaye du gëm-gëm. moom nag dafa wax ni. sama lépp man yàlla laa ko jox. te jox gi ma ko jox ci li nëbb ngeen teg ci bët ak li feeñ mënu leen cee jot ñoo yem. wax naa ko keroog. Mm-hmm. sëñ Moussa Ka nee na deful xeej buy jël zaahiram. sànge baatinam mm-hmm. xañul nit mbirum biiram xañul nit mbirum kawam. Mm-hmm. xam nga léeg-léeg mhm. nit daan na da sëñ bi yemal fii daal mhm. jaru nga fii ñëw waxtu sàngam mhm. wala yemal fii jaru ngay dugg ci biir ba mu des sëñ Tuuba sëñ bi nee na doo gis ci man looy xeet bu leen neexee ngeen jaar samay tras su ma demoon tukki du ngeen gis ci benn archive luy rusloo sama taalibe musuma saalit musuma faat waxtu musuma julli te julli ma ci bopp waxtu musuma julli te jàppalu ma ko musuma dillu ginnaaw musuma soxlaal nasaraan bi musuma teg cin teglawuma kenn cin loolu loolu beneen miracle la loolu kenn mënu ko mhm. moo tax kon mu ni man damaa jox sama lépp yàlla yàlla téyal ma ko mhm. ci li nëbbu ak ci li feeñ mhm. li bët tege man koo jugé ak li gaa yi xamul léeg-léeg nga tëdd salal xam nii ah lii may wane kat am na lu ne ci man loo xam nit ñi xamuñu ko bu ñu ko xamoon sax xeet waaye moom nee na loolu dalu ko léppam yàlla yi kese la biñ ko gisee ba noppi koo gis lépp la jox yàlla zéro faute moo tax mu ni kon sama secret sama mbir lépp laa bàyyi ci loxol borom li feeñ ak li nëbb mhm. fi sirrin wa fi alani wa fi alani walastu asalu xayra naafi allah waaw mhm. mhm. du ma ñaan tamit du ma ñaan kenn ku yàlla xam naa ne njariñ kenn ku yàlla yoru moo tax du ma ko ñaan keneen ku dul yàlla sama léegi loolu da ko dëggal parce que li nga wax mooy li olof yi naan nit waxul ni mu mele waaye ni mu jëfee la mel waaw tey loolu ñëwaat na ndax noonu bi mu ni doxee ñëpp xam nañ ni ni la mel waaye dafa dem ba yàgg mu yëkkatiwaat wax ne lu ma sàkk woon parce que fee. dafa dafa wax ñëpp da leen a mettre da maanaam ñëpp la multiplier par zéro. waaw wan leen ni ku jàkkaarloog yàlla moom soxlaatoo piliyaan. léegi bi mu demee itam nee na li ma bëggoon ci moom ba bàyyi ñëpp laajuma kenn jox na ma ko. moo moom la waxaat fii ne. yaquudu li kullama ahwa bila sababin. waaw akrim bihi wa bi xayri shukri. waaw yuxyini waaw xam nga léegi yàlla jox na ma lépp lu ma bëggoon ci moom te jox ma ko sans sabab. yàllaa ko bëgg waaye fa ngay jaar ba yàlla bëggal noonu affaire bi mhm. waaw fa ngay jaar bay yow loo bëggati loolu la yàllay yi bëgg mhm. loo bañ yàlla bañ ko mhm. sëñ Tuubaa dem na ba ni tàbbi naa ci biir bëggug suñu borom mooy mu tàbbi sama biir bëgg moo ko bind siitu lesi saal ila wal ila yasau masitu bi laa durin wala dem naa ba lu ma bëgg yàlla bëgg ko sans condition moom itam lu mu bëgg ma bëgg ko sans condition la lay may nak nga dem ba jaxasoog yàlla moo tax ma saña wax ni mhm. sama dund ak dund yalla tapé nañ ko mhm. ba waxtu wax bu ndaw mhm. tapé nañ ko parce que dafa dem ba leppam la bayyi ci loxol borom yalla bu xamé ni yow njuuj njaajoo ci li ngay wote raxo ci dara mom kep nga jox lepp bako sa bopp bu teyel la lépp te ko yalla teyel say tank do dalu deug la wa ku yalla teyel say tank moo tax nga dem ba fele mën yaqudi li kullama ahwa bila sababin jox na ma lépp sans sabab nak Mm-hmm. bokkul ak nag antal karimul lati si tonti waaw bilaa sabab waaw bokku tey yow mi nga xamni nak yaay aji tedd gi nga xamni mm-hmm. ya may may mm-hmm. sa nak ben sabab condition ah, amul ben tegaloo ma dara ah. eh, legui bi ngay tambali ñew nga ci inna adai wa adak fi dafa melni beuyit wi day melni lata ñom ñu juk sax diwul wut ci mom yalla def na intervention ba mënu ñu ag ci ñom parce que ñom biñ excès señ sëñ bay leen di conditionner conditionner wessuul bi mi dajal ñom jéwal andul ak kenn waaw waaye day leen ne damay fanaan. waaw waaw. ñu insister est-ce que kon lii bu ko dëggal muy manaxtahum min janaa bi baada sadwatihim waaw yaa maalikal mulki yaa rabba salatini waaw lan ndeysaan manaxtahum waaw gis nga loolu loolu tam li wax sunu sunu borom moo leen tere gàntal seen lépp avant nag bien avant ñoom ñuy def daal yàlla kaar amuñu victoire avant ñu ñëw la yàlla créer seen défaite créer sama victoire Mm-hmm. yow yàlla mi nga xam ne yaay buuru buur ñi ba tax mu mën ko yàlla mooy buuru buur ñi ci jaam lu muy def rek da koy mën léeg du ko mën mm-hmm. boo wéeru ci yàlla nag doo daanu waaw waxuma la sax wéeru ci yàlla waaye fi ne moom mi ci wéeru woon dem na ba tey ku wéeru ci moom doo daanu kenn du wéeru ci sëñ Tuubaa daanu mm-hmm. li ko may loolu mooy wéeru gi mu wéeru ci yàlla mosu ko bo bokkaale ak dara te ki mu wéeru mooy rabba salaatini waaw rabba salaatini mooy buuru buur ñi waaw salaatin mooy buur yëpp yi ñit yàlla mooy seen buur tey xoolal ñi jaamaarloo woon ak sëñ Touba ñëpp seen mujj fu ñu mujjee. Mhm. fay nañu. Mhm. kamaj mhm. sëñ bi mbiram di tàkk ba faw te kenn mënu koo fay. kon nag xaaji yi la dallaahi. waaw bil muxtaari xat xuddiyat. wallaahi ndeysaan. salla bi taslimihi alayhi amin. waaw mu ngo sama ajo nag ji ma amoon ci yàlla sama borom mhm. yàlla fajal na ma ko jaraje yenentu bi mhm. alayhi salaatu wasalaam <laughs> mhm. waaw waaw mu ko comme aajo ji ma amoon ci yàlla borom fajal ko xat xuddi xat xud xat xuddi yat fajal nañ ko ndeysaan jërëjëf sëñ Ablaye sëñ Mbacke Mbodj mag may ba ngay rey ba xam naa ne léegi mu dóor mu ndax nee ma damaa bëgg sëñ Xaadim di wax xàbbu yi sëñ mm. Ablaye di ko firi ndax xam naa ne tey da yaram bi daa tànk xam nga fa nii doonoo xawoon a kii jibee jibee ko xawoon a orienté ci seen émission boobu mooy bu <laughs> ndeysaanu bi ñuy def fii parce que seen émission ngir yàlla boobu <laughs> Eh, tubaarkàlla eh, ca la xawoon ak yow waaye dellusiwaat na moom murid la eh. sëñ xaadim sëñ Mbàkke neen daa bëgg ngay waxal sëñ Ablaay xaabu wu njëkk wi sëñ Ablaay di ko kii ndax nee na air bi dafa neex waaye dangaa dagg xasida gi yëggul léegi nag sëñ Mbàkke kon bàyyi naa sëñ xaadim ak sëñ Ablaay ñoom ñu ñoom ñu arbitré xam naa sëñ Mame ak sëñ Cheikh Sène Raye moom fi ñu toog moom léegi ñu kii waaye sëñ Tuubaa rek a neex loo ci mën a digg rek sëriñ bi ci boppam moo mel noonu moo neexee noonu sëñ Pape Cheikh nag tey lekkul bañ waaye kafe gi mu ngi koy won tubaarkàlla lu dara jalul sëñ xaarim kon bisimilah léegi dañuy ñëwaat ci fa inni lahu fil barri uh-huh. wal bahri aabidun nga wéy bisimilah sëñ xaarim fa inni lahu fil barri ñeel naa ko yàlla sama borom jox naa ko sama lépp ñekk ab jaam ci moom ci biir jéeri ci mm-hmm. والبحر حامد waye tam nek na jaamam ci bir geej gi man cheikhul xadim khadimun limunjin min may kat ci yalantu bi musal kep ko xamni sak na ko ko musal dawahi tanaddumi mo lay musal ci ñinga xamni lañuy wote lepp boko woote reccu lay jur faman saddafal mawa muni ñinga xamni nak ñoo taxaw ci galankor ma wulif ma jot ci samay may faman saddaxani fal ña nga xam ñu may jema galankor man cheikhul khadim walif ma jot ci samay may mawaahibu akhbara aka ñuma umpele ndax yalla mayam yep dëgg man nañ ma man cheikhul khadim min alwaasihil mukhni may yoyu ma dëgmal nak ñu ngi bayiko ci yalla mi aji yaatu tay aji woma afisil muxaddimi yalla mi aji wattu jaamam yalla mi aji jital ku ko neex فمن يلخني في البحر شيخ الخديم نانا نيغا خا خن نما ساني سي بير جيجي روما لخربتي te biñ ma ciy sànni dara waralu ko lu dañuy sàkku sama tumuranke fali min ilaahi raw nee na dañoo réer xamuñu ne ci biir géej gi sax yàlla defal na ma fa sama raw du bopp fii kulli aylami nga xam ne yàlla ma tàggatal bépp alam bu ma wàcc man suñ Tuubaa yàlla tàggatal na ma rabbil tijaai fii kon nag ñeel na yàlla sama borom sama wéeruwaay ci fan huduri wa xaybati ci sama teewaay bu ma teewee ak ci sama fàddu bu ma fàddoo bu ma newee ci Sénégal ak bu ma nekkee hors Sénégal wéeru naa ci yàlla wabil Mustafa asko ma jaar na ci yanantu bi nga xam ne ku jaar ci moom la nga bëgg danga ko am di jàmbat yàlla sama borom ci darajey Mustafa loo nihma sullami te amul moroom moom yanantu bi ndax mooy sama ngën ji escalier bu ma yóbbu ci yàlla عليه صلاه الله موني كون يالا يالا دول لي نغي خيوال اك موتو تي يانانتو بوب ثم سلامه يالا مي ادي جام تام يالا مسول يانانتو بي عليه الصلاه والسلام يا ال وسحب ما تا مسول وا كرم مسول اي اندندوم ابو بكر عمر عثمان علي ما كل مسلم تا مسول كيب كو خامني تام اب جوليت نغي بو نوسو تي اسلام الهي على خير الله mu ni yow yàlla sama boroom maa ngi lay ñaan jëme ci ki nga xam mooy ngeen ji mbindéef baraaya muhammadin ngeen gi mindeef man mu ni ki tuddu muhammad te dekk makka adim sarmadan aska ma ngi lay ñaan yow yalla yalla nga saxal ba faw ngeen gi teddi xewal salatin wa sallimi ak ngeen gi teddi muccu jëme ci yonent bi alayhi salatu wasalaam maal ali wal ashabi. maal ali andak wa kërëm wal ashab, ak ay andandom turan waru dayni mbàkke ñaan mu ne turan ñoom ñépp warul ma delloo ci lu gaaw kon sarihan ila tuuba ma delloo waat ci lu gaaw ca tuuba sama dëkk bu tedd ba ni waalimi te na ma aar yow yàlla mi yor kaaraange te nga xamal ma yow yàlla ci sa xam-xam bi ilaahi alayya ilaahi yow yàlla sama boroom alayya yàlla nekk ba faw jóge ci man addëhër giiru dund rakaw ni xadimaho samak nekk guma may nekk di xadiimahu di liggéeyal yonent bi alayhi salaatu wasalaam wa kawni xadiimal aayi ak nag di nekk di liggéeyal yonent bi nga xam ni alayhi salaatu wasalaam mooy kéemaan gu mag allim wa fahimi mu ne kon yow yàlla na ma xamal te na ma comprendre loo ma xam li xew ilaahi min alwahaabi yow ilaahi yow yàlla sama boroom maa ngi lay ñaan maa ngi sàkku min alwahaabi ci yàlla mi aji mayaakoon ab maa ngi sàkku kon lan ak géeju gu rëy rëy góomay góomay góomay géejuloo ci yow yàlla wa kasfan wa ilhaman maa ngi sàkk nga defal ma kasfu wiññil ma lépp li nëbbu te nga yenkewal ma sa xam-xam bi nga xam yaa ma koy jox fa liksifu wa alhimi yow yàlla wiññil ma te nga xamal ma lu fàtt tawajjaxatu lil fataahi Cheikhul Xadim nee na dëgmal naa jubale naa sama lépp ci yàlla mi aji ubbi am xiifu maa ngi sàkku ci yàlla sama borom ak ubbee moom mi nga xam ne ku mu ubbil dootuñu la tëj wa arju fuyudan min Mm-hmm. maa ngi yaakaar ci yàlla sama boroom ay mbëbbi xéewal yu tuuru wal faydu yan xami ak faydu koo xam ni xéewal koo xam fu mu toll day dotti ko rek di sotti ko raditu anil qahaar seexul xadiim ne raditu gërëm naa anil qahaari ci yàlla mi aji not lépp israanil ba nga xamee ni tàggatal na ma samay noon xariban faridan hin te bi ma leen di tàggatal dama wéetoon man sëñ Tuubaa ni cundum booleeg tumuranke ay yamub hami ma nekkoon ku nëbb ca seen biir man Cheikhul Xadim sa urdihi bil quraan maa ngi gërëm yàlla sama boroom jaare ko ci téereem bi gën ci téere alquran sukuran lahu bihi cant goo xam ni cant euh, jëf lay ànd ak ñeel ko moom yàlla jaare ko ci alquran ala anhumi bil qalbi mu jëme ko nag ci xéewale gi ma xéewaleel sama xol wal jismi wal fami xéewale sama yàpp yaram xéewale sama gémmiñ muy tudd alquran alayya lahu idman an la ya war na ci man lahoo ñeel jëm ci moom itmaanu ma taqoog la nga xam ni maxtaaralil huda la nga xam ni tànn na ko ñeel ma ci luy njub wa urdihi bil ayati way man sëñ bamba mang koy geureum bil ayati ci aaya alquran isirni maxnami da nga xamé ni aaya yep mujj nañ ci man sëñ touba nek sama koob gi nga xam ci lay xewlu sukuri wa ridwani seexul xadim nee samay cant wa ridwani ak samay ngeureum wa hamdi linafihin wa hamdi ak sama canti xol li ñel na yalla mi aji jari atani bi qur'anin yàlla mi nga xam ni moo nu andil ngën ki alxuraanu karim azimin muassimi alxuraan mi aji màgg tey màggal jaam bu ko jàpp maa ngi ko ciy gërëm seexul xaddim ne alxuraan mooy banque bi kuy fay ku demal ci moom mooy leer gi moom mooy aji feeñal ji lépp bi nga xam ni ani naari wal ahdaa. ci la ñuy fegoo ci sawara ëllëg ak. iwal xaari noxtami. moom alxuraan ci lañ jaar ba mucc ci sawara ak sunuy noon ak ci gàcce. kitaabu si sunmi. mu ne ko mbàkke li nga woy lu mu ne kitaabun téere la azizun bu mag azizin ataa bihi jugee ci aji màgg ànd ci aji màgg ñëw ci aji màgg. asiisun aminun lil. alxuraan ay aji tedd joo xam ne di lu ñu wóolu. asiisil mutammimi. ñëw ñeel yanant bi gën a tedd ñëpp te ñu matal ko ci ñëpp. kitaabun min. nee téere bii di alxuraan mooy tedd di aji tedd. kariimin mukarrimin. jóge ci yalla mi aji tedd ñew di teral jam bi ko jàpp habdin karimin mun ñeel na jaamam bi di yarantu bi aji tedd si tarahmi moom mi nga xamni moy mooy xettali képp kuy soxla kuko ko alayhi min al maula. neena ñu jóge na ci man ñel yalla mi sama borom salaatun bilantiha ewal bu reey ko ma koy ñaanal ju amul fu muy yem bi alin wa ashabin jëm ci wa kërëm jëm ci ay àndandoo. law xaysu yantami. ñoom ñëpp fu fi mën di askandoo ci moom. alayhi nekk ci yarantu boobu jóge ci man suñ loo xam dinaa ci saxal ko sant fu ma toll. ala innani usni. mu ne xanaa du man Serigne Touba dinaa bàkkati woy. ala xayri munimi. ci ki nga xam ni mooy ngën gi kuy xéewale ab jaamam. sukuri waridwaani. nee na samay cant xool ak samay cant. waam ji li naa ak samay cant làmmeñ ñeel na yàlla mi aji jariñ. ataani bi qur'aanin moom yàlla mi nga xam ni indi na ngeen ci téere di alxuraan. asimin muassimi téere bi aji màgg tey màggal jàmm bu koy jàng. huwal kansu wan mooy banque bi kuy fay ku demal. mubiinul lazi bihi mooy leer gi nga xam ni fu feeñ moo ko feeñal moom alxuraan ku bëgg a ci sawara ak say noon jàppal ci alxuraan ku bañ gàcce tam fegool ci alxuraanul karim nee na alxuraan rek moo tedd jóge ci aji tedd ta tedd ko andi di jibril jëme ko ci tedd di yaram hasisun aminul lil jibril mi ñu wóolu moo ko andi ci gën tedd ñëpp hasisil mutammimi jox ko yenant bi ñu yàlla teral kitabun karimun min neena téere bii di alquran mooy aji mag karimin mukarrimin jóge ci aji mag ji yàlla jaar ci ku mag jibril karimin mun jëm ci jaam bi gën a màgg ñëpp Moustapha sin si tarami moom mi nga xam mooy wallu képp koo xam soxla na yërmande alayhi minal mawla kon boog war na ci man ñeel yàlla sama borom salaatan bilantiha may warlu ci moom di ko ñaan xéewal ak mucc gu jëm ci yaram wa ashabin xéewal gu jëm ci waa këram ak ay àndandoo haysu yantami ñoom ñëpp foo xamante ni askan nañ ci moom rek na dem alayhi salaatun minhu na maa ngi ñaan xéewal ak mucc man. suñu bàq maaxaala feegi rek nit ki sant mu ngi wax. ala innani usni. naan man daal maa ngi bàkk yàlla sama borom. ala xayri munimi. moom mi ngeen gi kuy xéewale jàmm. Euh, jërëjëf sëriñ Khadim Guèye jërëjëf Serigne Abdoulaye Diop Bichri euh, sama benn mag bu nekk Touba ku ñuy wax euh, soxna moom i ñing nee na ma xasida gi bu daaneelee nañ ci ñaanal sa maam Anta Gueye daa bëggoon sëñ Xaadim Gueye ba lu mu tawat tawat su déggee waaw su déggee sëñ Xaadim sax daa tane euh, kon noo ko ci ñaanal bu baax yàlla dolli ay leeram euh, di ci ziyaare sunu yaay soxna Xadi Gueye sëriñ Galas moom sëñ Abdou Lahat moom Cheikh Abdoul Fadal sëñ Galas Kebe soxna Nday Seck waa kër ga yëpp noo ngi leen ziyaar yaa ummi ak maram maa ngi leen di nuyu bu baax a baax Euh, Murit Diop waaw Pape Cheikh nee na mi ngi lay ziar Murit man nag nuyuwuma la Pape Cheikh nee na mi ngi lay ziare euh, ku yoroon xasida gi di ko jàngit tiim ko ni ma koy faral di waxee ci Adja Soda Thiam moom bu ñu tàmbalee ak xasida rek da koy ubbi ko di ko topp ak ba mu jeex lu am solo la bu ñuy waxtaane xasida ñu ubbi ko euh, yaakaar naa ne ku ko yoroon rek ñu ngi ñaan nga ñaanal ci sañ mun Muntaxa mu yàgg fi ñu ñaan yàlla defal nu feex defal nu itam sutura sàmm ku ko yoroon rek waaye boo nga ñaan lool li ñu koy waxee rek tey moom incha allah dana neex sëñ daam Euh, li ma bëgg a def mooy euh, bu ma santee sëñ Ablaay ba noppi ndax euh, leeral yi dafa am solo ba pare ni ngay saraaye dafa dañ koy mën a jëfandikoo mhm. ndax da nga ko wàcce ba mu tolloo ak ñii dégg mhm. moo tax yàlla na la yàlla fay te sàmm la waaye sëñ Xaadim it daf ko jàng-njàng moo xam soo ko dégloo dafa am dafa am xeeti jàngin yoo xam day dundal ruux fi ngay toog di koy yéeg day neex li li sëñ siiru gay naan lem neex na waaye neexut ci bët neexut ci nopp nee na li neex mooy sëñ bi sëñ bi moom day neex ciy bët di neex ciy nopp waaye nee nee na lu mu neex neex boo ko defee ci bët di nga xam ne du foofaa ko tax a jóg <laughs> loolu nag sëñ bi moom daa neex ci lépp moo tax buy jàng loolu nga yëg ci biir xaside yi uh-huh. euh, maa ngi ziyaare bu baax sëñ Moustapha Fall murid uh-huh. Saadix muy euh, sëñ Moustapha bu Daaru Salaam euh, taalibe maam Cheikh Anta uh-huh. ñu ngi koy ziyaar moo rakam sëñ Aline Fall sëñ Ablaye sëñ Moustapha moom defal na ma teraanga joo xam du ma ko wax semaine bi beneen semaine bi laa koy wax ndax damay bañ cat dugg ci ndax Eh, teraanga ju rëy rëy rëy la tubaarkàlla yàlla na ko yàlla sàmm eh, suturaal ko defal ko tawféex may nuyu baax monsieur le maire Bambilor muy mm-hmm. Ndiagne mm-hmm. eh, Diop dafay sëriñ baaba Babacar si mm-hmm. ba noppi fareewoo ak murid yi nag waaw ci amu ci benn lu muy làq ñu koy ñaanal muy jàmbaar lool. nit koo xam la ndax dégg naa jëwam yu rafet. ndeysaan dégg naa jëwam yu rafet ci Bambilor. dëgg la ñu xamante bu yàgg muy sama xarit di sama wëllëri ñu jaxasoo. Mm. ñu koy ñaanal yàlla sàmm ko defal ko tawféex may ko. ak euh, mucc moom tamit ba li ko li mu bëgg a liggéey réew mi yëpp yàlla may ko mu defee ko ni mu ko soobee ndax cër bi mu nu jox yàlla ak bi sëñ Touba rek a tax. ndax koo xam ne bokku leen fu ngeen ziyaare te fu ngeen toogee mun na la waxal ci sëñ Touba. kooku yaakaar naa ne euh, mm. euh, fekk si la ci sa bëgg-bëgg mm. euh, ñu ngi koy sant bu baax a baax a baax a baax di ko gërëm di ko ñaanal yàlla defal ko tawféex am na sama benn xarit boo xam nee na ma neel rek taaliba cheikh taaliba cheikh la mm. maa ngi koy jaare dafa yëkkati benn jaaro ne ma moom laay fasanteeg yow kóllëre ngir sëñ Tuubaa jëf nag lu mu ndaw ndaw ndaw da nga koy sant ne ko jërëjëf léegi sëñ Mbàkke ni ma bëgg a def ak téléspectateur yi mooy da nga may ubbi ligne bi dootuma jàngaloo sëñ Xaadim génn xasida mm-hmm. ndax dafa am question yu ma bëgg a dugganteeg moom comme ni ma koy faral di defee ci jànkat yëpp waaye ku ne xam na ne moom jataayam wax dëgg yàlla dana wuteeg jataay yu bari nag ndax oh. euh, euh, baarakallaa li mu oh. liggéey xajal ci ab jataay waaye su ko defee da may ubbil ligne bi ma jël ñaari téléspectateur ñaari téléspectateur yi dama leen di may ne leen yen yéenay wax xasida gi ngeen bëgg sañ xaadim jàng ko yéen ñaar bu dee genn xasida gi la ñu def ko bu dee ñaar nañ fexe nag da am murid yu xër yoo xam tam ñu ne nañu jàngal nooru daare nii waaye xaju fi te kii ne la jàngal na ma jàngal maraaxil ma bésin nañ tànn rek ñaar yu yem bu dee sugaawaat Diop moom si nit di lay tànn waaye yéen ñiy woote daal may naa ñaari xasida ñaari téléspectateur yi dugg sañ Mbàkke nañ ma wax gan xasida lañ bëgg sëñ Xaadim jàng ko dugg ci euh, bu dee soxna maam jaaram sëñ sëñ blaat moom boromam lay tànn moom xam na xam naa yi muy jàngaloo sañ Xaadim euh, su ko defee ñu jël leen ci 88 628 08 18 ñu mën a ñëw euh, dugg ñoom tamit ñu ngi ziyaare bu baax a baax Serigne Cheikh Ngoundege dafa mel am na ko tàbbi salaamaaleykum salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatulah. waaw Mouride noo ngi bu baax a baax. naka coono yi. sant baax baax baax baax. mbaa yaa ngi bëgg bu baax. bu baax baax baax mais bul jooyte da ngay ree. ah maa ngi sant léegi euh, yaa ngi jàkkaarloo sañ Xaadim ak sëñ Abdoulaye Diop Bichri gën xasida nga bëgg sëñ Xaadim yëkkatiwaat. ah daa mel réseau baa ngay daw de. ah. réseau baa ngi daw de dégg ñu bu baax. li nga ah, wax maa ngi lay dégg de maa ngi lay dégg de. waa bismillah gan xasida nga tànn. jawartu. jawartu. waa yow jawartu nga tànn. ayca bismillah. Eh, jërëjëf ñu gërëm ko bu baax a baax eh, mbokk mu baax mu tàbbi woon léegi ci biir eh, ñi ngi koy ñi ngi ziare sëñ Cheikh Ngounda Gueye di jànkatu xasaayit bu mag di ku baax ndeysaan kuy jàpp ci group bi am na ko ne ci nit ñi salaamaaleykum seex bi ñu ngi ziar wax nañu ñu ngi sant Serigne Touba di ko euh, gërëm rek. waaw ñu ngi bég ñu ngi bég lool si jotaay bi. ndeysaan. xoolal di rafetlu xasida yi ngeen. jëwriñ jàng ak ni ngeen firi gi ngeen ko firi. jëwriñ jëwriñ. waaw allo. Ah. ma ne comme danoo war a màggali incha allah. waaw. te danoo war a sant sëñ bi dañ koy tàmbali nu lu bàyyi ba yoru safari ñëw maanaam fi ne da ngay wut café bu tàng teg ci sa wet ñu tàmbali di sant jëm safar ga maam comme nun doonoo war a màggali xam nga dan màggal du màggal du débat waaye nun doonoo war a màggali dañoo war a màggali waaw danoo war a màggali loolu mooy loolu mooy slogan bi mooy danoo war a màggali nun moom nañ yoon wa kan xasida tànn nag ngir sëñ Xaadim yëkkatil la ko waaw maa ngi leen sant bu baax di sant uh, waa jotaay bi sëñ Abdoulaye Diop di sant sëñ Xaadim di la sant bu baax a baax baax jërëjëf Murid xëy na jàpp woon sax ne dinaa mën a gaaw ci ren yi ndeysaan maa ngi bég lool maa ngi tudd Xaadim Fall sëñ Xaadim Fall waaw dëkk fii si Kaolack Kaolack ndeysaan Kaolack di bég lool ci xasida yi ngeen fi wax. wallaay ndeysaan ak jotaay bi di rafetlu lool. wallaay. waaw bu bëggoon rek euh, suñu xaadim. bu jàppandee. waaw mu jàngal ñu xasida saani ilaahi. saana ilaahi. saana ilaahi. waaw jërëjëf sidxoom jërëjëf euh, yéen ñaan ñi dugg moom tuwaarkaale yéen moom sant naa leen bu baax a baax kon sëñ xaadim euh, da nga leen di barkeelu kenn ki jawartu la laaj ki ci des xasida ko sidxoom la laaj su ko defee ñu door a ñëw ci question yi بسم الله الرحمن الرحيم فارقت إبليس وجميع المفاسد وبسم الله الرحمن الرحيم سمت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وجميع المساله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم جاورت الله بكتابه إلى دخولي جنته جاورت بالفرقان ربي المحيم ملكت نفسي وسحسحت العين أقصت من دنياه سادي للجنان وانخاد للهوى ولي سوى الجنان ولاني الأبرار في أخرايا وانخاد لي بلا امتحان قرايا رافخني إلى الجنان جيمو ولسواي صوصي الرجيم ترسي عن اللحين والفجار كون بديع العالمين جاري أكرمني البديع بالكتاب وسانني عن جالب العتاب لم ينوني إلى دخول الجنة خير بسارات علي سلمنا لم ينعني سجر ولا وحيد وحمري إلى الجنان عيد أفعالي ياسر المسون لهم حبا ولا إله إلا الله هداني الله وإنه البديع وخادني له بأنواه البديع برأني الخالق من سواه وخادني من لا يرى سرواه كتاب ربي كان لي وكنت له ولله به سكنت ترسي عن الأكدار والمفاسد سلامتي من جالب لفاسدي أكرمني الله بسكره وما لاختاره ولي قاد الأخوما باها بي الله الكرام الخرى وببقايا النبي صرّا هبات ذي الجلال والإكرام لي خلدت مرقب الكرام إلي أقاد له ما لم يكني ولا يكون أبدا لممكني لست أشك أبدا في كوني جار البديع عجبا للكون إن الذي من الإله حست غاب عن الكون وفيه فزت دلني الله هل الله بلا تقرر وهم لي تقبلا خابت قلاتي مع سيدي مستمني وسط بلا كسادي وخاني الباخي بي سبورا تجارتي لديه لن تبورا لم ينغني ما باح عني الله فضلا ولا إله إلا الله يقود لي بلا انتهاء ثمني من كان لي ولي صفى سمني جاورت ربي بلسان العربي بلا نهاية وتابت خربي نسعى للإسلام عند خربتي لدى الجزائر منير تربتي نسي علي نور اللسان والكتاب أسمعنا خدمتي لدى أهل الكتاب تسيل ما سبت للمصفحين أخنا يميني حن أذن ومدفعين هداني الله وصحصح اللحين إلى سوى حمره حبس المعين آمين يا رب العالمين سال إلهي بالمناجات وابدا اخنا يدي عن عادي سان الهي بالمناجهات وابدا اخنا يدي عن هاتي دل علي العلماء والأولياء من لا يسال قوتي وحوليا قصيدتي فاقت قصائد الكرام ولي تقود أبدا خير المرام هديتي مخجلة كل ملك كان مناشعا وأخزاع الملك ما تواجه النسار الله لي بلا إله إلا الله آمين barakallah jërëjëf eh, sëñ Xaadim eh, am nañu mbégte lool ci njàng mi eh, soxna maam Mbeyloo surtout sëñ Maxtaar Binta lool la nee na ma xanaa sëñ Xaadim daf noo bëgg a jekkali <laughs> tubaarkàlla ñu ngi koy sant bu baax a baax a baax a baax di ko ziyaare moo yaayam soxna awoloo Eh, soxna Adja Seck ñu ngi koy ziar ak soxna Saalihaat eh, fële ca Mbour sëñ moom soxna Saalihaat ñu ngi koy ziare bu baax a baax eh, muy ku baax ku sawar ci liggéey bi sëñ Abo Ñang nee na naa ko jottali ab cant ci yow akub ziar yaakaar naa ne moom ku ne xam na taxawaay bi mu am ci sa jëmm ñu di ko ziare bu baax a baax sëñ Sidi Ndiaye ma ngi ca France jànkatu xasaayit la nee na mi ngi lay ziare bu baax a baax di la yóbbante ay ñaan yaak sëñ Ablaye Diop Bisri sëñ Mor Ngone ñu ngi koy ziare bu baax moom ma nga ca Touba ak sëñ Mor Touré. Eh, sëñ Mouride Diop eh, transporteur la moom it ñu ngi koy ziare bu baax a baax a baax a baax eh, di ko ñaanal ak soxna Aji Diop ma nga foofee ca Atlanta moog yaayam di ko ziare ma nga ca Floride tubaarkàlla di ñaanal yaayam suñu borom wéral ko yëkkati ko sëñ Cheikh Basirou Silla di koy ànd ak yow ci xaside nee na bég na lool moog sëñ Saliou Seck conférencier muy sëñ Saliou Seck alxuraan sama xarit bopp maa ngi koy ziare bu baax a baax a baax di ko ñaanal ak soxna Bintu Jaxate ñu ngi lay ziare bu baax a baax a baax a baax. Eh, soxna Astou eh, soxna Njaay si bi ñu ngi koy jaar ma ngi ca eh, Belgique nee na mi ngi topp jataay bi jéem naa dugg sax ba sonn ak sëñ Bàcc Fay sëñ Bàcc Fay borom groupe bi mooy moom moo topp ci xel xalifa bi sëñ ma sëñ Bàcc ñu ngi koy ziare ak soxna ñaaña ma ngi ca Paris moom it ndeysaan mi ngi yónnee ay bataaxal moom it Euh, di bég lool ci euh, jataay bi euh, soxna soxna Momy seen ñu ngi koy jaare ak ki nga xam ne moo nekk fii muy suñu péete nag di sama péete muy soxna maam jaara seen soxna maam jaara maa ngi lay jaare bu baax a baax a baax a baax di la ñaanal yàlla defal la tawféex ndax yow sama xarit nga ñi ngi ziar muy sunu yaay bu baax a baax a baax a baax ñi ngi ziare bu baax a baax Serigne Mouhamed Sène Baxdaat sëñ Mouhamed Sène Baghdad ñu ngi koy ziar architecte la nee na mi ngi topp jotaay bi di bég lool euh, ñu ngi koy nuyu ci turu soxna moom mi sama doom jooju soxna Khady Diop maa ngi koy ziar doomi sëñ Murit ñu ngi koy nuyu bu baax sax soxna Khady maa ngi lay ziar bu baax moog yaayam soxna Yaasin ak sunu yaay ak waa kër ga yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziare soxna maam Ami Mbacke moom sëriñ Ahmed Baara ñu ngi koy ziar ak sunu yaay jooju nga xam ne euh, moom it ndeysaan taxawaay bu am solo la la am ci ñun saan ñu ngi koy ziar ak soxna Sukay Eh, soxna Awa Sow sunu yaay jooju soxna sëñ Mama nga xam ne moom tubaarkàlla ñaan yi mu ñuy ñaanal moom yaakaar naa ne kenn munu kenn munu cee teg dara waaye ñu ngi koy ñu ngi koy ziare baax a baax ak mboolem ku ñuy topp rek incha allah dana ñëw ci ziar yi soxna Anta Ndiaye ma ngi ca Italie Italie bépp si ñëpp laat di ko baax ñu ngi koy nuyu ak sëñ Maysa Thiam ma ngi ca Italie moom it di ko ziare eh, sëñ Xaadim bala ñoo yeggale ziare dañuy ñëw nag ci njàng mi xam naa ne romb nañ fu ñuy waxetee sax sëñ Xaadim kañ la tàmbalim njàng ak yu mel noonu loolu moom jàpp naa ne li nga ko tontu ci ay jataay muy réew mi ak bitim réew bari na waaye tey fi tey euh, suñ doon suñ doon xool contexte bi ñu nekk ak njàngum xasida lan nga gis ne moom la jànkatu xasida wala produire ci jamono ji ñu toll contexte bi parce que tey fi tey damay gis ñi nga xam ne nii duñ leen nattable ndax bokku leen yoon wi ngeen aw mooy ñu yëngu ci saayir xëy na danañ am ay projet ñu teg lan nga gis ne tey moo xam kër gu ñuy euh, jàngalee am njàngalee doon wala studio bu ñuy mën di yëkkatee ay kasaay lay doon wala xëy na ay ay jumtukaay lu mel ni teele wala nangam lan nga ci gis ci wàllum projet. laaj nga laaj bu am solo. Mm-hmm. ndax euh, liggéey bi ñu nekk. Mm-hmm. dafa nekk liggéey boo xam ni bu xaw a sacré la. Mm-hmm. ndax liggéey boo xam ni bi ngay ndaw di man doole. di am doole nga koy def ak wér. te ak mag day ñëw te jàngkat boo gis muy dem rek am na ñum àndal am na ñu topp ci moom te mboolem ña topp ci moom ñëpp dañoo bëgg mel ni moom mbaa ñu bëgg mu teg leen ciw yoon ñu dem ak seen bopp kon kooku moom ab jàngkat la waaye ab jàngalekat la ndax ñay ñëw fa moom dañuy wut si xam-xam ci moom waaye it dañuy wut ci moom aw yoon ngir man ca jaar ba mana jariñu euh, fi jamono tollu nak nga xamni tay ji masalan fi ñu tollu rek manana ci yi mbass mi ak Covid 19 bi nga xamni ni na wax ni mois de mars ba tay yi kon jaadu won na ci jàngkat yi am lo xamni budul jang budul ñu jàng mu sécuriser len masalan liggéey ci leneen ludul dul wekk sa lépp ci njang mi rek ñu wax ko ak ñu bañ ko wax ka di son nañ bu yag yag ndax ndem ñom buñ jangé ci la am dara buñ jangul duñ ko am kon amatuñ dara ka di amatuñ dara loolu waxumako ngir wut dara wala dede dama koy leral fi jamono tollu waaw kon jaadu won na ñu bayyi xel lu mel ni liggéey bi ba mën a wut leneen loo xam ne bu dul jàngit mu féete ci sa bopp mbaa mu féetale ci sa kër du yàq dara ci sag jaamu yàlla ndax liggéey bi jaamu yàlla la muy xaside yi jaamu yàlla la soo ko bëgg a defee nag ci ak dal ba koo def ci ak teey ak ni nga ko bëggee fokk ay xalaat yu bari du la sonal maanaa stress bu bari du la sonal jóg wuti du la sonal ngir am nga lu la mën a wuutu ci sa bopp man laa wuutu ci sa kër loolu nag kon jaadu woon na ñu dellusiwaat ci sunu bopp xalaataat bu baax lu mel ni ki yi ñu waxtaane mooy benn boo xoolee maison production daanaka na mu waroon a mel melatu ni ndax fi technologie bi egg da ko jiitu dafay si jóg yooyu yëpp amoon na ay jamono mu amoon solo waaye léegi xëy na fii jamono toll ak technologie bi ni mu avancé loo defati ci wàllu studio wala wàllu ay production cassette ak yu mel noonu daanaka dangay ngay da ngay am mm, moyen yu bëree bëree bëri yi nga dugal ko ci ay cerveau vocal wala nangam wala ay clé wala ay nangam bu dut loolu rek du sax nam war a mel du ni mel même boo ko defaroon parce que tey ku ko am ci téléphone am masalan bu doon production ku ko am ci téléphone am mën naa la ko envoyé envoyé ko suñu Ablaye bu njëkkaat nag loolu amul woon ba muy seede ku ne mën naa am seede bi ba muy cassette audio bu njëkk ku ne mën na koo am mais léegi fi technologie bi àgg moo tax ko production studio amatul boo xoolee sax studio yeneen yi nga fi daan dégg yu mag yi daanaka léegi fonctionné tul na mu waroon a fonctionné ba ci waykat yi bu ñu waree way sax. dafa am kilifa gu la bëgg a jot. Euh, moom murit la. moom murit la. dafa dugg ci ligne bi muy sunu kilifa muy sëriñ Maxtaar Mbàkke moom sëriñ Mamor moom sëñ ma Masamba. Euh, di ko xam mooy sunu sëriñ ci télévision bi ndax euh, taxawaay bi mu am ci kër gi mooy murit saadix la moom. damay faral di dégg nag mu am xasida gu muy wax ci tamassaktu bil hablil matini murattilan yaakaar naa ne dana ñëw léegi ci bayit yi sëñ bi ñoo ngi lay ziare Mbàkke. ñu ngi lay ziar suñu Amadou na ngeen def. noo ngi am mbégte bu baax a baax ci dàbbi gi nga tàbbi ci jotaay bi. waaw di leen siyaare bu baax di siyaare sëñ Xaadim sama xarit. Ah. ndeysaan ndeysaan moom fan yi moom fan yi sax dama ko dama ko bàyyi woon waaye léeg-léeg dañoo yàgg ëpp naa def ëpp naa def <laughs> léeg-léeg ma jekk-jekk rek bëgg dem feeti jo beneen côté ba waaye day ñëw jël si loolu mënoo ko mënoo ko mënoo ko <laughs> waaye moom waaye moom daa xam ond fi mu lay jàpp fi mu lay jaar la xam moom da da ko xam damay nax rek xam nga bëgg dem am lu ma wax xam naa sëñ bi rek xam nga nag moom turandoo ma tax dafa yëmu tëj xam nga turandoo waaw turandoom daa gën ñëpp moo tax ndeysaan ndeysaan ndeysaan mbàkke moo tax bayit boobu mooy sama sak di ci nee na ci alquranul karim ak sunatu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam nga jàpp moo tax mu raw ñëpp tomb boobu ngeen doon wax léegi dafa am solo ci jàngkat yi ak jamono dëgg la ak bu ñu leen dee nattalee ñu yëngu ci àddina ak sa ñoom sa ñoom yàlla xam ne ñoom li ñuy indi ci ci mbirum ressource financière. Mm-hmm. su nga boo xoolee les sociétés télécom yi nga gis ay orange rek ñoom ñëpp boo leen xoolee ak ñeneen ñu mën a doon mën nañ leen a bari na ci ñoo xam ne li ñuy li ñuy indi ci ay ressources ci seen dalal toon yi ñuy def. boolee mm-hmm. boo xoolee ku ci mel ne Serigne Khadim moom mas nañ cee waxtaan ak ñeneen ak ñeneen. Mm-hmm. boo xoolee ñoom li ñuy indi. ñu war a foog seen nattangoo yi. yi ñu mën a wooyee seen nattangoo ci geneen fànn gi la ñuy indi. dafa am bët ci dem ku may wax ne ma ku féete ci beneen wàll gi di ma wax scientifique mag la ci def wàllu wàllu sondage ci lool dafa ma wax ne ma mhm. ci wàllu gëléñoog bi ñu sondee dañoo gis nañu xale yi léegi lu ëpp ci maas yi ñu gën a féete ci tànk ci ñépp nag mhm. moo xam ñu féete ci daara ji wala ci fee ñu ci yenn wàll yëpp li ñuy ëpp ci li ñuy consommé mhm. mooy jàng ak li jëm ci diine waaw kon kon même société multimédia yi nga xam ne dañuy def euh, di jël xasida yi di ko def ay son wala di ko déglu wala di ko télécharger ci mhm. wàllu multimédia comme moo xew mhm. boo xoolee li ñuy jëfandikoo ci wàllu xasida ak li ñuy jëfandikoo ci loolu jëfandikoo wuñ ko ci mhm. yeneen fànn sax te ñoom ñooñu dañ leen a bàyyi amuñu benn protection du loo xam ne euh, en tant que ñoom li ñuy interpréter donte xasida yi ki ko bind da ko bind amul amul amul amul copyright amul droit d'auteur ñoom ñi nga xam ne dañ koy interprété mm-hmm. droit boobu ñeneen dañ ko jël di ko yóbbu feneen nga xam ne boo ko xoolee marché la boo xam ne ay milliards mm-hmm. ñoom ci am dara mm-hmm. daanaka du jaar ci ñoom manque protection boobu responsabilité ci lu mel ni groupe yu mel ne Touba TV ma ci waxtaan ak sëñ Mbacke xaari moomu def naa wax noonu defe naa ne foog ñu jëm ci wàllu boo xam ne dañ leen war pour li ñuy def xam ñoom loolu ñuy def noonu dafa metti di fanaan ci àll bi Mhm. boo xoolee at bi nekk 365 jours lu ci bëree bëri nga daw ko daw nombre de kilométrage boo xam ne kenn xamul lu mu toll. Ah. Mhm. Mhm. Euh, loolu defe naa ne ñoom li ñuy def lu nekk war nañ cee mën a jëfandikoo. ak seen doole ak seen ñax loolu defe naa ne ay waxtaan la yoo xam ne war nañ cee toog waxtaan. xoolaat ko bu baax. xool ñoom li ñuy def. ndax dañ koy def sëriñ Tuubaa di ko def ngir jëfandikoo waaye sëriñ bi moom day day day njariñ loo xam ne utub lor lépp loo xam ne doomu aadama da koy def ndax mhm. kasbu xalaat la koy tudde mu doon sàkk loo xam ne dafa lew mhm. nga fonk ko ngir ndax sëñ bi mhm. dafa dafa fonk liggéey di ci am dara ndax sëriñ bi dafa taqaleeg dafa taqaleeg ak jëf ju baax ak jëf ju mën a wéy sa sell nee na kuy kuy lekk lu lew rek moo nee na moo ko ma ak mm-hmm. kuy jaamu yàlla ñu mu di ko nangu kon nga xam kon sëriñ bi fi mu teg liggéey bi mm-hmm. di sàkk lu lew doo xam ne ci sa doole ak sa ñàkk nga koy defe nee na mooy condition bi mënta ñàkk ngir sa jaamu yàlla ak sa tasawuf ak sa bu mën a sell mm-hmm. kon rek ngir yàlla wala ngir xéewal te doo ci am dara loolu loolu kon nga xam ne kon sëñ bi moom teel na koo dindi loolu kon boobu moom amul ci lim amul mooy ndax gannaaw doomu aadama li muy def ci ak mu sell ak di ci jaamu yàlla Mhm. jaamu yàlla suñu borom subhaanahu wa taala mat koo nangu mhm. sëriñ bi nanguwul ni nit mën nay lekk lu lewul ba noppi mhm. di mën a jaamu yàlla sax ruux di mën a sell di synchronisé ak suñu borom subhaanahu wa taala kon kon lépp loo xam ne daf lay xañ loolu kon la ngay liggéey ci sa ñax kon war nga caa mën a am da yelloon kon ci jëf ci jamono yi ndax fi ne dégg na fi ñu bari ci jamono yi nga xam ne am ndaje amul ñoom de gisuma benn programme bu jëm ci ñoom bu dul li nga xam ne way defal yàlla yi ñoom ñoo ko yëkkati di leen ko jox te ñoom ci réew mi lañ bokk bu ñu jëndee essence dañuy fay impo suñ mm-hmm. dawalee seen oto dañuy fay impôt. Mm-hmm. bu ñu jëndee ceeb dañuy fay impôt dañ koy fayee comme ni ko ñëpp di fayee contribuable yëpp di fayee. Mm-hmm. te yëg nañ fi sax ba jox fecckat yi. jox leen ab xaalis ñu koy séddoo te ñoom joxuñu leen. loolu tegul fenn wax dëgg yàlla tegul fenn dañoo amul kenn ku ñu jiir rek te nag loolu tamit jëmul mooy wax fecckat yi naan man moom fas yéene naa bu soobu yàlla jóg ci lëggéey Sëriñ Tuubaa fex nga ñoom li ñuy def loolu ëpp solo dëgg la moo ëpp solo li ñu liggéey moo ëpp ñàkk moo ëpp moo ëpp moo ëpp lu xaari bopp ba moo ko xamee suñu xaarim moom mu yàgg na. ñu mhm. ay kenn xamul kañ la. ba muy tur mhm. moom boo benn daan bokk di faral. nga xam ne ampe jóge ci kaw jóge ci suuf kenn mayu ko dara. Mhm. dafa daan dafa daan ambalee na ci suuf di jàng fenn ñu di ko. di ko jox dara. ñu jàng fenn. ko jox dara muy daan dooleem jóg ci ndànk mm-hmm. noonu la jaare dafa mm-hmm. dafa lépp dafa ko mm-hmm. daf ko def rafe ko ko ci kaw suuf amu ci benn benn jaar-jaar boo xam ne ñoom ñooñu am nañ boo xam ne waykat nañuy wax ne kenn am na ko ci jaar-jaar ak ci am carrière boo xam ne dafa dafa dafa dafa dafa consistant jaar fi ñu ko war a jaar donc loolu kon ñu ngi ciy woo ñëpp ñëpp di ci gën a bàyyi xel ci fànn Mm-hmm. question boobu nga ko laaj dafa am solo. Mm-hmm. ñoom ñoo baax rek di def li ñuy wax def waaye protection sociale. amul mm-hmm. amul daal léeg-léeg jëw liñ daf koy faral di wax di leen wax ne. suñu dem di jàng ak di leen di leen di leen yërëm ci dawal yu bari. di leen yërëm ci ci ci risque bi nekk ci dawal dëkk dëkk nangam nangam. donc yooyu yëpp def naa yooyu ñu war a waxtaanee la. nit bu fekkee day def dara. loolu war a œuvre boobu war a continuer. te rawatina nag xas nga xam ne li ñu koy jàngee. ni ñu koy daajee façon jàng beeg. parce que yëkkandi beeg lu ci nekk waroon naa am ay ay ay jumtukaay ak ay structure yoo xam ne mhm. da ko jàngale mhm. te loolu ngir mu mën a taxaw mënut mhm. a nekk ci loo xam ne ci lu gratuit ak lu lu lu kii rek lay dem euh, defe naa loolu lépp waxtaan la woo xam ne jar na moo taxoon ma ne woon naa dugg tàbbal ci loolu euh, li may mere mere sëñ xaalis ah ma ne woon naa dugg tàggal Mbàkke yow mënoo maa mere mënoo maa mere lool ah? <laughs> xam naa ne bu xam naa ne bu génnee bala moo génn danaa ko kidnappé foofu tuuti rek bala moo dem. waaw loolu de baax na ci Mbacke bu paree rek ma yégalal la ko sa bureau. defal lu lu la neex rek Mbacke Ba. bu noppi rek ma la koy yégalal sa bureau. <laughs> ndeysaan. jërë jërëjëf Mbacke jërëjëf Mbacke. jot di ko wax liggéey bi ngeen di def. ndeysaan te liggéey bi c'est remarquable démb daanaka fa laa xaw a yenn ko wallaay wallaay wallaay wallaay Mbacke ak ñi di liggéey ni ngeen fexe ba programme ni programme continuer ak moment bi ni mu jafee ndeysaan tàmbalee ci Mbacke ba ci sëñ daam ba ci ñaay fay mboolem technicien ñoom ñëpp ñoom Ousmane ndeysaan vraiment jàmbaar ngeen ah. jërëjëf def liggéeyu liggéey ci loolu ngeen ci daj min moom la ci moom la ci sëñ Mbacke di daj. ndeysaan ndeysaan kon kon bu soobee yàlla ngeen ngeen gën a xam ne danañ leen gën a jàppale. lii luy continuer comme ni mu ko waxee woon rek. waaw ndeysaan ndeysaan di waxee ne lii luy continuer la dafa dafa doon loo xam ne du fay bu mukk ndax toog fi déglu xas rek sëriñ Touba rek yàlla lu ëpp. ndeysaan ndeysaan kon ñu ngi leen di sant seen gërëm loolu rek laa ne woon naa. jërëjëf Mbacke jërëjëf xaadim bu baax a baax ndeysaan jërëjëf Mbacke ak sa xarit sëñ sëñ Bisri borom mbég mi ah sëñ Bisiri borom mbég mi. ah waaw waaw ah kay ah xam nga damaa xool waaw wax nga dëgg sëñ bi waaw moom de xam moom xam nga moom moom. jërëjëf Mbacke jërëjëf. <laughs> moom ah kay. xam nga mhm. damaa dama dama ko xool doon ci télé bi dama ko doon xool ci YouTube bi. ndeysaan ndeysaan wallaay Mbacke. sëñ xaadim waaw waaye sëñ Bisiri moom maa ngi moom ñoo bokk ñoo bokk. tey daa sañse nag gis nga ko moom day sañse rek. sama xarit nga sama xarit nga Mbacke déedéet moom déedéet Moussa sañ la moom moom Mouride Sadikh la. ndeysaan ndeysaan ndeysaan moom moom moom da nga koy xool rek yéene ko sëñ Touba. xam nga amul sëñ ah, Touba ndeysaan ndeysaan yoo xam ne da leen di yéene sëñ Touba. xool rek yéene leen ko ndeysaan wallaay civilisé wallaay taalib am fasaaxa boo xam ne buy wax day yëkkati dënnam. wallaay ndeysaan wallaay day wax ci kaw kàddu ba jóg. wallaay waaw wallaay baax a baax ah. ndeysaan jërëjëf Mbacke jërëjëf jërëjëf wallaay wallaay Mbacke jërëjëf jërëjëf Mbacke eh, ñu koy gërëm bu baax yow soo wootee war ngaa woote ndax ku sëñ ma Masamba meññi waajuram ku ne xam na diggante xasida yi ak sëñ Masamba nga dugg seede lii nga seede ba pare muy intellectuel jànge Californie ñëw ci réew mi ànd ak alaaji Mbàkke ci liggéey bi li mu wax nii sëñ Ablaay dafa nekk loo xam ne lu am solo la sëñ Ablaay réew muñ dem ba fecckat yi laaj seen droit nan mu seddu suñu xaal fe fecc sëñ Cheikh Tidiane si almaktum laa mës dégg mu ne bala ngaa xam ne fecc ñàkk maanaa nee na ngay seetaan nit ki ci télé bi wàññi son bi ba ko muy di fecc nee na nga ne ko xoolal li ngay def mhm. sëñ Ablaye ñooñu fi sëñ Xaadim toll bala moo ñëw ci projet yi mhm. euh, nan lañ leen mën a joxee ay wàccuwaay yu toll noonu ci réew mi ñu dem bay imposé di laaj sax seen droit mhm. tey fi tey ñii nga xam ne nii sëñ bi ci xas xasida yi waxuñu ko ngir laajal leen waxuñu ko ngir bu benn bu kenn ko wax ne liñ nekk moo gën lépp loolu xam nañ ko liñ nekk moom sëñ baa ngi leen ciy fay àddina te dana leen ci fay àllaaxira ndax moom moo ko wax waxal boppam waaye dafa am loo xam dafa am sababu zaahir sababu zaahir mooy ñii dañoo am ay carte d'identité nationale di ay sénégalais di fay impôt comme ñëpp buñ soxlaa visa de rang yi tay ku ci juk fecc nyari mat ñaari fan ñet nga am passeport diplomate amul bari na fecc kat yo passeport diplomate lañ yor la waxuma le service de diplomate lañ yor ñii buñ soxla visa dañuy rangi señ khadim mi buy dem mënta juroomi aw kat te fini ni nii sañ bu sañon wax deug yalla buy dem tan ci ay gotam juroom nak ni xaarama yóbbu len waye orchestre buy dem señ bi nit ñi jankas de mëno yóbbu ñen señ ablay lolu xam nga xam nga liko def xam nga lu am solo nga wax mm. lu am solo nga ko laaj mm. liko def li nu ko tek moy fimne bo ne di kaasal dara. Mhm. loo xam ñun ñëpp sunu lu ñu war a xeex la. Mhm. ngir dul ñun sax. ndax ku mel ni sëñ xaadim ku mel ni man ku mel ni mhm. sunuy moroom. teraanga yëpp am nañ ko ci lii ñuy def. wax dëgg yàlla waaye nag war nañoo. teg mbir yi ci yoon ngir ëllëg. sunu doom yi ciy ñëw ak sunu sët yi ciy ñëw. ñu xam ni lépp teg nañ ko ci yoon. ndax dëkk bi ñoo ko bokk. ñun ñëpp bokk dëkk bi Sénégal. dëgg la am ci droit comme ñëpp. bi ci joxe lépp comme ñëpp. kon mbir dañ koy teg ci yoon mhm. mais bu fekkee soo waxee ñu naan waru leen a wax loolu xeeb nañ leen mhm. parce que yéen sëriñ bi bàyyi leen d'accord sëriñ bi bàyyiwunu mhm. sëriñ bi yoral nañu lépp ndax bi corona bi amee ba léegi ñu ngi jaay ay millions te taxawuñu kenn di la laaj kon sëriñ bi yoral nañu lépp waaye nag réew dañ koy teg ci yoon bu fekkee réew boo ci defee infraction dañ lay teg daan comme ñëpp soo ci bëggee dara da ngay ran comme ñëpp di ci fay comme lépp war ngaa kaas war nga taxaw ñu jox la sa àq comme ni koy joxe ñiy caaxaan loolu mooy dëgg loolu ci ñun jàngkat yi lañoo war a àndandoo ñun ñëpp kaas comme ñëpp taxaw bañ ñoo xam ni réew mi dañ koo séq li fi nit ñi am war nañ ko ci am loolu mooy yëfi nit lu leen dafa am baatin ak zaay te bu ñu ko bëggee teg ci ginnaaw rek ay noo sëriñ bi bàyyiwu leen bu leen defat yi di xeeb seen bopp tëye neen lépp mm-hmm. déedéet dañuy xool ñeneen ñi nga xam ñu ngi ñëw ci suñu ginnaaw ëllëg ñu war leen a kaasal ñoo xam dañu am doole ci réew mi mm-hmm. dëkk bi fecckat dafiy am dara mm-hmm. fecckat dafiy am dara léeg-léeg nga taxaw ambassade de Amérique yow kat ngay wax taaxuraankat yi ñiy taasu ñuy fa sax dama ni dama ni ambassade Amérique dama taxaw fa mu ngay gis ko jàng xasida lu mat vingt ans taxaw di wuti ji këyit pour war a jàng ji ñu mën koo xañ visa refusé ko mhm. may ko fecckat boo xam defe ko ci deux mois loolu problème am na dañu ko war a kaas ah, dañ koy may visa mu dem mhm. ñun ñëpp dañuy dem Amérique di gis foofu façon nit yoo xam ne dangay yéey tey personne mhm. ñoo xam dara lañ jariñul Sénégal buñ ko ñaanee tey am ko lu tax loolu. dañu mhm. bokk réew mi ñëpp seq ko. Mhm. kon loolu ñun ñoo war a taxaw bañ. Mhm. bu ma doogee barki démb dégg sax rappeurs yi di wax. <laughs> Eh waaye sëñ Ablaye déedéet dëgguma la. un milliard. déedéet waaw waaw ñun ku toll ak milliard. xoolal jëmee ko ci caaxaankat yi foykat yi ñëpp. li ngay wax mën a tëb ñiy wax. lu jëm ci diine ak di <laughs> ñoom dañ ko kaas mais tam dañoo bokk ci réew. sëñ Ablaye. waaw daa am koo xam ne. daa gaare parqué ko oto. waaw ñu laaj ko ci loo ko amee mën a waxi dof waaw maanaam ci la ko amee. wax na dëgg. maanaam bu toogee ci télé danaan diw yónnee na ma léegi million. waaw sëñ Xaadim mi ba mu dalee jàng ba léegi. Ah. te li ma jaaxal mooy gars yi ma waxee ñu ne lu tax ñu koy wax. lu tax gars yi ah, di leen waxal loolu. <laughs> lu tax di leen waxal loolu. dafa am solo sëñ Xaadim li sëñ Ablaye wax dafa am solo mooy tey ndokk ba nga xam ne satub sëñ tubaab moo dugg seedal ko boppam te ku ne xam na ne moom mii dugg sañ Maxtaar ci xasida xam nga dafa am bis ma posé ko Alaaji Mbàkke yu ma ne ko pourquoi xasaay door ñu koy defee grand théâtre mënuma suñu amoon saal bu bu fi gën a cher. moom la ñuy jël. dëgg xooluma lañ fay def li am solo mooy mooy saal bi gën a cher ci Sénégal ma bëgg woon ne kon ñi gën a cher ñoo fa war a dem muy jànk saay ndax saal boobu daa am ñu ñu ko moomale buñ ma ci laajoon 10 millions dinaa ko fay keroog lii la ma alaaj Mbàkke wax te ku ne xam ne saal boobu juróomi million ngay fay door caa jot. mu ne suñ ma ci doon fayee ko 10 millions dinaa ko def ndax damaa bëgg podium boobee ñuy taxaw di wax ci saytaane ak àddina damaa bëgg ñii taxaw fa sant Serigne Touba. Mhm. jël ab télévision fay ko ngir mu def ko en direct du partenariat da koo fay ñu def ko en direct mu jël ay neexal teg nag ni ñii ñoo moom lii ñooñu waaye loolu signal bool la boo xam ne nii lu am solo la tey bu ñëwaatee ci projet xay na am na loo xam ne ñoom danañ mal placé pour di ko wax ndax tey moom mii boo waxoon léegi suba nga gis ñu dagg ko. parce que léegi affaire bi daa garaaw sëñ Xaadim Gueye a di nangam nangam. su ko defee su ko defee ki nga xam ne. comprendre lul wax na nekk dëgg rek na nekk dëgg. wax dëgg la donc loo xam ne ni wax na ko muy ñi ci ginnaawam mooy ñi nga xam tey tey fi tey war nañoo ñëw taxaw xam ne kat lii ni kat xasidaa ko fi def te ab projet la am nga am pour léegi ma dëggal la mhm. moom bu la ko waxee bu la ko waxul mhm. man su la ko waxee su la ko waxul mhm. nekkatul ñun kese entreprise dana yor gis nga xasida soo ci jàng ba toll ci wenn tur wi ak di waxtaan ba toll ci wenn tur wi nekkatul yow dong sa tur wi xas siiw ñun saa suñu xëyee bu la ko nëbbuwul day am ñu sàkk si ndimbal ci yow fi ne am nañu toog suñu buntu kër saa boo demee ñu la sëñ bi de man dama amoon problème facture courant bi may fay. Mhm. lu tax ñu lay laaj. Mhm. parce que xam nañ la ci lii. Mhm. xamatuñ ba xam yow sa programme dagg naam daggul. sëriñ bi maa ngi jéggulu man de dañ maa nar a génn ci sama kër. aw fenn kër. mbërki démb am na ko ni ma damaa bëgg sëñ bi nga dimbali ma ci kër gu ma dëkk. waaw te yow du ñu xam benn situation nga nekkee sa tural moo la yóbbu foofu. ndeysaan kon ñun dafa am ñuy nekk suñu ginnaaw ñu ñu topp. kon yu mel nii su amee ci réew mi. Mhm. ñu ñemee jël milliard de ko voté di ko jox ay mhm. jaaxaankat ay fecckat ay mhm. mbëri làmb mën a tëb ñi nga xam ñooy wax lu baax. te am ci ay soppe yoo xam ne ay millions de personnes bëgg leen ci. fenn. dañoo war di ko wax. parce que pour ëllëgee suñuy rakk yi ci ñëw ak suñu doom yi ci ñëw ñoom xam ni kaasal ni a ñu bàyyee nii muy wéy rek duñ ñu teg fenn. dañ ko war di kaas. jërëjëf jërëjëf sëñ Ablaye waaw sëñ Xaadim waaw sëñ Maxtaar nee na nag mi ngi lay xaar boo noppee yaa ngi woon ci lu am solo nag. daaw <laughs> incha allah. <laughs> li am solo daal mooy. ñu xamee ci ni liggéey bi liggéey la buy dem ni ko Serigne Ablaye waxee liggéey la boo xam ni euh, bu yàggul rek Serigne Ablaye xale yi dañu ñëw ci man ni dañoo taxawul groupe boo xam ni doomi jàngkat yi la ma ne ah, kon de ak màggee ngi bëgg ñëw. boo ko xoolee doomi jàngkat yi ñëpp a nga ci sëñ Ablaye tàmbali ci sëñ Ablaye Seck maa ngi koy nuyu di ko maa ngi koy nuyu di ko siyaare bu baax. maa koy siyaare bu baax sëñ Ablaye Seck sama kilifa di ko ñaanal yàlla wér ak gudd fan. amiin amiin amiin yàlla ko fi te sàmm. amiin njàng mii ngay wax. Mhm. def na ci lu bare bari bari sëñ Ablaye Seck. dëgg la am na ñu ko ci jiitu waaye génération bi tàmbalee ci moom jëm si ci jëm si ci suuf euh, ñoom ñëpp ci moom la ñuy xool jàmbaar dëgg la. de li ngay wax tek na empreinte way seigne blaye sek tek na empreinte kon nak bu demee bay wax ni doomi kat yi ba taxawal ko groupe ci lani ak mag mi ngi ñew ak mag nak bu ñew day fekk li nga wax legi nga bayyi fi mba nga taxawal fi symbole bo xamni bu ñewé fekk ko fa man ca tek sen loxo xamni ño leen liggéeyal li ndax bu bu le seigne bo waxon bu reeri don doy reeri daw yo ya doyna waaw june seq na ko ñun defal nañu ko ba ñu rus waaye nag euh, saa booy sonn ak liggéey euh, ña ña ña nga bàyyi ginnaaw rek a tax su ko defee nag loolu day day nekk ci day nekk ci tegtal boo xam ni mbooleem jàngkat bu fi ne ak ñoom Sëñ Ablaay ñii ñoom ñëpp ñu ngi ci biir jaadu nañu bàyyi xel suñu bopp ci lépp loo xam ni ay projet la yu yu yu yu la mën a taxaw mën a taxaw njaboot gi dëgg la nag man mm, Tuubaa ga ma féete saa su nekk maa ngi waxanteeg jàngkat yi lu leer la ci képp koo xam ni yàlla doganoon na bi ngay dugg ci xaside yi yaa ngeeg sa métier moo xam ni mënal na la dara nanga ko fonk bu baax boo waree jàngi nga dem jàngi boo jàngiwul na nga delluwaat ci sa métier ngir lam la mënal ëllëg ci boo jàngiwul dara mënula la faa ndax asgor mënut lu bari ba tax lu bari xale yu bari maa ngi leen di sant Tuubaa dégg nañ wax jooju ba ñu ci bari wan nañ ma ni sax deug deug bayi woon liggey bama ba ma bima waaye nga wax li dama wat euh man nak wax deug yalla ma ngi ci projet yu bari ay tolak ak bëgg naa taxawal ab radio ma ngi ci démarche diko dox ak yenen ak yenen yo xamni ni yene naa yéene incha allahu euh, rek dana ko yegal ñep ñu ñu man ma ci jappalé ma ngi ko yegal sëñ Mbàkke yu waaw ak mbolim kilifa yi bëgg naa taxawal daal yu bari yoo xam ni dana doon njariñ ci askan wi waaye dana doon njariñ it ci ñu topp ci sama ginnaaw loolu it dama delluwaat ci démb rek dellu ci samay kër maam ndax loolu rek lañ xam jàng jaamu yàlla liggéey loolu rek lañ xam euh, kon nag liggéey bi moom yim àndal daa bari waaye bu fekkee ni dañ koo aj ci bu ñu jàng jiyee daal jàngi nañ bu ñu jàng toog mbaa bu ñuy jàngi jee jàngi ji nañ bu ñu jàng jiwul maanaa alhamdulilah wax dëgg yàlla dana gàtt lool ni ñu ko waxee ma am na yoon woo xam ne bi may tukki di wuti visa daje naa fa ku mag ci jàngkat yi yaakaar sax moo ci mag mu bëgg visa Espagne xañ ko ko te bis booba daje naa fa kenn ci waykat yi waaw booba sax ba muy ñëw moom daa ñaan may nañ ko moom may ko ñaar waaye lañ ko may mu yor ay xiin ñëw di tëgg pour manifester wu wane ni mhm. liñ ko may moom moom la doylut mhm. maanaam dafa bëgg ñu dolli ko ñeneen mhm. ah te avant ma fay jóge woon nañ ko mu dugg ci biir ñu laaj ko ñan ak ñan nga bëgg ñu may leen mu wax ko ñu may leen sama kanam maa ko ah, fekk te bis boobu kilifa gii ma lay wax nga xam ne ci kilifa jànkat yi la bi mu génnee nee na ma ah sëñ bi de xam naa ni moom nga ñaan rek li la yàlla dogal may ñu ma ca laa xamee ni nag dëgg dëgg lii moom manees na cee nekk ba faatu te dee sulet jox sa gëdd bi nga ci am mukk ba ci sodaaf gii rek man mii am naa fa carte waaye ba fii may wax yow yi ñuy seddale ci réew mi da koy dégg rek waaw donte nag aju sëñ Maxtaar doon wax ci wàllu dalal toon yeeg yenn yenn seen son yi utilisé ci publicité ay jamono ba ba bi mu fii nekkee cassette audio yi bu ñu masaan def ay hologramme nii mm-hmm. nangam nangam dinañ la woo jox la ay cent mille cent cinquante mille mm-hmm. yooyu rek lañ la ci daan jox. man mhm. bokk mosu ñoo weesu ak man loolu cent mille ay cent cinquante mille deux cent mille. Mhm. yooyu la ñuy daan ci sodaaf. Mhm. te li gën a garaaw suñu xaar yi. waaw barki démb laaj ko sama waajee. dama nekk ci sama oto. dëkk bi. am ñu may jaay samay kaset man. si dëgg la ma la wax. am ñu may jaay samay waxtaan yoo xam ni. man awuma ko fa. man awuma CD bi nga xam ñoom ñoo koy créer seen bopp. defar sa CD di ci dund. ñëw di ma ko jaay man ba nga xam naa ko ba door a amee waaw te yow doo ci dëgg la ni ñu am na ku ma mas wax ni sa kasetu maam jaaratullaahi bi ci laa yeggale sama kër. waaw ah, noonu la ma ko waxee. Ah. ci laa yeggale sama kër. te it ci laa yor sama kër. daal di àgg suuf génn àddiyee jox ma. ni ma kaset bi benn dong laa ci amoon dem Napoli sotti ko ay ay junni junni kaset ko ko am fii maa la ko jox. waaw kon nag. Mhm. liggéey bi moom. Mhm. donte eh, gisoo njariñ la itam. waaye mhm. yàlla dina la ci fay ndax am na ñu ciy jariñu sa ginnaaw ñoo xam ni mhm. ci liggéey boobu rek lañuy ñuy jariñ waaye daal lu mat a taxaw la sañ am mhm. ngir fàttali ñëpp ni jàngkati xaside yi ci réew mi lañ dëkk ay doomi sénégalais lañ man mii di wax ak yow musuma dem fenn fenn fenn duggee fii avion taxuma ban bis laay dellu si kon duma koy taxawaalu fenn te bari naa ci ay moroom ci jàngkat yi yoo xam ne xaside yi rek lañ am fu ñu dem dañuy dellu siwaat te am Sénégal lañ koy indi tey jànkati xasida yi ma wax la lenn ay mhm. junni junni doomu aadama la ñuy dajale mhm. waxtu wu ne ci benn dëkk di di leen xirtal ci lu baax di leen wax lu baax mhm. di yeesalaat seen xol ci lu baax ñooñu kon am nañ participation bu rëy ci réew mi moo xam ni euh, foog naa bu doon état ñi ngi dimbali état bi ci nit ñi baax ci nit ñi jubbantiku ci nit ñi bëgg lu baax ndax tey jii képp koo xam ni bàyyi nga lépp lu bon di déglu xaside yi parce mhm. que yéenee baax te mhm. jànkati xaside yi mhm. waxtu wu ne ñu ngi mbooloo yi mais sëñ xaadim yow ci jànkasaayit nga tuubale nit fukki nit ak ñett fukki nit ak ah, ñett waaw dugal naa leen ci lislaam waaw fukki nit ñett dugal naa leen ci lislaam yaakaar naa kenn ki bu yàggul leer na Cheikh moom mais ñëw na ci kër gi def na fa fukki fan ak ñaar moom ñaari doomam wala lu ko ëpp soxna jaara laa ko tudde te xaside mu ngi dëkk Ziguinchor waaw Bignona mhm. di déglu xasida yi ba ñëw Touba. ma mhm. tuubal ko tuddee ko Soxna Jaara mhm. tey jii mi nga borom këram di sëy ànd ak ñaari doomam ñëw ci kër gi mooy ki ci mujj am na daaw jéeg rek fii gisi ci di foncé ma fi jàng tuubal naa fi nit ci weeru safar wi tuddee ko sëñ Touba. mu féetee ak man nekk ci man kon nag yooyu yëpp Euh, waxtu wu ne rek. Mhm. la Cheikh Mouhamadul Mourtala waxoon ni. Mhm. ba ñu demee Amérique. Mhm. mu tuubal fa kenn la wax ni bu fekkoon ni dañoo dajale bagage yëpp ànd ñëw tuubal kii rek doyoon na sëkk yoon wi waaye yàlla dimbalee na ma fukki nit ak ñetti tuubee nañ ci man tuubal nañ ci yow waaw tey tey tey fi tey bu fekkoon ne euh, euh, kilifa moo tax yenn saa yi bu ñuy sant ay nit man ak sëñ Ablaye ci dafa am ñoo xam ne ay sponsor volontaire lañ ñoo xam ne ni amul lu ñuy xaar ci kenn kuy yëngu ci sëñ bi dañ lay defar rek ngir sëriñ bi xam ne war nañ koo def ku ci mel ni sëñ Abdou ci la bokk ndax at mu ne dina tànn jàngkat waxtaankat ne kaay leen siyaar ji bayti laal xaraam soo gisee am sëñ Xaadim Géey sëñ Laat Diouf sëñ Moustapha Diop Taysiir ñuy wër barabu yonent bi wala Màkka di jàng xasaay dalay joxaat beneen image boo xam dafa am lu muy dolli ci yow tey fi tey sëñ Xaadim bu fekkoon ne eh, kilifa gi kilifa yi réew mi taxaw nañ ne ñun dañoo bëgg a recevoir jàngkat yi waxtaan est-ce que danañ am projet loo xam danañ ko mën a teg ci seen loxo ngir ne noppi ngeen ci ne lii bu ngeen ñu ci defaloon daanaka yéen wàccoo ngeen ah kay ndax tey jii mbooleem lu doomu aadama di aajowoo ba mu liggéeyam mën a dox na mu ko mm-hmm. bëggee. Mm-hmm. aajowoo nañ ko. dëgg ci lépp. ndax am na tailleur am na ferrailleur. lépp laa wax am na lépp am na bois am na lépp. lépp mm-hmm. jàngkat yi am lépp ngi ci biir. mboolem métier yëpp jàngkat yaa ngi ci biir. képp ko ci gis rek jiitu muy ne ci njàng mi ba njàng mi di jël occupation rek am na lu mu nekkoon. Mhm. kon loola bu ñu ca dellu siwaatee. Mhm. loola dañuy jàppale. Mhm. dañ daf ñuy dimbali. président Macky Sall euh, xam nañu bu baax a baax. man mii toog naa ci saalam jàngal ko xasida ak midaad yi. moo ma wax ni sëñ Mbàkke Soxna loo moo ma jox werd. ñëw na sama bureau benn yoon ñëw sama kër ñaari yoon. kon nag umpale wuñu. xam nga état ak dooleem ni mu toll xam nga nii lu lu lu xew rek xam nañ ko xam nañ jàngkati xasida yi xam nañ waxtaankat yi waaye dëgg dëgg daal suñ nga waxee dëgg mooy àqi jàngkat yi xasida yi ak waxtaankat yi sëñ Tuubaa yi mhm. seen àq ci réew mi moom teguñu ci seen bët ah, dëgg dëgg mhm. jotuñu ko itam ndeysaan eh, ñi ngi ziyaare bu baax a baax eh, eh, sëñ Ablaye sekk ak soxna maam bu sa jang ma nga ca Touba Daaru Marnaan ñu ngi koy ziyaare nee ñu ngi ñaanal ci barkeb soxna sa gaawaan ak soxna Ami tuubaa ca kaw Kaolack ak seigne Fallou Tine jànkatu xasaayit nee mi ngi lay ziar jànkatu borom bi maaji ak euh, seigne Cheikh Ngunda gay neena na dugg ci telephone ba son ngir jot la ah, waaye xam ah, tay ban ban message khadim tay euh li seigne Fall doon wax naan bu ne nit cey la am dañ nan cey la daj bas bu ne sha allah ron nga ko mes nga ma netti ne sax jël saret dem jangi, bas ba ma doon jàngi ñu fàtte ñu ci mbar mañ doon fanaan ba bi jeex tey kon sëñ Xaadim am na parcours njàng mu métti ci ay jaar-jaar ban message tey moom nga yónnee joxe ko ñi nga xam ne ni dañoo door te jëgmal njàngum xasaay parce que njàng mi it lu lu mat a seggat la lu mat a xoolaat la ci njàng ci baat bu neex ci xuruf yu wér waaye ci melokaan waaye xam nga damay jàng fuddan sa ci kiim ak say loxo guddal we yi <laughs> sëñ bi takk lu kenn xamul jul jul ju ne nga takk ko taxaw te buñ la joxee xasida gu wér sax xuruf yi sax araf yi sax mënoo koo génne mm-hmm. loolu itam lu am solo la lu ñu war a leeral la loo xam ne nii du méccam way wi wala am na xaalis may ñëw parce que dafa am ñoo xam dañoo bëgg xasida yi lu jiitu ñuy jàng mm-hmm. tey ban message ngay yónnee ci ci ci ci ci ci loolu ah, xam nga sëñ bi jàng moom li mu àndal daa bari lool mm-hmm. lool dañ cee dañ cee dañ cee boolewaale yoo xam ni mhm. maanaam doy nawaar waar daal mhm. te jàngkat fi ni lii li ëpp ci ñu koy def ay gone lañ mhm. te amut fenn fooy jaar doog a ñëw ni ab jàngkat laa dangay ngay xëy rek tàbbi ci benn sa baat neex mbaa nga mokkal aslaf ci xasida yi dugg ci amul kenn ku la ciy teg ciw yoon wala ku la cay tere wala yow nga soxla caa dem ci kenn sax ni ko hmm. dimbalee ma lii wala conseiller ma lii wala wax ma sax lu ma ciy jariñ hmm. bañuñ ko ba boo ci doon wax lu baax te yéene ko ñépp boo génnee te taatan sa nopp loo dégg na la neex waaw dëgg hmm. kon kilifteef moom dañ dañ na ci amatu ci mbaa ñu néew ko ci doxal li ci am mooy ku ci nekk ak yoonu boppam mën naa nekk ku ne jaar ci yoon wala neex waaye ndax di nga am li la neex loolu lu mat a bàyyi xel la mhm. ku ci ne mën ngaa jaar fu la neex mhm. waaye ndax dinga am lee la neex mhm. xasida yi nag maanaam waxtu wu ne sëñ Mbàkke soxna loo def ne moon xasida yi ndëndum buur la ma ne ko waaw mu ne ma deesu ko tëggal baadoo la ni ma xasida yi ku ko xamul jaru ko jàngal ak ku mën a doon ak ku ko mën a jur waaye xasida yi itam la Cheikh Mahamadul Moustapha waxoon ni nit ki day defar jëmmam ba mu xeemee mu ba ku ko gis bëgg a jaxasoog ma waye mu defar jikkoom ba kum jaxasool dootu ko bëgg baye bàyyi mhm. xaside yi loolu la àndal moy mhm. bo ci nekk da nga wara set mhm. sel, te deugal ci li nga ne ta selal ko waye nak tag ba kep ku la jaxasoog yow dootu la bëgg ba baax ndax nak bari na yuñ ci sib de bari na yu bare bari ño xamni da daanaka ci benn kat lañ xol àtte ci ñëpp te ñëpp nu roowuñ ñëpp am na ñoo xam ne lu ne ñu ngi koy def ci xasida yi mhm. moom la ñuy wayaane mhm. moom la ñuy jàng fu mhm. de bu yàggul rek wax nañ ma fii loo xam ne jooy naa ci sax xam ne ab waykat daa dugg fii ci almadi way ba génn ay jàngkat dar ko ci ñaqam ni mu wékkoon ni sarbetam di fomp ñu dar ko di ko jàngal dëgg la te fekke ma nga jëm ci restaurant ba di lekk loolu bi ma ko déggee samay ronkoñ dafa tuuru wax nañ ni sax moom wax na leen ni tooñ ngeen ma waru leen ma a jàngal xasida yi fii ndax fi ma génne waaw kooku loola lu ko jar ci àdduna mhm. am na ñoo xam ne ci kër sëñ bi la ñuy toog mhm. bu am ministre duggee ñuy yëkkati bu ab député duggee ñuy yëkkati maanaa di topp gan ñi kem seeni barke nañ toll di leen yëkkatil xasida yi ñoo mhm. ñoo ñi ngi tooñ ñëpp ñi ngi tooñ seen bopp waaye ñi ngi tooñ ñëpp ñëpp dëgg la waaw dëgg la ñëpp yamul te kenn mënu leen a génne ci jànk yi kon nag mbir la moo xam ni ñi ci ñi ci ñi ci ñi ci ñi ci nekk te mhm. dëggal ci ñi ngi ci mhm. am na ñoo xam ne daanaka diglootuñ njàngoom xasida ci ñi koy def ci jamono jii ngir kenn nit rek lañ xool melokaanam neexu leen ñu àtt ci ñëpp mhm. am na kilifa yoo xam ne tey jii bu doon ak magal bu waxtaan wa jeexee fi saase ñoom ñëpp ay jógandoo parce que bu desee lu njàngu xasida jàpp nañ ñi fay jàng daanaka duñ jàng te am na ñuy jàng njàng mu wér a wér a wér mhm. ñu ko teg ci yoon mhm. mokkal xaside yu bari mhm. buñ xëyee balaa ñu balaa ñoo wax ak kenn durus xaside yu baree bari di wattu xaside yi di ko mokkal di ko saytu di ko toppatoo xaside yi defal leen lu ne waaye am na ñoo xam ne ku konte ci ñoom ku nekk daanaka dootoo dootoo konte wu kenn mu doon loo xam ni nag bu fekkoon ni ku ci ne am na adresse boo amee lu la naqari ci moom dem ci kilifaam nga ni waaw waaye ku ci ne kilifa ak boo ci doon wóo nit di ko digal tey laa la wax boo noppee ci digal ba nga koy digal boo ko taatanee sam nopp la muy waxaat boo ko déggee bëgg bàyyi àdduna kon kilifa amatu ci dëgg la ku ci ne yoonu boppam la mm-hmm. léegi nag message bi ci am solo rek mooy ñu xam ni mm-hmm. xasida yi moom képp koo ko foye mm-hmm. des na la foye wax ju dëggu la nag ndax du waxi rek ay addis ak nangam xasida yi marchandisum boroom la wax nañ ko léegi moo xam ni wax nga ko léegi bi muy taalif xasidik ala inna ni usni yaa ngi génn lu baraag ba mu ko defee woon ak fa mu ko defee woon mm-hmm. mag nag du liggéey gone di foye mm-hmm. bu doon marchandise ci bitik mm-hmm. ma yëkkati ko jox la ngay jaay di ma indil bénéfice laa soxla waaye bu ñu defee inventaire nga perte ma bu ma amee fula dama ko war a nangu joxe joxe ko kuy indi bénéfice. keneen kuy indi bénéfice kon jànkat yi dañoo war a dem di indi bénéfice. waaye waruñoo dem. Mhm. buñ la bu ñu defee inventaire ñoom ñu ñu perte. Mhm. perte gi nag mooy di ko mhm. foowe di ko jàngee fu ñu ko soxlaawul. di ko defee nu mu la neexee. di ko gungee nit. lu ne. wax naa la léegi nii la mhm. am na ñoo xam ni biir kër kër gu mag la ñuy dem mhm. président Cheikhoul Khadim mhm. buñ séenee am ministre yëkkati maa ci teg sama bët buñ séenee am kas dëgg du yegg sax ay bayit la ñuy wax bu ko duggee cooto ba ñu ñëwaat taxaw di xaar am na eh, waykat <laughs> musique boo xam ne fii bi mu faatoo ci armée lii am na gone yu ko topp di ko yëkkatil xasida mm-hmm. waykatu musique ak ak ku mën a doon rek maanaam képp koo jàpp man ngaa am ca moom dara xóotu xasida waaye noo amee ca moom dara ngay lijjanti ba ci njàng mi dañuy toog ci jataay nga war a jàng njàng mu wér mhm. au lieu nga jàng ko mhm. waaye diggante si li muy gàtt gàtt yaa ngi fiy xool mhm. noo mën a tuddee nit mbaa nga tudd ab sëriñ mu man la caa neexale nga récupéré ca dara ci diggante su gàtt soosu doo ci xool sax yow sëñ bi li nga ciy lijjanti rek mooy diggante su gàtt si naa fexe rek ba ma sëñ Abdoulaye Diop bis ni mii sëñ am satum sëñ sooy boo sëriñam naa ni sëñ am satum sëñ sooy bu wala ma ne sëñ am sa saddi lisaani naawi jaan <laughs> dëgg la de ah sëñ ah. mii sëñ Abou Moussa Bla tey sëriñam. naa ni ni liñ ma ciy won liñ ma ciy won du <laughs> <laughs> yëpp pour bëgg am dara nga xam ni <laughs> dañuy jàpp ni loolu may na leen dara mais lim leen di may mi ngi leen di xañ lu ko xañ wallaay wallaay wallaay ki nga koy wax dina xam ni jàngatoo ngir yàlla ngir ah, moo tax dëgg la xam nga li ma la koy dëggalee sañ Xaadim jërëjëf gaa yaa ngi koy wax sax ci YouTube bi ni sëñ Xaadim wax na lépp xam nga maa ngi moom ndeysaan maa ngi ziyaare soxna moomi Kebe moom alaaji ñu ko Kebe Sëriñ Saaliw soxna moom maa ngi koy ziar ak sëñ Ablaye Tage day bëgg suñu émission bi waxtu wu ne saa su ne rek bala maa ñëw ci émission bi danañ wax ay kaddu ñu ngi koy ziare baax di ko ñaanal yàlla defal ko tawfeex dana ma yenn saa yi jàngkat ñëw taxaw di jàng mm. ñoom xamuñu ne moom kër sëñ Saaliw la noonu la ne woon te day durus xasaayit mu ne des fois nga nit gis ku taxaw di jàng mu leer la ni kii li muy jàng ba mu wàccee xasida ga yàgg na wala lim te kii bayit bari na waaye gars yi dañuy taxaw di jóorul rek ndax dañuy jàpp ne ak ah kii daal soxna la xam naa xamul kii kii xasida yi mm. jël ab midaad yi far roof ca waxaan yi nga xam ne doo xam xasida gi nu ngi koy rofanante lii sëñ xaarim di wax it du moom da ko am tant que jànkar man dama cee teg sama bët mm. gis naa ci a ko cee dóor mm. garde dañ ko dóor ak liif parce que li muy daw di jàngal di jàngal di jàngal ministre yi ma xëcc ko ba mu ñëw ma ne ko sawaay lii lu ko jaral yow li nga mel ci kii mu daan ni noo ñii dañu ma ne ko noo ñoom defuñu dara fii nga koy wutloo ci bopp moodul place gis nga bu doon place am sëñ Muntaxa mii ci biir mooy woo Hizbut Tarqiyyah waa mun na nañ dajale fa fële toog ñu jàng xasaayit mm-hmm. sëñ bi loolu tamit kenn du ko def muy yoo xam ne nii yu ma tabaay xel la léegi nag damaa bëgg a joxe numéro euh, Cheikh Aada ndax bëggumaa joxe numéro sëñ Xaadim xam naa bu ma ko joxee moom Eh, tubaarkàlla <laughs> sëñ mag sëñ Ablaye xam nañ li may wax moom bu soobee yàlla yaakaar naa ne bala muy bala muy bala muy kii eh, eh, dana dana dana kéemaan waaye Cheikh Aada numéro am laay joxe su ko defee sëñ Moustapha Fall yow xam nga ma xam numéro bi xam nga li ci war a dem 77 la 458 32 15 77 458 32 15 mooy numéro Cheikh Adama Gueye direct sëñ Xaadim Gueye ku ko bëgg a jot sëñ Xaadim nga jaare foofu waaye sëñ Moustapha Fall na nga ci jiitu yàgg. Awasaar soxna Awasaar ca Amérique yéen na ngeen ca jiitu euh, muy 458 32 15 barakalla sëñ Ablaye euh, balaa ñoo ñëwaat ak euh, sëñ Xaadim ci tëju jotaay bi ndax war naa jàng boromam am na ku ne ma mënut a tëj te jàngul boromam am na ku ne ma mënuñoo dëgmal màggalu sëñ Modou Moustapha te jàngul sëñ Modou Moustapha ñoom saalihaat nee nañ ma mënut a ñàkk a jàng sëñ saali waaye bu ñu ko toppee noonu sëñ Xaadim ñeent fukki at wala fanweer ak juróom ñu ngi jàng xam naa ne air yi moom dana kéemaane waaye sëñ Ablaye mënoo ñàkk a ziyaare euh, kilifa yi nga xam ne ñu ngi lay topp ñu ngi ziyaare soxna nday soxna laat ma nga ca euh, njaareem ñu ngi koy ziyaare baax soxna Kine Mbay euh, ñu ngi koy ziyaare bu baax a baax barakalla ak sëñ Basiiru Kend ñu ngi koy nuyu ak waa groupe kenn du sëriñ bi yéen ñëpp noo ngi leen di ziyaare Euh, di leen bégee bu baax a baax ci seen topp ngeen topp jotaay bi sëñ Ibrahima Kare ñu ngi koy ziare euh, euh, di ko nuyu baax sëñ Mouride jóg mi nga xam ne ni mooy mooy tubaarkàlla transporteur boobu maa ngi koy tudd léegi di ko ziare soxna maam Boussa Fall sëñ ji Saw daan ànd ak sëriñ Xaadim Guèye mii di sama xarit di ko baax lay ziare bu baax sañ Xaadim euh, di ko ñaanal moom itam yàlla defal ko tawféex euh, di ziare euh, bu baax a baax mboolem ko ñu topp ci jamono jii rek ñuy wax ak yéen incha danañ ñëwaat léegi ci yaatal ndax xam naa ne message yi moom takku na waaye sëñ Ablaye ma bàyyi la kàddu gi rek. balaa sëñ Xaadim waaw maa ngi ziar bu baax Serigne mm-hmm. Tidiane Dabo. Mm-hmm. taalibe seex bu baax boobu nekk fii ci marché HLM. Mm-hmm. nit ku baax la. sëñ Tidiane daabo maa ngi koy ziar. yàlla xam na ko jànkatu xasaayid yi ak waxtaankat yi ñëpp fonk na leen fonk koo xam ne ngir diine islaam ak mbaaxam. Mhm. ñun ñiy dem marché HLM ñëpp xam nañ ko. Mhm. Euh, keroog rek la ma laa fa jaar mu jël lu mat fukki mètre jasneer lépp ni ma àddee Serigne Touba. waaw mhm. ah, kon sëñ sëñ Tidiane. Tidiane Dabo moom Tidiane ni fii ci kii. mooy Tidiane Dabo mi message léegi ndeysaan naan ma nag ma ziyaaral sëñ Xaadim. ak nit ku eh, baax a ngoog koo xam ni ku jar a ñaanal. wallaay wallaay ah, ñëpp ah, ci maase. ko ñaanal wallaahi waaw ah, parce que li mu am mu ngi koy bokk te yàlla tax ko bokk ngir diine euh, te loolu rek moo war a am wallaahi ku baax nga wallaahi wallaahi wallaahi wallaahi a ah, ma dama ko bëgg a solol mbubb ngir ah, la ñu jàngkat yi waxtaankat yëpp noonu lay def yàlla yàlla sàmm ko te dolli ko sutura amiin mu ngi ziyaara bu baax euh, sëñ Abdoul Karim Wade mu ngi topp jataay bi mhm. naka noonu sëñ Bàcci Silla nekk ci sama groupe soppe yi mu ngi mhm. topp jataay bi di ziyaare sama soppe yëpp nag groupe soppe Ablaye Diop Bichri yëpp euh, bu mu ci doon dañu ngi leen di nuyu mhm. ci njiital sëñ mhm. Abdou Khader Fall nu mhm. ngi nuyu sëñ Mandiaye Ndiaye nekk fële ci Pàkku Lambaay euh, ku baax la xaritu sëñ Xaadim Gueye mii la mu ngi yóbbante ay nuyoo euh, taalibe sëñ Babacar al mu ngi ànd ak ñun ci jataay bi naka noonu sëriñ Saliou Ndiaye nekk fële ca Maroc soppe bu baax mu ngi topp jataay bi Massamba Sall sama rakk la ca Touba mu ngi topp jataay bi hmm. sëñ Fallou Kane douanier ci aéroport mu ngi topp jataay bi sëñ Kosom Mbàkke mu sëriñ Seex Say mu sëriñ Son bu nee na mu ngi ànd ak ñun ci jataay bi euh, soxna Maguette Ndiaye mu sëriñ Saliou mu ngi topp jataay bi sëñ Nooyin Sëy nekkoon ex directeur général bu Sonatel sëriñ sëriñ sëñ kër sëñ Xaadim Gueye lañ xamante woon moom ma koy fàttali nii sax ni ma kër sëñ Xaadim Gueye laa xamante woon ak yow ca Touba ñu ngi topp jataay bi naka noonu Pierre Moussa policier mang ko ziar ak ñom seigne mustapha gay yarowaay policier ñom ñep rek mbeng mm-hmm. mang ko ziar bu baax baax seigne mawdo Xasaa tam mu ngi and ak ñun bu baax ci mm-hmm. jotaay bi mm-hmm. seigne Amdi mustapha Fall euh, ñu ngi koy ziar mu ngi top jotaay bi ak seigne Babacar gay ci Saint-Louis nu euh, ngi koy top mu ngi top jotaay bi diko ko andeng ak ñun seigne dalu Juk suñu soppe bobu ci tiaroy seigne Modou Ka mu ngi and ak ñun mom tamit batay ci jotaay bi euh, naka sohna soxna May Fall mu ngi ànd ak ñun ci jataay bi sëñ Moustapha Fall ci leen ñu mm-hmm. ngi koy ziar mu ngi ànd ak ñun ci jataay bi mm-hmm. beral nuyoo sëñ Alaaji Guèye taalibi sëñ Abo Madiana sëriñ Mara Diouf fële ci pàkk Lambaay sëñ Ibrahima Thiam jàngkat nee na mu ngi ziara sëñ Saliou mm-hmm. seen Italie ak euh, sëriñ Saliou Seck alquran conférencier mu ngi ànd ak ñun ci jataay bi euh, soxna Ami Ndaw ñu ngi koy ziar ci Géejawaay moom it naka noonu soxna Ami Mbakke mu sëñ Ahmed Baara ngi ànd ak ñun ci jataay bi soxna Ndey Mbaw si Mbaaw soxna May Njaay fële ca jaxaay mu ngi ànd ak ñun ci jataay bi soxna Suuna mm-hmm. Jong sama soppe boobu ci géejawaay waaye soxna Fatou Gueye ca Texas mm-hmm. ñu ngi koy siyaar ci Amérique mi ngi may message léegi ndeysaan moom it ku baax la ku topp jataay bi waaw moo borom këram sëñ Xaadim Gueye ñu baax mm-hmm. ñu ngi koy siyaar bu baax moom euh, mu ngi ànd ak ñun jataay bi soxna Maguette Diop euh, di soxna Serigne Cheikh Mbacke Abdoul Aziz di sëtu Serigne Ñaan Diop suñu soppe ñun ñëpp ak sëñ Xaadim Gueye nee mu ngi ziyaara di ànd ak ñun ci jataay bi di béggee bu baax a baax euh, jataay bi mm-hmm. sëñ Seex Wilaan ca Espagne moom it mu ngi ànd ak ñun ak sañ abooloo sama soppe boobu soxna am Amar nekk fële ca Pikine mu ngi ànd ak ñun sëriñ Seex Abdu Ngom suñu soppe ba ca Russie moom du taata jataay bi mu ngi koy ànd ak ñun euh, naka noonu sëñ Bàcci Fay euh, xasida Cheikh Abdou mi message léegi ndeysaan mu ngi ànd ak ñun moom ngi ca Russie ndeysaan waaw mm-hmm. mu ngi ànd ak ñun ci jataay bi euh, di beral nuyoo bu baax sëriñ Babacar Diassé mm-hmm. mooy suñu soppe boobu nga xam ni mu ngi fii ci Liberté 6 mm-hmm. ñu ngi koy ziar bu baax a baax maa ngi beral nuyoo ma di Niang sama xarit boobu nga xam ni daf maa sopp loolu sëñ Hamidou mm-hmm. teraanga ju ne lay def ndeysaan sëñ Ahmadou taal euh, li nga doon wax léegi da ciy dugg dafa am bis ma toog rek mu daal may envoyé message ni ma sëñ bi daal damaa xaw am gàcce ci sama bopp ma ko lan la muni ma dama xamni lima serigne bi defal mhm. récupérer ma may talibé may jëndal katou musique auto bu jar 90 millions waaw la ko jëndal mhm. ma dem nak ba yedd sama bop lima am ci teranga warna naa yu yeen ñi di jang xassay yi wallahi non la ma ko waxee mhm. dal ni ma ñëwal dagal na la fi terrain bu 300 mètres carrés ci mbour ma ngi ko ziar ñu ahmadou taal mom nit ku bax la momit yu mel nonu kon mu ngi am nga xam ni bëgg nañu lu baax di def seen alal yàlla na yàlla fay leen ñoom ñëpp ñu ngi leen di ziyaara bu baax di leen mhm. bëgge mhm. euh, naka noonu maa ngi beral nuyoo mhm. bu baax a baax euh, honorable maam jaara euh, femme nekk fële ci Pikine ak sëñ Thierno Ndoom maa ngi koy ziyaar bu baax a baax moom it di jëf lu baax ci Pikine naka noonu sëñ Moustapha Ndoye bu setikoo maa ngi koy beral nuyoo ak sunu yaay ajaratu liikandooy nekk fii ci ñaari tali yàlla yàlla sàmm. amiin Adja say joxaane marché asolem maa ngi koy ziar. Mhm. nit ku baax la waaw nit ku baax la barki démb rek euh, ñaar fukki junni la ma nuyoo maa ngi koy ziar bi ma fa jaaree. Mhm. maa ngi nuyu sëriñ Jong Couture. Mhm. moom it bu baax. daa jël tuseem lépp ñaw ko ñaw bu rafet. solal ma ko maa ngi koy moo mook soxnaam Adja Mati Thiam. Arouna Kumba Ndofène Diouf sama xarit boobu ministre maa ngi koy nuyu bu baax di ko ziar. ab Ablaye Jabu Seniko sama xarit maa ngi koy ziar di ziare bu baax sëñ Ousmane Gueye mhm. bu Brooklyn ak sëñ Matar Samb euh, soxna Mbène Diop Adja Momi Kebe ak sëñ Ablaye Tage mhm. Adja Wuli Mata Jum sama soppe maa ngi koy ziar mhm. sëñ Modou ngoom entrepreneur ca Kër Massar maa ngi koy ziar ak soxnaam yépp soxna Yacine Sarr soxna Sophie maa ngi leen di ziar bu baax Mouhamed Abdoulaye Thiam ma sekk Thiam fondation Rasoul sama xarit maa ngi koy nuyu colonel Ousmane bu police maa ngi koy nuyu waaye beral nuyoo sama rakk sëñ Abdoulaye borom fajaa sob maa ngi koy siyaar fële ca parcelle sëñ Sidi Ndaw transit maa ngi koy siyaar bu baax di beral nuyoo colonel Ousmane Faye mu sëñ Fàllu euh, bu dowaan beral nuyoo sëñ Xaadim Gueye mu alaaji Baara Fàllilu nuyu sëñ Abdoulahat Silla beleel tusi fii ci marché asolem sa yóbbante bi jotaguma ko waaye ki nga ko wax euh, nee dana ma ko jox kon kontaan naa maa ngi lay siyaar bu baax Silla di la ñaanal mm-hmm. ñaanal sunu wéejur ajaratu Faat Ñas soxna Mariane mindi njaagob sëñ Fallou maa ngi koy bu borom ndindi kër Galas naka noonu sëriñ Xaadim Guèye ca kër Massar maa ngi koy ziar montre bu rafet bii moo ma ko jox addiya yàlla yàlla sàmm ko euh, Mafal Fall taalibe sëriñ Modou Awa Balla ca Louga maa ngi koy ziar bu baax euh, sunu soppe la bu ñuy topp dina jàppale moom it li mu waxoon ci Touba ca kanam muy valeur cinq millions barkeloo na ci Touba ca kanam loolu di lu rafet joxe ay tuyaux d'évacuation yooyu yëpp yàlla yàlla sàmm ko bu baax a baax naka nonu sëñ fallu gay masayer maa ngi koy nuyu ak sunu yaay ajaratu euh, mareem saw ci raw mang koy siar bu baax pap mamadou saw bu dété sa soppé mang koy siar ak soxna nuyul ma madame Sow madame Sow moom na heure bo ci egsee rek mom nak mo ko ziar ñu ngi koy siar bu baax a baax dañuy xam nga jàngkat waxtar waxtaankat dañuy sonn léeg-léeg danaan démal ci sama hôtel bi Palme Beach rek ngeen noppal ngeen sésu wa mom de mom dëgg yalla ñu koy siar di ñaanal kéemaan la euh, sëñ Maxtaar Suy la Fres ñu ngi koy ziar ak maître Khassim Touré sama frère boobu maa ngi koy ziar sama soppe sëñ Mokhtar Sey oustaz maa ngi koy nuyu ak sëñ Fallou Diop ci Medina waaye naka noonu sëñ Malick Sey ca itaali Italie sëñ Hamidou sëñ Malick Sey ca Italie mu ngi lay nuyu ndeysaan nag daf may laaj sa mesure sa loxo pour jaaro ndeysaan waaw ah, jaaro yu rafet yu ma woon yu mu bëgg a def ay baar axiqa ndeysaan waaw dañ ci boole sëñ Khadim Gueye waaw kon sëñ Malick Sey mhm. bee boo nga def ko yu bari rek waaw équipe bépp waaw <laughs> ah. waaw ngi lay ziar bu baax Euh, bërki mu benn xale bu ndaw daf ma dàq fii ci Castor. Mm. ajaratu Adja Mbaye ak Thiam. Mm. xale bu ndaw jënd ay booboo yi yu baree bari ni ma lii moom addiya Serigne Touba la <laughs> loolu lépp sëñ bi war na ko ndeysaan xale bu ndaw. waaw maa ngi koy ziar ndeysaan jërëjëf euh, jërëjëf sëñ mm. euh, mu nekk lu am solo madame Sow da bëgg naa nga wutal ma sëñ xaadim gi ñeenti fan yu mu dal allah. waaw baax na ci maa ngi la ko ndax yow murid saadix nga sëñ Pape Cheikh moom jaru ko ndax amul jot gi eh, temps bi bari wul wax deug yalla mi ngi liggéeyal seigne bi seigne <laughs> Pape Cheikh Bey euh ñu gëreem ko bu baaxa baax su ko defee am ko ne sax euh eh, eh, seigne Modou Guèye affaire électroménager lay def mi ngi fi ci ak aslem Grand yof neena sa wëlale la ku baax la ndaysan ndeysaan moom moo ma joxoon euh micro onde ba ak cuisinière ba ca koor ga ndaysan mhm. ne dama xol ne bu ngeen di waxtaanee seigne Touba bala ngeen a tëj 5 h du matin su ngeen yeggee nan la njabot gi di def ba mën leena tangal ngeen xewul ñu ngi koy ziare baax sëñ Maodo di ko ñaanal nee na ma ziare ma sëñ Xaadim Guèye ñu ngi koy ziare baax a baax euh, di nuyu bu baax a baax euh, mboolem ñi nga xam ne ñu ngi toog bala maa ñëw ci ziare euh, am ko ne ma laajal ma sëñ Xaadim waaye laaj boobu xam naa ne day xaw a kii mooy gën xasida la xam bu ko duggee du ko mën a yeggale loolu moom yaakaar naa li mu koy dal ci xasida yi bari na <laughs> ndax nee na dem ba yàgg dootul ci xam ban la ci kii waaye sañ daam am na lu ma bëgg nga tegal ma ko ma am lu ma ci laaj sëñ Xaadim ci yëg-yëg boo xam ne nii waxuma sax ci njàngeen mi waaye ku ko seetaan sax jeexit googu lay def ci yow bala ñoo ñëwaat ci xasida yi tegal ma ko moo mu commentaire ko di taxaw déglu lii may wax borom Tuuba the end. jërëjëf waares yi eh, ñu gërëm leen baax señ dam señ Mbacke mbocc barakallah ñu dellu di gërëmaat baax soxna asugawan job, ak eh, sunu soxna su baax si mu andal ñu indi fi ay teranga yu am solo eh, yaakaar naa ne bok na ci wété émission bi ndax señ pap Cheikh balaa muy sawar deug deug tim ci ñaar ba ñett mëna xam caméra bi fu muy jëm señ fallu Sey lambay Couture ñu koy jaare baax diko ñaanal euh ko ndokkel señ khadim xasidi digi dafa melni bi ngui ko yëkkatee dafa melni da nga environnement bi ndax fi suma djumul ndar la te soriwul gouvernance dafa mel da nga jàngaale eh, li la wër mbir mu nek mhm. fang koy defé daf cey mhm. daf cey feñ mhm. wa kureeru ñaar raaka yi maa ngi nuy seigne Ahmed Faar bu baax ak jëwriñ yi mo andal yépp di len ndokkeel jamono yi ko len gis ñinga daan waajal ñaar raaka biñ may ñëk contact di ma wax ni dañoo bëgg ma jàng mhm. ma jàngal leen ci ci bisu ñaar rakay dañ ma daanel ndax dañu ñëw ni ma bis bi yow rek yaa ko war a moom ndax yow sëñ Touba lañ la tuddee te ba nga dalee jàng na rek léegi ci ñaar bisu ñaar rakay ëpp na ñaar fukki at ñu bëgg nag nga jàngal ñu ko waaye niñ ko bëggee mooy ci yoor yoor bi ngañ koy jàngal nga xam ne man jiitu man ma di ko jàng si daanu naa mhm. bi ma ñëwee ba toog ci yoor yoor bi di jàng lu sama xel dem dajul rek ndax histoire ndar moom dama ko xam maanaam xam naa ko xam naa ne fa sëñ bi ñëwee waxtu wam fa ñëw lam fa daj bañ ko fay jëlee di ko indi Dakar yu yëpp xam naa ko may jàng xalam loolu yëgu ma ni sax daanu naa maanaam bi may dem sax yëguma ko dëgg la nag man xaside yëpp may daaneel keroog moom dama mujj moom mënatumaa sax jàng daanaa jàng di ko boole jël bi ak njàng mi waaye keroog moom daa mujj maanaam mënutuma boole dara ak jëli bi loolu nag li may dal bari na lool ndax man xasida yi moom mooy mooy dund bi mooy sama dund moo may dundal waaw bu ma amul dara tey jàng xasida yi rek baax na waaw xasida nag loo ci gën a yàgg rek mu gën di la bu gën a sori ci yow di la gën a dugg nga di ko gën a bëgg nit ñi dañuy dem ba dañ may dañ may jaxase dañ may wax ni wa señ fu njang mi tollu señ bi nam na njang mi de señ bi fi ne ni xamatuñ fuñ ne waye fekk na yow nga dund lo xamni ndax njang mi ab dund la ab dund la li le nit ñi yërem yërem ci choona yi ak ki waye da nga da ngay dem bam yag ci biir auto bi mas na ma tok bam yag jek jek rek daanu ci auto bi joy ba bañ durwaati auto bi wacc taxaw ñepp ne ci man ngir bëgg jël bi sedd waaw ndax da dem di dem di dem di ba ba ngay xalam sëñ bi di xalam liggéey bi mhm. ba dootoo xam sax yow maanaam sëñ bi féete na la fépp kon dina méngóog ma ko te way ko ndaxte mu dolli may may waaw géwél sañ naa wëree bi kañ boroom mhm. ci boroomam waaw kañ ko te way ko ndaxte may may kañ boroomam ma kañ ko te way ko ndaxte mu dolli may may géwél sa ñaawaree luy kañ boroomam ma nit li fi jaloore te fi ndam te xar baax yo tax ngeen xam boroomam te xëji ya yàlla fal xam nañ maqaamaam ca xar baax ca may xam boroomam ca wali ca xawsu ya sax fa diiwaan ca xutb ya ak ña daa wéet ak boroomam ña xam ca baawoon ba tey kenn jaaragul fa mu jaar boroomam ña xam yàlla ña xam yónneen kenn jaaragul fa mu jaar boroomam ña xam yàlla ña xam ba tey kenn jaaragul fa mu jaar boroomam te wax ji moo ko wax bu ko noon yooyu booku di ngat wax ji moo ju yoog boroomam ci géej ga la làmbe yàlla ba fekk muy géej mu tànk ci léeri xëy bu ya boroomam ca géej ga la dàqe seytaani ki gaayam bu ñuy maaj muy taxaw fara tey boromam ci géej ga la Bamba tijjee ndambi xam-xam ba faf yor aliway xalim ak boromam bàgg ci yàlla àgg ci ngën di yónneen ñu soppi ko soppi lépp muy boromam saxal foofee jihaari bakkan ci ay at di boole tagg ak juleeg wiital boromam ba fam seey mel ni suukar far ci yonen di moom muy moom ci baatin ci boromam ñu bokk ko fol tofal ko ngërëm mu fab kun ñu wamatru yi jox ko mu jox boromam di kenn ku ñëpp xam foofi ci baatin tubaab ya di bañ sëriñ sa di yem boromam mu fab def jaltitim yépp dunyaa di taalif téere yi sellal boromam malaake seere pal gamam fa diiwaan fal ay xutbu yi dee balaa la am ci pey arsibaatin ju di soog daam te jaasi boromam te mooy wutaatu yonen far ci suuf di mbootam kun ci lépp lu soob boroomam mu làq ngërëm ci zaayir ak ci baatin maqaamam foo xam mboolem boroomam sëriñ Tuubaa di maanaam dex ku dem duy ku soo bu ne mees bu génnee bàyyi nga sant mbokk lay seetaan. ci mel ni ñoom sëñ Alaaji Mbàkke Yoob waaye damaa bëgg boo boo boo mënee soofal tuuti ci sëñ Saaliw ji rek. su ko defee ñu door a dugg nag ci eh, eh, gërëm gi ak lu mel noonu ndax ñu mën koo tëjee jataay bi. borom xabaar nag njurul boroom laganag ndooka borom daaray ñaaru borom ngi jaana xel koom borom umul xora borom jannatul mahwa Sëriñ Saalihu Sëriñ Saalihu Sëriñ Saalihu jooy naa ko jaayu xol yu foor man ñàkk naa wuru su foor jant la moom moo tax mu muur leeru biddiw yow xamal sunu cër yi weet xol yi weet daara yi weet kër yi weet yëgal ni tey jii fépp a weet kuy wetileeti amatul miskin yi tey ñëpp ngi jooy jirim yi ak faqiir yi yooy gone ya ak mag ñaawaa jooy ku leen di woo nax amatul donga yi tey ji ñëpp a ngi jooy murid itam ñoom ñëpp a jooy yëgal ni kii ñëpp a ko jooy ku mel ni moom taxawatul donga yi tey ji ñàkk nañ ma ñi kasaaka ñàkk nañ fu ñuy jëleeti waaja daan fo bi gone ki tamtamal adduna yaa ka mën a wor xamoo ku baax xamoo woloor fii taxaw da nga ko wor sa melokaan amul solo adduna yaa ka mën a wor xamoo ku baax xamoo woloor lu fii taxaw da nga ko wor saw melokaan amul solo sëriñ Saaliw wéetal nga noo sa dem gi daa jaaxal nanu yow lanu xam nga dem banoo fu ñuy jëleeti xel mu dal sëñ saaliw moonu daa xamal yàlla ak yonent nuy bégal tarbiya moonu ko defal kuy wuutu ki ci lii amatul jëfam ji rëy na seere ko ku lumuri seere na ko tijaan waxaadir seere ko ku mel ni moom amatul bu yeglu won duñu fi dess wallahi kon ñu dem mu dess nax nañu mom kat bani fess fes ñu dess fi nun kuni defal na lami tax na ñepp gëm yagam fi ak wiru cërem bam tambalé ñu gëna gëm mu daadi di dem ta àggagul demam gi daa diis fi nun ma wax li tax mu dis fi nun dono bëggoon mu dess fi nun nu am ngërëm bam alal su ko defee nu am i doom yëkkati leen moom mu defar baay defari doom lin mébétoo na ngi àggul alhamdulilahi ndegam ñun la mujjee ci ay loxoom te ñoo mujjëtam ci am xelam walaahi lii doy na ngëneel na yàlla buur fayal nu ko li gën ca moom te teeru ko jëfam ci nun Sëriñ Saaliw matal na ko na yàlla buur fel nuko ko li gën ca moom te téru ko jëfëm ci nun matal nako delu na mom di khadimur rasul jasaau rabbuna al karim ala khalifatil khadim salina ibni alxadim قد كان يكمل الامل شيخ محمد المستوى مبكي santal de cant yaa fi gën amul ku lay werante te ka ngaayoo ci mustawa tëddal nag nelaw yaa mustawa ñépp mokk nañ amul xaj bu lay xiirooti lum nan ci mustawa wallaay yaa reyuk may yaay borom xaas ni mustafa muhammadu abdalaayi ax ni bi mustawa ña daa xiiru ak ñay matu seen géñ ya foq nañ sabawkat yi seen gémmiñ yi saañ nañ ko Moustapha ña daa jabarak ña daa xaatim ak ña daa luxus yalax nañu seen xam-xam ya far toppi Moustapha sigil te wey te wammatru yi tuub nañ ci yow bu wér te faale ka wuy seeg ka far jekki Moustapha su fekkoon dangay laaj carte say candidat ni wiiw ndayaawat ña daa woote ña daa waati musa ngay nañu waawaaw nda Seex Bamba yaay donoom ku koy sikki sakaareere Seex Abdi Musa ci waaw mbaa ci waawaaw mbaa ci woowoow nga tollu tey ku ñëw rek jekki jooy ndeyaa doon Musa olaf nee na woote bi yàlla moo gën bu nit di def defoo kenn deful yàllaay borom kun fa Moustapha olaf nee na ko am xel nangu dem téléphone ko am xelam na am xelam dem wuy ji la Seex Bamba noon waa réew mi yàlla ma woote loo ku dib dof na toog ne xel wa daw fekki Moustapha sëriñ Bamba tuubal nan la ñëw nan di jaayikum te salaaw dootunu delloo wel ci Mustafa ndax ganaar ak nenam yaak si qiyaa cuuj kulluhum borom gàmb baa moom lépp naaw tal nu Mustafa Cheikh Mustafa Cheikh Mustafa may mujisaatam koy waxal wa kallama rabbul arsi Musa bi musawa lu jën jaaga bambay njaag te mooy njiin fa Mustafa ku fay nag war naa liggéeyal si Mustafa Seex Mustafa ay géeju ngëneel waaju ak si duy ku mar bay xondooj yaa tey ma ngay wal fa Mustafa doxom maa ngi war Tuuba batub xaynu rahmatin wa xaynu rida dem leen dëkkee ki Seyxi Mustafa ma nga yasalaat Tuuba bi tëddiidi diinihi yërëm ndaw ña magal mag ña moo doon Mustafa di sëylo góor ña denculoo góor ña kulluhum di sëyloo jigéen ña denculoo góor ña kulluhum di len sant di len setal na ngeen santu Moustapha lo waay soxla bo fay dem muy faj loola sahatan tabe top ya la gine mo sax fa Moustapha Cheikh Moustapha ay sam suluda fi zamanihi wala al afaaxu min nur Moustapha kile am kham kham. ta am dine fonko ngor ragal yalla tay jambar judul daw fa Moustapha kile am medai fi zairin bahda batinin hinaayatahoo xablal wilaayati mustawa kilay mbàkke waa kokkeeg lugaak ndaam di kër ndayam ña doon kaa ngi kànkaag mbaa kolay raam fa mustafa dex gaa ngi fenga te dootu daay sëriñ bi juudi nuur leen fa mustawa wala sul hasbun sarabo wa milhun ujaajum bul qiyaas nit ci ولا يستوي لما كلام إلهنا فأنت بشير يا شيخ حمدي مصطفى waaye ci moom laa jàngoon aw Eh, damaa gëj a aw nag ndax baat bi léegi ñëwatul tubaarkàlla waaye sëñ xaarim yàlla na yàlla fay ndax ñi nga xam ne ñu ngi ci groupe bi yëpp maa ngi seen message ci kenn sëriñ bi ndax eh, eh. fan yi seen pas-pas ak seen pasteef ci taxawaayu taxawu mbokki taalibe yi nekk ci prisonniers yi ñu ngi ciy laaj addee joo xam ne dajale nañ ko ba mu mat ndeysaan muy lu am solo ñu fas yéene wéttali mbokki taalibe yi ci tamxarit ji ñu ngi leen di ñaanal yéen ñëpp ñu bokk ci groupe bi te nekk ci réew mi ak bitim réew fu ci waaye mën a nekk rek ñu ngi leen di gërëm ci seen taxawaay bu am solo boobu am nañu baree bari ñu ma yónnee message di ma wax ne dañoo bëgg a bokk ci groupe bi groupe bi ne damaa bëgg ñoo xam ne man dugalewu ma ci dama joxe numéro ki ciy dugale mooy sëñ mam ma moom moo dul dugale ndax nee na daa fees loolu nag moom laa leen di bàyyeel moom ngeen koy lijjantee waaye sëñ xaadim bari koo xam ñoo xam ñi ngi seetaan sëñ Ablaay nee nañ bi moom dafa jéggi sax neex moo tax sax tey ñu xaabaabal mm. tey gisuma sëñ Mbàkke ci régie bi ñëwul wax dara ndax waxtu wi jeex na bu yàgg waaye ku ne xam ne ni jataayu murit mooy demee ni te am na ñoo xam boo leen daleele ku mel ni sëñ xaadim mhm. faaw nga bàyyi murit yi ñu nàmbante ak moom mhm. ndax wax dëgg yàlla fi jamono ju toll mhm. dëgg la sax murit amuñu benn jafe-jafe ci stress waaye buñ gisee si am sëñ xaadim mu toog jàkkaarloo si yeb laa jo biis kat nag wax dëgg yàlla war na ñoo dundal roo yi moo tax ñu ngi lay gërëm bu baax a baax soxna saari maa ngi koy wax léegi ak euh, ki nga xam ne ni mooy euh, sëñ sëñ Moustapha Fall nee na ma waaw sëñ Abdoulaye Diop xaas yow dégg comme dégg ko rek baax na ñi numéro Cheikh Adama daal joxe naa ko falaa yem nag soxna si ñi ngi koy ziare baax soxna May ñi ngi koy ziare baax ndeysaan moom it mu ànd ak soxna su gaawaan sëñ Xaadim sëñ xaadim kebe mi ngi may yónnee léegi message ne mi ngi lay ziare hmm. nee na mi ngi lay ñaanal nee wax ji nga wax ñoom ñëpp nga ko waxal hmm. nee na mi ngi lay ziare bu baax a baax moom it ñu ngi koy nuyu ma nga foofee ca Touba ko ñaanal yàlla defal ko tawféex sàmm ko may ko mu yeggale hmm. sëñ Mamor Mbàkke moom sëriñ Abibu moom sëriñ Manumbe nee na mi ngi lay ziare nee na mi ngi lay nuyu bu baax a baax nee na ma ziaral ma sëñ xaadim moom ku ne xam ne ni kenn fekk ko ci nun ndax taxawaay bi nga xam ne ne taxaw na ko ci sunu jëmm yi ku baax te bëgg sëñ Tuubaa soxna Kumba daal laa xam ne moom kenn mënul ko dara démb laa ko laaj addee sëñ mënu ma bañ am na lu laaj waaye daa bañ maa ngi koy siyaare bu baax ak sëñ Cheikh Khadim yëpp maa ngi leen di bu baax a baax sëñ Khadim ma bàyyi la nga sant rek <laughs> mëna lu dara dama ko laaj ne ko jox ma lii addee sëñ mënu ma mënu ma maa bañ ko caa far rek waaye <laughs> ndeysaan waaw waaw sëñ Amidoun <laughs> maa ngi am bu baax gis nga liggéey bii lu am solo la mm-hmm. man jàng daf ma yóbbu fu fu sori mm-hmm. xam naa ni bu ma demee ba kàttan gi ñëw dina metti ci man ndax fa mu bëgg mu fay àgg bu fa rek dana dana metti ci man ala la fa te it dama fa jàng dafa am dimension bu muy toll mm-hmm. foog nga bëgg mu dem fa loolu ñuy jàng xam nañ ko te li ngay wax gëmoo ko ko wax du ko gëm waaye jàng moom dana de gen gor muy wax mana jang mom jang rek mhm. waaw seigne blay sek mas naa deg ci làmmiñam mu jang mom bo ci tolo ta am katan am wér mhm. neena def ko nak do xam kañ la mané di di ñew neena def ko rek mhm. waaw kon nak ñi ngi sant kat yëpp man kat yëpp samay xarit lañ gis nga li jaar ci sama loxo bi ci jang kat na jaar ci sa loxo loxo moko pour kañu dama koy wax ngir ñu xam ni loo yàgg rek mm-hmm. lu ne fekk la ca mm-hmm. jànkat yu bare bari te yi ñuy dégg ci réew mi ku tudd jànkat yi booleel ñu ci bari sama mm-hmm. loxo lañ jaar rawatina ñu féete ndaw ñu rawatina ñu ëppee te dëkkee Touba. ba ci dakaar gi kon man ku war a sant yàlla laa war a dolli sama góorlu bu baax ndeysaan ndax am na yoo xam ne dum njàmbaar ndimbal rek la sëñ Abdou Xaadir waxoon na ko xaw ma jàmbaar kuñ dimbali rek laa xam man nag maa ngi sant ñëpp Mm-hmm. su ma jekki woon di tudd mm-hmm. ñëpp fii laay fanaan mm-hmm. ndax ñëpp a ngi teew ci sama xel waaye mënuma tudd kenn di sant lu ma ci ñii di ànd ak man muy sama awkat yi tàmbale ko ci turu jëwriñ ji sëriñ Mamour Guèye ak mboolem ñi ci topp ñëpp suñ daam rajo ñoom ñëpp jàpp jëm suuf maa ngi leen di siyaare bu baax di leen jaajëfal ndax liggéey bi fu ma jëm maag ñoo ma ko ànd amuñu guddi amuñu bëccëg Euh, liggéey bi itam ba mu taxawee ba tey mm-hmm. ñoom ñëpp ñi ngi wéyee seen ngor ak seen dal mm-hmm. ak seen gëm sëñ Tuubaa te yaakaar ko wóolu ko koo ci woo rek mi ngi lay wax ne mi ngi sant mi mm-hmm. ngi góorgóorlu di leen ñaanal yàlla bu baax yàlla taxaw leen ak sëñ Tuubaa maa ngi sant sëñ Xaadim Seen mii nga xam ni ñoo ànd ñëw fi mi muy kenn ci man liggéey bii ngay wax ci wàllu communication bi mook sëñ Abo ñoo ko yor dëgg la di ci ay jàmbaar lool. dëgg la cee def seen temps seen alal. dëgg la seenu jot. Mhm. mu jaral leen lu nekk. Mhm. sëñ ma ma mii yaakaar naa ba ma koy xam ëpp na fanweeri at. ci moom laa la xamee. mu ngoog. Mhm. am na bis yaakaar naa ma di ko jàngal sil mhm. xam moom ku mu mësal la mhm. jël la ci sama ndogal yàlla gi la bokk sëñ di ko jàngal si taw xaadim na ko léegi taw bi ñëw na njàng yi jeex na baas bi moo wekki baas bi teg na ñu yëg ca kaw ñu yëg ci kaw terrasse bi waaw maanaam ci biir bâtiment bi laa doon jàngi maa ko fekke toog ci buntu néeg bi ñuy des toog ci couloir yi ñu fanaane jàng ma suba mhm. waaw ndeysaan maa ngi koy siyaar bu baax di siyaar njabootam yëpp ndeysaan waaw di siyaare soxna seen saalihaat yónnee na àddiya nee xam naa boole na la ak sëñ Mama ci sañ Saaliw bi soxna seen ñu ngi lay gërëm bu baax a baax yónnee na àddiya sëñ Saaliw boole ak euh, sëñ euh, Mama Thioum jërëjëf maa ngi mhm. nuyu soppe yi nag mhm. daayira soppe yëpp ci nuyu mhm. njiitu sëñ Abdoulahat Ndiaye fan yii rek maa ngi leen di soññi liggéey tuubaa ci kanam bi ngir ñu dajale liggéey bi waaye sëñ am maa ngi sant itam mboolem sama waajur tàmbali sama waajur wu góor sëñ Ahmadou rahmatullahi alayhi yàlla na ko yàlla dolli yërmande ak leer yàlla dolli ko njéggal xam nga ni at mu jot dama ko daan defal bis ca Touba. bu ñëwee suba la màggal gi ren jii xam nga ni mënu la am ngir tënk-tënk yi ba tax ren jii sax mhm. ñuy jàng ay kaamil rek fu waay nekk rek jànge fa alxuraan mhm. ak xasida ñuy yéene ko yool bi mhm. noonu lañ ko fas yéene defee ren euh, kon nag mboolem koo xam ne rek daa nga bàyyi xel màggal gi maa ngi lay xamal ni ren jii moom dañ koy wàcce ay kaamil rek mm-hmm, mm-hmm. waaw bàyyi ba jamono weesu mm-hmm. waaw ndax fii jamono toll ak ni jamono tëddee euh, ñoo ngi fa yéene itam balaa màggal gi rek seet lu lu neex euh, def ko def ko kaset def ko ci kale yi ak ak carte mémoire yi mu di di béggu ko ndax yëngu bi gëj naa am dañ ko fas yéene mu génn ci màggal gi incha allah incha allah fas nañ ko yéene mm-hmm. maa ngi sant daal sama njaboot yëpp sama mm-hmm. waajur wu jigéen bu mm-hmm. ñaan yàlla wér ak sëñ Mamoun Diop Wilaya nee na mi ngi lay ziare sëñ Mamoun waaw moom itam kenn la ci maam xam-xam bu rafet baax di ko siyaar bu baax alaaji mbàkk yi nee na ndax sama jànkat bi nga dalal tey ko ziare bu baax waaw naa ko moom soxna moom i kebe mi ngi lay topp ak sëñ Baara Mamor waaw soxna moom sama yaay jooju maa ngi nuyu bu baax a baax ndeysaan ndeysaan di ko ñaanal yàlla wér ak gudd fan yàlla bàyyi ko fi dama ko waxoon rek laa koy waxaat yàlla na ko yàlla sàmm te aar ko amiin yeggale yéenam ci sëñ Touba ak Cheikh Salif Mbacke amiin nuyu sëñ Baara Mamor ndeysaan ak sëñ Abdoulaye Tege maa ngi koy siyaare bu baax a baax ndeysaan ndeysaan moom itam di ko ndokkeel di ko ñaanal yàlla waaye jëwriñ moom daa yaakaar ne moom sëñ xaadim sa am sëñ xaadima rek waaw wax na dëgg jëwriñ moom jëwriñ moom maay am sëñ xaadima ndeysaan ndeysaan eh, yàlla daf na boole boole ku yàgg-yàgg mm-hmm. xaw gu yàgg cofeel ku yàgg ak wëllëre wu yàgg barabam bii ca Touba ba mu fay fanaanee jàng bu ñëw suba la màggal mhm. booba yàgg na lool mhm. waaw yàgg na lool daanaka def na lu bëgg a jege ñaar fukki at mhm. waaw kon moom moom yàlla yàlla yàlla lu ko fi yàlla yàggal te wéral ko moom murit saadix la moom waaw murit saadix la bëgg sëñ Touba ndeysaan maa ngi siyaare mboolem soppee ak wëllëri yëpp mm-hmm. sëñ Abdou Mbaye léegi la ma yónnee message mm-hmm. di nuyoo sëñ Abdou Mbaye di kenn ci man di sama mm-hmm. xarit bu baax lool Ibulaay itam Ibulaay Diagne te nekk fii ci Carrefour tey tey réparé oto yi maa ngi koy nuyu bu baax sama oto daa paan ne fa maa ngi koy yalwaan ab moteur mi may tooñ naan ma boo waxoon foofu moteur bi ñu jëndal la ko waaye moom laa koy yalwaan. ndeysaan ndeysaan <laughs> mën na ma ko defal. ndeysaan di di ku baax nag. koo xam ni mm-hmm. ku rafet mm-hmm. xol la te mën a def lu mm-hmm. baax. maa koy siyaare bu baax. di siyaare mboolem soppee yi ak wëllëre yi. ak euh, xarit yi. di sàkku itam. ay kaamil ci mboolem daaree alxuraan yëpp. ñu sarax ma ko. ci bis bi nga xam ne moom laa dañ def daaw jàng nañ junniy kaamil. ak juróom-ñaar téeméer ak nangam. maa ngi koy ci. jànkati xasida yi maa ngi nuyu sëñ du Faye mm-hmm. maa ngi koy nuyu bu baax mm-hmm. di sama wëllëre mm-hmm. di ku baax moom itam di nuyu sëñ Mohamed Kunta dëkk fee ci Njaasaan soxna maam jaara seen mu ngi may yónnee message maa ngi koy nuyu bu baax ak soxna astumaar ci yëmbal ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu ak soxna Binta Samb mu sëñ Mor sàmb mu muy nekk Caaroy sama wóllëre woowu maa ngi koy siyaar bu baax ak waa kër gi yëpp di nuyu itam soxna Bintu Diouf moom itam maa ngi koy siyaare bu baax. Mm-hmm. ak sañ baskend Kend. wax nañ ko léegi bu Espagne. Mm-hmm. maa ngi koy siyaare bu baax nit di nit ku baax moom itam bu ma ko fekkee Espagne day sonn ci man lool. soxna bu sa faal ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu bu baax. Mm-hmm. ak soxna Maguette Diop mii euh, sëñ Ablaye doon wax léegi soxna Maguette Diop mu sëñ. surtout sama wëlëre. di soxna sëñ Cheikh Assis maa ngi koy siyaare bu baax. ak sëñ Soy bu ko Italie ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu. Baye Galas Ndiaye. ca Mbàkke. Euh, di nuyu itam. sëñ Ibrahima Koundoul mm-hmm. nga xam ne fii la féete dakaar bokk ci jàng message ndeysaan mook sëñ Góoru Jum. message yaa ngi ñu di rek. naa ma santal ma sunu jëwriñ yi doon ko baax. Mm-hmm. soxna Bintu Mbàkke muy Bintu Wàdd maa ngi koy mm-hmm. nuyu moom itam bu baax. ñoom ñëpp daal maa ngi leen di siyaare. Euh, di siyaare sëñ Taala Jaw di nekk fee ci Kébémer. ak sëñ son yi nekk fii ci daayira soppe yi fii tey ab jànkatu xaside soxna Njaay si bi it maa ngi koy nuyu bu baax. Mhm. ak Serigne Saliou Der Italie. Mhm. ak mboolem wëllëre yi daal ak soppe yi Baye Abdou Guèye di sama rakk di doomi si Moustapha Guèye Daara maa ngi koy nuyu bu baax. Mhm. léegi muy wax jànkati xaside yi la naan ma ak jànkale jàngalekati alxuraan yi. ñoom ñëpp nee na jàngalekati alxuraan ñoom it euh, jotuñu seenu cër ci ci ci ci <laughs> ni ñu leen war a def daal defuñu leen ko waaye wax na dëgg bàyyim si Moustapha Guèye moo ma jàngal alxuraan. waaw man daal maa ngi sant ñëpp xam nga dama mënul rek. lim ñëpp te ku lim doo matal mbaa nga juum <laughs> maa ngi beral nuyoo nag sama waajee mhm. muy sëñ Jibril Ndaw mhm. waaw ak sëñ Mbàkke ak sëñ Mbàkke Mbooj sama la bi waaw lool dañoo yàgg moom Mbàkke maa ngi koy nuyu moom moom sëñ Jibril na nag mu bàyyi di jéem a <laughs> <laughs> xaw naa sonn fii. c'est c'est que c'est que sëñ moom dafa laa bëgg. waaw waaw loolu lu a sonn moog sëñ Jibril moom. lu moom moom tubaarkàlla. la sëñ xam nga moom daanaka damay koy booleeg sëñ Mamoun Diop rek. waaw moo gën koo <laughs> benn émission ngir yàlla daal la fi boo xam ne mu ngi daal moom daal ay mbiram kenn xamu ko. waaye ñu ngi koy siyaare baax. sëñ Moustapha Guèye Sam ca Touba. sëñ Moustapha waaw sama xarit la sama wëllëre la waaw ak sëñ Mara Seck ndeysaan nga xam ni moom sama rakk la jànkat yi nga xam ni tey ñoom lay lim ñoom ñëpp mooy seen kilifa mhm. mooy jànkat bi njëkk génnee ci man moom sëñ Mara Seck sëñ Mara waaw ndeysaan waaw kon nag maa ngi leen di sant ñoom ñëpp daal di leen gërëm mhm. di leen ñaanal yàlla bu baax mhm. di siyaare sëñ Abdou Samad Diop mi nga xam ne moo jiite mboolem daayira WhatsApp yëpp di leen ñaanal yàlla daal bu baax sëñ Paate Fall ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu. Mhm. ak sëñ a Diouf ma ca mhm. Sandaga. Mhm. ak rakkam sëñ Abdou Diak wala jarbaatam. maa ngi beral nuyu sëñ Maxtaar Mbàkke mii nga xam ni. sama wëllëre la sama xarit bu yàgg la sëñ Maxtaar xam nga ni bi muy nekk Touba di jàng doon élève lañ xamante woon. ndeysaan ba ni mu fi jógee jàngi bitim réew. ndeysaan ndeysaan booba wax dëgg yàlla njàng mi sax demeegul nii. man ak mom ak seigne idriss Mbacke. ñoo nekkon ay xarit daan ku lu yëm gudd suba ba ñoo daan and wa ma ngi nuyu nak sama waa keur sama soxna soxna Ndiku soxna Ndey Samb ñom ñep mm-hmm. soxna jaara nak mom xamna ni bu mako tuddul tay mom du bax bind na message ñama papa. Mm-hmm. man ko waaw mu ni man nga ma tuddu mm-hmm. te nak ma ziaré man ko waaw kon nak ma ngi koy ziyaare sama jaar ak Cheikh Moustapha Magam. ak sëñ Mbacke ak ma ñom ñep ma ngi leen di ziar bu baax. sama keur ñoo ñu waaw. ndeysaan di leen ñaanal yàlla yàlla bàyyi leen fi ñoog seen i waa jur ñoom ñëpp ndeysaan nuyu soxna astu Mbàkke mu sëñ Abdou Salaam mu sëñ Masamba mooy yaay son ndeysaan ndeysaan ñoom ñëpp maa ngi leen di siyaare bu baax a baax wallaay jërëjëf nuyu naa ñëpp ñëw sëñ ma dogal ko ngànt ndax xam naa ne ñëpp bés bu ton siyaar sëñ Xaadim siyaar na la euh, bés bu ton moom nii rek la fi nekkee ñu ngi koy nuyu bu baax euh, euh, Pape Cheikh Dieye maa ngi koy nuyu waa ji Pape maa ngi lay nuyu bu baax a baax baax a baax a baax a baax a baax di la ñaanal wér ak gudd fan gis nga kii kii moom kenn la ci man wallaahi yàlla xam na ko dafa maa bëgg-bëgg boobu mooy xool day day bëgg jooy noonu la la sonal nag waaw moom moom moom kenn la ci man rek bëggul bëggul ak dégg jàmm wallaahi si bu ma ne ko daraa nga may metti maanaam day mel ni ku bëgg a tàggu sago ndeysaan waaw lu mu xam lu koy faj rek dana dana daw wuti ko li ñaan xel day fattu daal ak yow moom day fexe na ba sama waa ji moom amul morom Serigne Cheikh Ahmed Tidiane lañ ko tuddee mais Pape Cheikh fexe na ba maanaam accès bi am ci yoon bi sax ñun amuñu ko da ngay dem ci këru sëriñ ci seen Pape Cheikh ca kanamu sëñ ba mu toog waaye loolu lépp ak baax la rek ñu ngi koy sant ko gërëm moo ko ñaay fay sëñ ñaay tey nee na ma manqué réalisation waaye jàmm yóbbu ko fa ay photo ko fa yóbbu ak bëgg ñoo sonal rek waaye ñu ngi koy ziare bu baax a baax a di ko ñaanal ndeysaan <laughs> eh, di bu baax a baax eh, sëñ Ablaye mhm. eh, xam naa foofu la ñuy waajale tàggatoo bi ziarub Cheikh Adama Gueye Cheikh Adama sa ziar dama koy teg ci loxol billoo xam naa ne moom yow mooy sa première fan <laughs> mu ziar gaa yëpp sëñ Xaadim Seen ñu ngi lay bëgg bu baax. sëñ Sawru Fay ku baax la sëñ Sawru waaw sëñ Sawru ndeysaan ndeysaan njëkk a léegi macha allah maa ngi ci juróom fukki turandoog ñaar ndeysaan ndeysaan xam nga ni kooku moom ndeysaan yàgg nañ te jig na ma sëñ Cheikh Tailleur sëñ Cheikh Ñas mi ma ñawal li nee na mi ngi lay ziare waaw xam naa moom ginnaaw bu noppee rek incha allah waaw ngeen jokkoo waaw ay kéemaane nee na mi ngi lay ziare baax a baax neel neel ki la ñawal na ma ñawal te yónni ma. amul benn ma ci groupe bi da ngeen maa génne ci groupe bi waaye ci laa bokk. kon sëñ Cheikh Fadal Couture mu ngi noonu kon dégg nga ko ñoo ko dégg noonu. waa kay jërëjëf xanaa santal sëñ Xaadim kontaan lool nag. ci njàng mi. ndeysaan euh, tey defal nañu njàng mu neex. wallaay wallaay njàng ñëpp bég nañu internet bi ñëpp a def ay réaction. wallaay wallaay wallaay téléphone bi kay. tubarkal yàlla guddal fan wi lool. moom benn ba fay na beneen bi ci des dooli xéewalam amiin dooli kaaraangeem ci barke si Moodu Moustapha al Karim kontaan nañu lool ci moom ndeysaan ndeysaan ah, ñu ngi sant waa marché Colobane ñoom it mm-hmm. bu baax a baax soxna Marème Dieng euh, sëriñ ñan sama mag ju baax jooju mm-hmm. sëriñ Basiiru Sorang soxna bu Sorang tey ñoom ñëpp seeti nañu leen mm-hmm. teraanga ju ne bëgg fàllu ci restaurant bi ñëpp ñu leen di nuyu euh, maa ngi nuyu tam sëñ Bay Mbàkke Ñang sëñ nooyin menn waaw sëñ nooyin sëy waaw waaw sëñ nooyin sëy sëñ xaadim Gueye ngi lay sant di la nuyu waaw moom ku baax la sa kër laa ko xamee woon muy nit ku baax a baax ñu ngi koy ziar bu baax waaw sëñ xaadim ngi lay bëggee bu baax sëñ nooyin ak njaboot gépp di leen ñaanal ndeysaan jërëjëf ñu ngi nuyu sëñ Baye Mbàkke ñang conférencier mu ngi topp jataay bi ñu ngi koy bëggee bu baax jàmbaar la lool ci yoon wi di waxtaane sëriñ bi rafetal jikkoom di ko baax yàlla yàlla sàmm ko jàppale ko mu ngi ziar tam euh, ba tey Serigne Bassirou xol sa doom jooju ca ca Thiès mu ngi jotale nuyoo mu ngi topp jataay bi euh, bàjjanam mooy sama xarit lool soxna na koy xool maa ngi koy ziar ci Thiès euh, Serigne Cheikh Dieng bu Touba Vision mu ngi ànd ak ñun jataay bi caari bi Serigne Mbacke Madina naka noonu am na mbokk mu yox mataar Ba mhm. nekk ca Ngéeg Fall mu ngi ànd ak ñun Serigne Moussa Sey ca Touba mhm. waaye Serigne Khadim Badiane sama mhm. soppe boobu ca njaareem mhm. nekk fii kër Mbay Fall sama soppe sama doomu nday maa ngi koy ziar. Mhm. beral na nuyoo sëñ Dame Lo. Mhm. mu ngi topp jataay bi mooy bu baax. ak sëñ Abdul Karim Wade. waaw jërëjëf sëñ Ablaye Diop Bisri jërëjëf sëñ Xaadim soxna soxna Oumy Touré sëñ Xaadim nee na mi ngi lay ziare baax. Euh, sëñ Pape seex nee na mi ngi sant sëñ Omar euh, mi ngi sëñ Pape seex nee na mi ngi lay ziare sëñ Omar Guèye. nee na Pape Cheikh nee na mi ngi lay sant bu baax di la gërëm ñu di ko sant bu baax di gërëm mbokk yu ñu àndaloon yëpp sëñ Mame jërëjëf ci déplacement bi ak yitte ji ak taxawaay bi ci groupe liggéey bi yëpp ñu ngi leen sant sëñ Abo Niang sëñ Bàcci Fay soxna Bintu Caxate soxna su Gaawan Diop ci teraanga yi ah, ah sunu yaay jooju soxna su Kayna ah, tubaarkàlla ah, ak soxna Awa Sow ñoom ñëpp ñoo ngi leen di ñoo ngi leen di ñoo leen di ziar ci seen taxawaay yu am solo ak mboolem ku nekk ca bitim réew rek ñu ngi lay gërëm Eh, sëñ Basiiru kenn ñoom eh, Pierre eh, Thiaw Pierre Moussa ndeysaan sëñ Alassane Guèye gendarme nekk fële ca Ndula ñu ngi koy jaar ak waa kër gi yëpp ñu ngi leen di béggee bu baax a baax di nuyu ñuy jàkkaaroon sëñ Cheikh seen raaya maa ngi waajal sama raaya ah, bi dama ko moom laa war a jiital waaw ndax moom mooy junni may 5000 waaw sëriñ Cheikh seen raaya nga xam ni maa ngi moom benn lañu maa ngi koy waajal talaata lañu maa ngi koy waajal doom la moom nit ku baax la ñu bëggante lool ndeysaan yàgg lool déggoo lool nag ndeysaan waaw ah, fu may dem ñooy ànd ndeysaan waaw ah, muy nit ku baax maa ngi koy waajal tey naa yitteem yëpp mu ngi nii toog di ma gunge boobu damaa damaa bëgg bu ñëwee ci raaya ah, bis bu ma ko invité du tàmbalee sax xal bi loxo kiltaa yadayhi lahaa ngay tàmbalee ñu wéy boo ko invité foo bëgg ci xasida rek waxal. jeex na mu ngoog soo neexee mu la ko wayal la. jeex na mu ngoog mu ngoog <laughs> jërëjëf kon ñu gërëm leen bu baax a baax am mbégte ci ñu doon topp ñëpp di jéggalu sañ am sa jóob xasaayit ñu ngi koy ziare sañ alaaji saw wax naa ko léegi euh, tubaarkàlla yéen ñëpp suñ xaarim ne mi ngi leen di ziare ak mboolem ñi bëggoon a dugg te dugg ñu ñëpp soxna diggéen saw ma ngi ca Gàmbi euh, nee na ndeysaan bëggoon naa fekk jataay bi waaye mi ngi mi ngi mi ngi yónnee ay ziara ki nuyoo Euh, barakallaa di ko di ko ñaanal moom tamit kon su ko defee ñu jox leen euh, dig daje euh, di sante ñi ñu doon topp ñëpp incha allahu taala di gërëm itam ñi bëggoon a dugg ci téléphone bi ndax tey gis nga amuñu sax temps pour ubbi ligne bi waaye lépp rek ngir dabu ci seen bànneex bëggoon rek ngeen topp jataay bi mën a dund xasida ak waxtaane sëñ Touba di ñaan sëñ Touba mu dollinu kattan waaye nag ñu gën di ko gëm di gën a xiirtalu di jëm ci moom Euh, di wax ne bis boobu nga xam ne ni moom la ñuy waajal muy dajale addee yi yow mbokki taalibe yi nga xam ne ñu ngi ci euh, caabi da leen a féete ginnaaw ngir fas yéene dundal leen ci guddig reer gi ànd koog nag suñu kilifa muy sëriñ Abdou samat Mbàkke moom sëriñ Chouaïbou bu di ko ñaanal baax yàlla yàggal ko fi lool te mu wér may ko mu yeggale li mu bëgg a liggéey sëñ Touba lépp incha allah euh, di gërëm bu baax a baax mboolem mi ñu doon topp ci jataay bi ci waxtu wi ci Touba TV di wax ne wax ju lu ci dëng ñun ñii la waaye lu ci jub rek soxna Aysatu Saw ñu ngi koy jaare sëñ xaadim neen na mi ngi lay ziyaare soxna ay Aysatu Sow moom njabootam gépp ah, mook sax njaboot yëpp sëñ xaadim nee na mi ngi leen di eh, ziyaare eh, tubaarkàlla di wax rek ne incha allahu taala eh, Touba TV dana ñëwaat ay programme yu am solo ngir dundal la ko yéen ci tamxarit gi di leen wax di leen jox ti daje naa leen wax ji lu ci dëng ñu xam ne sunu coobe rek ak kuy wax ci kum bëgg lu mu ca wax rek dangay xam ne du tayee fam waaye liñ ci jublu rek mooy ñëpp bég ñëpp am jàmm ñëpp nekk ci tawféex te li ma wax léegi rek fa laay daanele alal ji ñu jël di ko jox koo xam ne nii soo ko ko joxee ñu laajte lu muy def mu ne waxi dof laay def ci laa tedde wax dëgg yàlla ki nga xam ne sëñ Tuubaa dane bu yowmal xiyaam lañ leen di xàmmee mooy seen baat yéen a yuqi takkal leen ay lami or lañ leen di xàmme ñoo ñoo ñiy tagg yonent bi aleyhi salaatu wa salaam addina nag ay caaxaan na fi dox waaye biir bàmmeel dëgg fa ne kon li am solo mooy alal ji la sëñ Abdul Karim moom sëñ Fàllu waxoon ne moo këyiti xam a yam buñ nekkee ci biir waxande mbaa ci biir poos amuñu njariñ bala ñoo am njariñ mooy dañoo génn nañ leen di jàppale di leen taxaw di leen féete fu am solo loolu ama am solo la ci liggéeyal Serigne Touba Xaadimu Rasuul bu kenn xeeb dërëm wala ñaan dërëm koo ci jàpp ne kii sëñ mi ngi lay bëggal te sëñ tubaa tax rek yow it na nga ko bëggal te sëñ Touba tax loolu wàññiwul dara kon su ko defee nu bàyyi ci xel bu baax a baax ñi ciy def nag am na ñoo xam ne ni yàlla da leen a nattoo seen volontaire gépp mooy jëfal sëñ tubaa ci taalibe mi ñooñu nag ñoom ñëpp comme ci mënoon bëggu ñu lim waaye yàlla na leen yàlla taxaw te sàmm leen jox leen dig daje ci beneen jataay naan leen lu jéew jeexul jugu fa lay leen maal baraka asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu bismillah jagleeg borom tuuba te bu dee ba déggoog déggi xol xoogum ngeen biral ne ka tànneefoon borom tuuba